الباخي من الأمراض وقدم الأنكر باختياري asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ñi ngeen di tàmbale nanul Baaxil Xadim Learning Academy mooy seen plateforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen si jàng ferum iji man ngeen si jàng alquran man ngeen ci xam seen diine man ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seeni i business ci seen waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàll woowu. indil leen ci nag ay boroom xam-xam yu ñu ràññee ko ci yoonu lislaam yu ñu ràññee ko ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi. ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne di ngeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alquran ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag lañuy ubbi. ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www point alminan point com alminan point com nag da ngay def a l m i NANE point com mën ngeen ci inscrit ak seen crédit card wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bii 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bii à partir des États-Unis 1-877 218 9413 mën ngeen ce woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf

mbokk taalibe yi xidma ci jumaay Tuuba weeru koor tàmbali la gatanu weeru koor dundal ko màggal ko ni ko Cheikhul Khadim daan defee di berle jaamu yàlla yi ci ndogu yi ak ci conférence weer wi yëpp xam ngeen ne jaamu yàlla fa mu gën a sakkane mooy ca jumaay Tuuba di ndigalul Serigne Touba te ndigalul Serigne Touba taw feex gu mag a mag la ay làmbatu mayewu ko kon nag mbokk yi ànd leen ci waajtaay wi ak Muxaddamatul Xidma Foundation yónnee seen jaayante Ramadan si plateforme bi di double www.toubamosquée.org yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen activer cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision la suit l'enseignement de Khadimou Rassoul saxaabatihi ajmain bokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd bii xam naa di amaan mbégte lool nag ci teew ci jataay bi di dalal menn mbokk ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom jotaayu xam-xam ci barab bu tedd bi niki noonu kon tey ñu ngi fas yéene ànd ak professeur Ibrahima Thioub ñu gën koo xam ci ancien recteur bu université Cheikh Anta moom lañu ñu war a amal tey waxtaan wu am solo muy waxtaan ci Cheikhul Khadim fan la fekk société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu mu doon kon thème bu am solo boo xam ne bu mat a la waaye bala ñoo ñëw ci loolu bala ñu ko jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee. ci képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak yëngatoom ci xam-xam mën nañoo wax rek ne euh, sëñ Ibrahima Cubb mii mu ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Malikunda ca wetu Mbuur euh, bi mu tombee bi mu tollee ci dal am njàng itam ci la dugg daara alxuraan def na fa ñaari at gannaaw bi ci la dugg ci école française bi ca Mbuur tàmbalee fa am njàngam ci atum 1962 ci la am CFE mooy lijaasi bi gën a ndaw ci école yu ndaw yi gannaaw bi ci la continuer am njàngam dem ca Thiès ba yegg ci lycée Malick Sy foofee la amee baccalauréat am gannaaw bi ci 1972 ci la dem ci école normale ba 1976 euh, jaar na école normale ci diggante boobu mu tudd gannaaw bi itam affecté nañu ko waat Thiès mu nekk fa comme jàngalekatu primaire gannaaw bi la dellu jàngaat ba dem école normale supérieure gannaaw bi ci la fa nekk ba am fa master 1984 gannaaw bi nag ci la bawoo ci réew mi dem bitim réew ca France Paris foofee fa la nekk di fa jàng ba am doctorat ci atum 1989 gannaaw bi itam nag bi mu dellusee ci réew mi affecté nañu ko ci ay lycée yu bari mën nañ cee lim rek lycée Lamine Gueye ak John Kennedy bi nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru gannaaw bi ci lañ ko yóbbu université Cheikh Anta foofu mu nekk fa comme assistant gannaaw bi ci la yokk ay jéegoom ci wàllu njàng ba ñu nommé ko fa professeur mu di fa jàngale histoire gannaaw bi ci atum 2014 ci lañu ko fa nommé comme recteur mu yor rectorat bu université Cheikh Anta Diop euh, ci atum deux mille ci la jël retraitem mooy koo xam ne daanaka liggéeyatu léegi ci gouvernement bi mën nañoo wax ne nag ay gëstoom nag da koo jëmale ci wàllu fànn goo xam ne gu am solo la muy histoire Afrique kon lépp loo xam ne jëm na ci taarixu Afrique ak i jaar-jaaram ak i xew-xew yi fi ma saam moom ci loolu lay gëstu kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaane loo muy Serigne Touba fan la fekkoon société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu loolu lu mu xam la lu mu mën a waxtaane la kon yaakaar naa ne incha allahu taala mën nañoo fàttaliwaat mbokk yi ne leen euh, waxtaan yi ñuy amal fii képp koo xam ne raw na la am na fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne euh, dañuy tegaat waxtaan yi ci diggante Touba ak li ko wër waaye mën nañ cee tàmbale wax ne rajo Daarul Muxti bii direct la koy def ak rajo Bawol Média ñoom ñaar yooyu direct la ñuy def waxtaan wi buñ ca jógee itam Daarul Muxti dana ko tegaat suba ci 14h 15h FM dana ko teg 14h 15h moom tamit Walf dana ko teg 19h jant bi 0 i rajo dana ko jàll 18h30 RTS Diourbel 13h30 Benno FM 17h Sud FM 20h30. LAMP FM 23h UCAB FM dana ko jàllale 9h du matin Bawol Média bi ma waxoon sànq moom tamit direct la koy def Carrefour FM dana ko jàllale 20h rajo Bambey dana ko jàllale 22h euh, Daara ji FM dana ko jàllale euh, moom tamit Daara ji FM moo mooy bi nekk Kébémer leer gi FM mu nga nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan bi RTS Touba moom tamit dana ko jàllale 9h Touba Fall. FM moom tamit huit heures du matin fa la ko ci la koy jàllale kon rajo yooyu yëpp mën nañu wax ne waxtaan yi dañu koy jàllale bu dee chaine télévision yi nga xam ne ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi mën nañ cee lim Touba Vision Touba TV day jàllale waxtaan yi chaque jour Lamp Fall TV itam dana koy teg une heure une heure une YouTube yi nga xamante ne moom la ñuy lim itam chaîne YouTube yëpp dañu koy def direct kon mel na ni boo xoolee mbooloo mi sax ñi ci ëpp daanaka foofu lañ koy suivre tàmbalee ko ci alwafa bu daarul moxti Touba Vision Baye Daaru Média nekk ci dëkk bi xam sa réew TV Bichri alxadimiya Bawol media Facebook bu alwafa bi itam da koy def gannaaw bu loolu jàllee itam ah, ren ji ubbi nañu fukki eh, groupe ak ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne group yëpp fees na te waxtaan yi rek lañu fay jàllale kon mel na ni waxtaan yi yaatu na lool telegram bi itam ku tàppe Alwafa Daarul Muxti depuis ba at ren ji waxtaan wii sëñ Ibrahima di def dana ca nekk kon incha allahu taala ñu fàttali itam mbokk yi na leen suba ci <clears throat> talaata ji danañu dalal sëñ fàllu sàmb sëñ fàllu Samb yitam ñuy am moom waxtaan ci dem bi ak dikk bi ay loraangeem ak i njariñam su ko defee àllarba ji euh, ambassadeur Modou Fall moom tamit dana teew ci jataay bi waxtaan ak mu ci ahamiyatu sifara fil xaarij maanaam yan njëriñ la ambassadeur yi amal sénégalais yi ci biir réew mi ak bitim réew su ko defee alxames nga xam ne ci lañuy tëj jotaay bi nag sëñ Mamoor Amdi moo yeneen i kilifa ñu fi teew su ko defee ñu waxtaane mustaqbalul muridiyya maa ëllëgu yoonu murid loolu kon moom mooy li nga xam ne moo aju ci asum ñu ñaan ñu ñaan yàlla teewee ko at yu baree baree baree bëri te yëpp ñu ànd ko wér euh, su ko defee incha allahu taala dañuy jëbal kàddu gi sëñ Ibrahima cubb ñaan yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci li nga xam ne moom lay waxtaan itam incha allahu taala mën na koo bind moo xam ñuy suivre ci youtube bi la moo xam ñu nekk ci jotaay bi bu ko bindee bu ko jébbalee ci ñu yor wàllu googu incha allahu taala dinañ ko jàllale su ko defee moom mu tam tontu ci tontu ji après jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aousubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar eh, sëriñ Muntaxa Mbàkke Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général de Mouride di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu di ziar xalifa Daaru Mufti di nuyu di ziar kilifa diine yépp yoo xam ne yii ñooy kilifa diine nekk ci tarixa bi di muridiya ñi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci rajo yi ak télévision yi yépp ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar baax a baax eh, di sant waa daayira bi nga xam ne bii ñoom ñoo sàkku ci man ma ñëw def waxtaan wi ci weeru koor wu tedd wi maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax bi nga xamante ni jokkoo nañu ak man it man sama gëstu eh, depuis 1990 ba léegi eh, muy romb léegi fanweeri at mu ngi jëm ci taarix muy histoire surtout histoire Afrique euh, pàcc bi ma ci gën a féete mooy diggante dix-neuvième ak vingtième siècle mooy ñaar téeméeri at yi ñu weesu lan moo xew ci Afrique ak lan lañ ci mën a jàngate ndax histoire du càggee nag xool li weesu rekk du lu weesu moo ñu amal solo déedéet liy ñëw ëllëg moo ñu amal solo maanaam li koy misaal mooy dafay mel ni rétroviseuru oto booy xool sa rétroviseur li ci sa ginnaaw ngay gis waaye li ngay li tax mu amal la njariñ mooy mu tere laa am accident bi ñëw ci sa kanam histoire donc loolu lay jariñ xool jaar-jaar yi fi amoon lan lañ ci mën a jàngate ngir xam li ñuy dund mooy lan naka la ñuy tabaxee ëllëg ci askan wi ci noonu bi ñu ma laajee thème boo bii mën naa ci waxtaan dama leen nii mën nañ xool jamono ji nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa daje loon nu mu demee woon euh, yan jafe-jafe moo fi amoon yan pexe la ci nit ñi amoon ak moom yan pexe la ci jël lu mu ci indi ndax bala ngaa dégg dëgg li sëriñ biy wax nga xam yan jafe-jafe la jàkkaar looloon ba indi ci ay tontu euh, da ngeen di jàpp ni nag jafe-jafe yooyu yu tar la woon am na lu bari li ci nit ñi gën a xam mooy liñ ko yóbbu woon Gabon wala ñu yóbbu ko Mauritanie mu jaamaarloo ko ak tubaab bi mais am na yeneen yoon xam ne yi moo jur loolu te ñaari nit ñi dinañ koy umpule loolu laa ci bëgg a génne tuuti rek euh, ci waxtu yi nga xam ne yii moom lañ ma may euh, gëstu bi nag li ci ëpp ci tubaab lañ koy def waaye comme ni ma koy waxee wax ko ci wolof man moo ma gën a yomb wax ko ci tubaab eh, damay tàmbulee loo nga xam ne lii xëy na mag ñi xam nañ ko su ma ko tàmbulee sax xam na am na ay mag ñu fi nekk dinañ ko mën a yeggale su ma nee ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seyxu bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ma moo jébbalu woon dem tuubi ndeyam di jooy mun naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane sëriñ Mor Mané sëriñ Aliou Diouf ñi lee ko daane keroog da leen woo fa péncam làmbaay naan leen danaa leen tàggaleeg laxasaay keroog da na boole ci wurmbal ñuy kenn kennoo farba ja farba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal daam dàmm di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen baleen seex bàmba mbaama ren di murit yi yépp ma nga ma nga naan ba màndi murit yi naa ko bàmba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey noo yi sëriñ Momar Maane ko tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk dag yenn tis pénc ma daldi jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daldi laxasu murit ya ñëw Touba xibaar ko Bàmba mu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jal ba ceddo ya dem kalaame kook borom ndar mu dangeen mokk mbaa mel ni aw dër ñi xam sëñ Moussa Ka xam nañ ni loolu ci jasaw Zakoor la jóge boo ko gëstoo ci li ma ci jot a jukki noonu jukki boobu ma ci génne am na ñetti mbër ñoom ñoo mën a bind di bindi wolofal ñoo leen di defaral ay téere danga nga gis ku soxla téere lu mel ni ak dàq boo ko soxlaa dinga ci def lu mat ay fanweeri jaam ngir ndax xeex bi bari na il faut nga wut gàllaaj gu tax nga tul te loolu dañ ci daan ñàkk lu bëree bëri ci alal ndax xeexoo bi bari kon sëriñ soosu am na sëriñ soo xam ne si dañ daan ànd ak nguuru ceddo yooyu euh, ci biir ànd boobu teewul nag am na ay doomu soxna yoo xam ne yi dañoo jóg xeex ak nguuri nguuri ceddo yooyu bari nañ lool ci suñu réew mi ki ci jëkk nga xam ni booba buur yi buuri ceddo yi ñu ngi jël nit ñi dëkk bu ñu dem taal ko jël nit ñi yóbbu dem jaay tubaab bi tubaab bi yóbbu ñoom ñu jënde ko sàngara naan nekk ci li neex seen bakkan di toj réew mi mu doon alkande ju rëy ju dal ci kaw réew dajeeg léeg-léeg ay njéeréer da ngay bey ba góob rekk des ci ceddo yi ñëw taal sa tool wala njéeréer yi ñëw lekk ko wala mbas ñëw comme mbas mi am nii léegi da doon am ci jamono yooyu muy jamono ju tar ju metti te li leen ko tegoon nguur googu ñu amoon te muy nguur gu baaxul moo leen ko tegoon te réew yépp nag moo fi moo fi sësoon muy Kajoor Bawol Waalo Siin Saalum Fuuta fépp ñoom ñoo fa nekkoon léegi jullit yi am ci ñu jóg ni nag war nañoo seet nu nuy def ak nguur yii lu ñuy tàggaleek ñoom ki ci jëkk Nasr al Din la tudd Mauritanie la jóge woon ànd ak ay jullit yu nekkoon fii ci réew mi ñu samp nguur xeex ak ceddo yi gañe leen samp nguur gu ñuy wax nguuru buuri jullit loolu 1673 la amoon bi mu amee mun leen yàlla sàkk lu leen ay kilifa ngir ñu di leen jaay ak di leen toroxal ak di leen noot yàlla daf leen jox kilifa pour mu aar leen teg leen ci yoonu yàlla looloo tax yàlla am ku mu teg seen kanam mais seen kilifa yi ngeen am nga xam ne ñoom dañ leen di jàpp taal seen kër yi taal seen euh, ngóob mi fotoñ leen jaay tubaab bi dañuy jóg xeex ak ñoom ngir tàggalikoo ak ñoom biñ ko defee réew mi ànd ak ñoom ñu daaneel buur yooyu mais tubaab yi nga xam ne loolu arrangé wu leen jox leen ay ngànnaay jàppale leen ñu daaneel nguuru jullit googu nga xam ni moo njëkk am fii ci Sénégal di nguuru jullit di 1673 biñ leen daaneelee ñu bëri ci ñi bokkoon ci xeex ba doon ay jullit dañ leen a jaay ñu yóbbu leen Amérique mais ñi ci des dañoo tasaaroo ci biir réew mi taal ay taal jàngu di fa jàngale arrêté xeex bi te xam ni ceddo yi neexaguñoo song ñu ne nañ wutiwaat doole ba ci kanam ci noonu Abdul Xaadir Kan ca Fuuta moo jógaat xeex-xeex bi ci jamono ci jamonoy Amari Ngoone Ndee la mais moom itam dañ ko gañe ci xeex boobu ci dëkk bu ñuy wax bu Bungoy bàyyi ma lamin saar ku nekk dégg na ko moom itam Amari Ngoone Ndeele moomu moo ko daaneel ci xeex boo xam ñu ngi ko xeexoon ci dëkk bu ñuy wax cax réew ñu jàpp ca ñu bari jaay leen ay def leen ay jaam jaay leen ñenn ñi daw ñooy lébu yi sañc nguur gi nekkoon ndakaaru sëriñ ndakaaru ci loolu la jóge ci xeex boobu la jóge ñoom dañoo jóge kajoor dem Cap-Vert ci lañ ko samp jullit yi continuer di xeex ngir teggi noteel googu ñàgg isa ca waalo 1827 1830 Malick Sy ca Bundu bokkul ak Seydi Hadj Malick bu Tiwaawoon am na beneen Malick Sy ci Bundu kooku 18e siècle la El Hadj Oumar 1860 Maba Jaxu 1861 1867 Maba Jaxu boobu lu am solo la ndax Maba Jaxu ci fu ñuy wax baadibu wolof fi di ko wax ripp soo si di ko wax baadibu fa la nekkoon am buur bu fa nekkoon ñu di ko wax jeere ba maroon mu am doom ju tudd jàkkere basin ñoom ñaar ñoo tegoon nooteel gu tar ci kaw jullit yi ci kaw mbooloo mi askan wi kooku dafa xëy benn bis dem ci kër benn nit fekk fa doomu jànqam mu jël ko yóbbu gëf ko yóbbu ko ci pays ba yemul ci loolu mu bind lettre jullit yi ni leen dajal leen alal yi ngeen am yépp jëndal ma ci ay gàtt yónnee ma ko ndax damay takk seen doom ji te se gàtt yi ngeen may yónnee ci laa war a organiser fête bi may feetoo sëy biñ nar a sëy xam nga loolu jéggi na dayo lool maba jaxu ni nag loolu moom mënuñu koo seetaan ci la taal jiyaar moom itam bi mu taalee jiyaar daan buur boobu lu mat ñaari weer rek mu jóge Gàmbi tey ci foo xam ne ci Gàmbi la nekk tey di Saalum ñaari weer rekk mu nga Jolof buur yi fi nekkoon yépp mu faagaagal leen samp nguuru jullit ci noonu mu jël kilifa diine yu bari yu nekkoon ci réew mi tasaaroo mu jël leen yóbbu ñooro bokk na ci ñooñu Mamor Anta Sali mu ànd fa ak soxna jaara Bousso ñu nekk poroxaan mu ubbi fa daara di fa jàngale doomi maa ba jaxu ci daara yooyu lañ doon jàngee ku mel ni Sayer Mati am na nag wuute ci loolu ñenn ñi nee nañ dafa forcer sëriñ yi ñu ñëw ci moom ñenn ñi ni dafa waxtaan ak ñoom ba yóbbu leen fa waaye lu ci mënti xew daal Maba moom xeex na xeex bu gaaw faagaagal nguur yi fi nekkoon ndax nguur yooyu amuñu woon kenn ku leen jàpp ne ndax nit ñi dañ leen a dumóoyu woon ndax niñ doon doxale mais Maba bi mu demee xeex ak séeréer yi siin la daanu ci somb 1867 ku mel ni Lat Joor ca xeex booba la bokkoon Demba doonoon jaamub Kajoor jaamu buur moo ko fa jële delloo ko kajoor Maam Mor Anta àndaat ak moom dellu kajoor Cheikh Amadou Bamba des poroxaan ba ni waajuram wu jigéen génne àddina la fekki waajuram wu góor ci kajoor nekk fa ak moom ci jamono ji muy nekk kajoor am na xeex bu dox diggante Amadou Cheikhou ma jóge woon Fuuta song kajoor jolof ci turu lislaam di xeex ak nguuri ceddo yooyu ci jamono jooju Lat mooy dammeelu Kajoor am na jamono sax Lat Joor ànd na moom waaye dañoo mujj féewaloo bi mu dalee ci Kajoor dal ci Jolof Alburi ak Lat Joor ànd di xeex ak ñoom tubaab bi jàppale leen ñu xeex Samba saajo bi ñu xeexee Samba Sadio fa la Amadou Cheikhou daanu bi mu daanoo taalibe yi ma àndaloon ñuy xeex ñu jël leen ñoom ñëpp indi kajoor def leen ay jaan mu jur werantewu rëy diggante ñi nga xam ni ñooy ulemaay kayoor yi àndoon ak dàmmeel ak Cheikh baam ba te booba toll na ci ak ndaw waaye nag fekk jàng na njàng mu wóor mu dëgër ba am lu mu làq ci xam-xam mu warante ko ku mel ni xaalima jaxate kala ci loolu bind na benn lettre bu mu jox dammeel bi ko xaalima jaxate jotee dafa jàng lettre bi dammeel ni ko wax ma lu ne ci lettre bi mu ne ko leetar bi jubluwul ci yow ci man mii la jublu mu ne ko sarax ma ngir yàlla wax ma li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci leetaram bi ndax booba ñu ngi lijjanti nu ñu def ba sëriñ bi ñëw nekk ci nguuru dammeel mun leen man jombale naa samay tànk mu jóg di dem ci benn buur bu dul yàlla ñoom ñu ngi fexee nuñ ko dugalee naan ko boo ñëwee dinañ la jox alal dinañ la jox martaba dinañ la jox dinañ la màggal loo soxla di nga ko am bu dee suuf ak lépp di ko am waaye fekk na booba moom du móoyu na loolu ba mu werante ceeg ma jaxate kalam mu ngi ko naan sëriñ bi gën buur bi gën ci buur yi mooy buur buy seeti sëriñ dafa taatan nu mu yore nguuram waaye boroom xam-xam buy dem ci kippaaru buur mook weñ wu dem ci ay jonkon ñooyam loolu la bindoon ci leetar bi moo tax ma jaxate kala ñi mewu ko woon a wax dammeel mais bi mu ko waxee dammeel dammeel ni ko yow kay amuloo ciy mer ndax yow yaay weñ wi waaye man xam nga li ma doon waaye nag day day ndaw rek bu màggee dina dina dina soppeeku nañ ko jàpp ni ab ak ëkk la gu nekk ci suñu biir tool bu ñu béyee ba yegsi ci nañ ko wër rek moytu ko continuer béy kon boob nguur yooyu fi nekkoon am na ay jullit yu àndoon ak ñoom am na lu ñu doon def lonkan dëppoowul ak yoon ñu teg nit ñi alkande teg leen ay jafe-jafe ay yu tara tara tar mais ci jamonoy sëriñ bi fekk na booba tubaab bi dal na ci seen kaw nasaxal na leen ñoom ñuy xeexoo ci seen biir ba néew doole nga xam ne bi leen tubaab bi faagaagal daanaka dara desatu fa woon teeñ tanoor ma ma leen waxoon ca ba may tàmbali bi cee yaasin galo gànn daanoo ci bawol moom moo ko remplacé mu jóg nag ni moom day fay islaam kon boog ngeen gis ni nguuru ceddo yi am na ay doomi soxna yu ànd ak ñoom mais am na ay doomi soxna yoo xam ne ñu nga ànd ak tubaab bi ca ndar ku mel ni bu el Mogdad xam ni ñu jàng lañu woon ñu am xam-xam waaye ñu ngi dëkkoon ndar nekk ak tubaab bi di ko bindal lettre ak di tekki lettre araab yi ñu leen doon bind ñoom ñoo ko doon teggi tekki am luñ cay amee euh, ci noonu tubaab bi ni leen ñun dafa am lu ñu jaaxal El Hadj Umar mii di woote jiyaar wala Maba Jaxu mii woote jiyaar lan moo tax ndaw ñi yépp di fàq jëm ci ñoom xam nga laaj boobu tey boo ko boo seetloo jamono ji ñu toll nii nguur yu bari ñu ngi laaj laaj boobu jihadiste yi nekk Mali Sahel ak feneen ci àddina bi ñu bari dañuy wax naan lu tax ndaw ñi topp leen ci jamono yooya ulemaa yooyu nekkoon ndar ak tubaab bi nga xam ne tubaab bee leen yoroon di leen fayeg di leen jox ñuy liggéeyal tubaab bi ñu ne ko ñett moo tax ndaw ñu topp leen El day tabax ay jàkka dem na màkka te day àtte ci charia ñett yooyu lañ jàpp ni moo tax ndaw ñu topp leen te yéen tubaab yii moom ndar mayu leen ñu loolu ñun leen loolu kay du problème man nañ leen koo may bu nekkee loolu rek la moom amul problème ñu tabaxal leen jumaa ci ndar jumaa jooju armee française moo ko tabax moo tax boo demee ci jumaa ja dafa am cloche boo nga ne ba léegi cloche baa nga fa ndar boo demee ci jumaa yi ndar jiñ fa tabaxoon ba léegi cloche baa nga fa mooy architecture bi gën a siiw ci senegal dëkk yu bari ndax ñoom bi ñu leen ne tabax leen juma ay armée française xamuñu luy juma ñu xool seen livre yi gis ñun leen fu ñuy jaamoo yàlla la ñu xool gis église ñu tabaxal leen église def ci cloche architecture boobu fu bëri Sénégal booy dox ci jumaa yi ñu tabax ci dëkk yi jumaa ji noonu la noonu la mel architecture boobu la jël am na dëkk bu ñuy wax bismillah mu ngi ci booru yoonu Fatick diggante Mbour ak Fatick boo demee seen jumaa ja mu ngi nekk ni ci sa ndeyjoor architecture boobu lañ jël boo demee avenue Lamine Gueye ci dakaar jàkka yi fa nekk wala jàkka ja nekk avenue Blanchot dakaar architecture boobu la jël ñu tabaxal leen jumaa ñu di fa julli ñu jóge ca teg tribunal musulman musulman ci Ndar ndar amoon na tribunal musulman ñu jël ay xaadi ñu nekk fa di àtte ci charia ngir tontu El Hadji Umar ñun da ngeen a bëgg a dem màkka léegi nañu organiser kuréel goo xam ne mooy lijjanti li leen di yóbbu màkka commissariat au pèlerinage à la Mecque bi am nii léegi foofu loolu mooy cosaanam fa la jóge kon matal na ñett yi leen waxoon ni moo tax ndaw ñi di topp tabaxal nañ leen jàkk tabaxal nañ leen jumaa di leen àtte ci sariya ba pare di leen yóbbu màkk ñooña topp tubaab bi loolu it am na ci wàllu doxalin wañ doon doxal tubaab bi ni mu doon dale ci kaw nit ñi ni ceddo yi doon def noonu la tubaab bi doon def dem ci dëkku jàmbur taal ko am na benn jamono 1864 mooy jamono ji gën a tar ci senegaal nit ñi dañoo mujj ñenn ñi dañuy jaay seen bopp ngir mën a am lu ñu dunde jaay sa bopp ngir am loo dunde mu am fi feebaru choléra feebaru pest bu metti nit ñëpp fàq ñii dem mbuur ñii dem jiwaalo ñii dem ndar ñii dem gore mu jamono ju metti ci noonu euh, ñu gis ni jamono ji ni mu mel mënuñoo continuer bàyyi noonu bu ñu ko bàyyee noonu rek réew yi muy kajoor bawol dañuy mujj faagaagal te déjà luy ëpp tubaab bi teg na ci loxoom mais tubaab bi bi mu ci tegee loxoom moom tubaab bi xamul réew mi te mënta jële ay tubaab ca France indi leen fii ndax suñ leen fi indee seen yaram dëppoowul ak tàngaayu réew mi ak feebar yi fi nekk seen yaram xamu ko dañuy dañ daan dee lu bari léegi ñu ni kon buur yi fi nekkoon te ñun faagaagal nañ leen seeni ay doom ñu ngi fi donn nañ ci seen bàyyi nu ñuy yore réew ñun suñ leen tàggatee tuuti rek dinañ leen mën a dénk senegaal ñu jël ay ku mel ni mbaaxaan doomi Lat Joor wala Salmon Fall wala yeneen buur yi fi nekkoon yépp ñu jël seen ay doom ubbi benn école bu ñuy wax école des otages ci ndar dugal leen fa jàngal leen tubaab jàngal leen nu ñuy yore réew ñenn ñi sax ñu jël leen yóbbu leen Tunisie pour jàngal leen nu ñuy yore naka la tubaab bi ni moomee réew moo nga xam ne mii am réewum jullit la naka la ñuy def ba jullit yi nangu moomeelu tubaab boobu loolu lañ leen jàngale woon bi ñu leen yóbboo Tunisie bi ñu dellusee ñoom lañ fal ñu nekk ay chef de canton fii ci bawol mbaaxaan fii lañ ko faloon salmon ndax dañoo pàcc bawol ñaari pàcc bawol oriental bawol gi féete penku ak gi féete sowu gi féete penku ñu dénk ko mbaaxaan gi féete sowu ñu dénk ko salmon fall ñu nekk fi kon ci loolu ngeen gis ni tubaab bi itam mu ngi xool nu mu noote islaam nu mu jariñoo islaam ngir noot senegaal ceddo it ñooñu ñu jël fal leen nga xam ne ñoom seeni maam ñoo fi nekkoon ay buur léegi tubaab bi jël leen tàggat leen def leen seeni ay liggéeykat teg leen ci boppu kuréel yu ndaw yi nekk ci réew mi ñu nekk ay chef de kanton ñooñu bi ñu ñëwee li leen tubaab bi santoon mooy bu kenn yëngu bu mu am benn fitna ci réew mi na ñépp di fay lempo bopp bu nee nay fay lempo bi ñu ñëwee installé wu ñu seetlu ni nit ñi li ëpp àddiya lañ gën a sawar a jox ni lempo àddiya lañ gën a sawar a joxe ni fay lempo mu indi ak fiiraangi ñu ne tant que sëriñ saa ngi fi surtout fii ci bawul sëriñ Tuubaa ngi fi tant que sëriñ Tuubaa ngi fi sunu nguur gi du mën a taxaw fii ndax taalibe yi duñ nangoo fay lempo lu ñu am dañ koy yóbbu jox ko euh, muy euh, naka la tuddati euh, addiya te boo leen woowee nga convoqué leen ci pays bi bala ñoo ñëw dañuy dem tàggu ci sëriñ bi ba am ndigal kon ñu am ak fiiraange ci sëriñ bi ñooñee ñoo sos gëmloo tubaab bi ni sëriñ bii kat day waa jiyaar waaw doo doomu nit ñu ñuul ñoo ñi nga xam ne ñoom la tubaab bi jëloon dénk leen réew mi nga xam ne ñoom ñooy donoy ceddo yi fi nekkoon continuer di noot nit ñi sonal leen di leen teg alkande ñu ñoo ni tant que sëriñ baa ngi fi li ñu namm ci réew mi duñ ko am ñuy sosal sëriñ bi di ko sosal ni mu ngi wol ay cere mu ngi jënd ay fas jënd ay ngànnaay gàmmi boo seetloo sax fi mu nekk tu Tuubaa Daaru Salaam boo seetloo boo nattee di digganteem ak fuuta nga natt ko natt diggante tuubaa ak Gàmbi ñoo tolloo fuuta jiyaarkat yi fi musa nekk yépp fa lañ jóge te arm ngànnaay yépp Gàmbi lay jóge yow nga nekk ci diggante bi ni nga soree fuuta noonu nga soree Gàmbi kon boo demee wuti ku la jàngal nu ñuy xeexe jiyaar di nga wuti ay arm Gàmbi boo ñëwee da ngay taal jiyaar bi sëñ bi sancee Daaru Salaam ñu tuumaal ko ci loolu ñi tabax tuuma ji chef de canton yi la ay nit ñu ñuul lañu dem gëmloo tubaab bi jamono yooyu sax gouverneur bi fi nekkoon moom ci bi ñuy tàmbali gëmul woon loolu mais dañoo bàyyi ba mu dem congé ñu tabax ñu taxawal tribunal bi ñu àttee sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo mois de septembre la septembre day jamono jamonoy bër gouverneur nekku fi woon ndax gouverneur bi fi nekkoon ñu da ko wax lamot moom jublu gëmul woon loolu ñu ko doon wax ndax da yónnee ñu yëddu sëñ bi te buñ ko yëddoo gis ni li ñuy wax ci moom dëppoowul ak li ko yëddukat yi di wax mais dañoo bàyyi ba mu dem ki organise loolu nag ñaar lañu ku ñuy wax Leclerc ak ku ñuy wax Merlin lu tax ñaar ñooñu organiser ko ñaar ñooñu kenn ki moo nekkoon administrateur u Ndar kenn ki jiite bureau politique bi yoroon gouvernement bi ñoom ñoo fi gënoon a yàgg ñoo gënoon a xam réew mi gouverneur yi dañ daan ñëw def fi ñaari at dellu ngir bañ fee dee ñoom nag dañ fee yàgg ñoo tàggat doomi ceddo yi ñoom ñoo leen tàggat ba dénk leen réew mi seen ñooñu ñu tàggat dénk leen réew mi bëgguñu woon sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba su fi saxalee daara taalibe yi dañuy jublu ci moom nit ñu jublu ci moom kon duñu déggal kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom lañ yebaloon fii ci biir réew mi Merlin moomee rapport bi nga xam ne bii moom lañ jàng ca bureau Ndar ba nga xam ne ci lañ jaare ni sëñ bi dañ koy yóbbu Gabon moom moo bind rapport boobu ndey rapport ba Leclerc moom moo ko bind Merlin sukkandiku ci li mu wax bind beneen rapport tuumaal sëriñ bi Leclerc moom moom la dajaloon ci jeewal kon bu ngeen seetloo problème yi am ci jamono boobu léegi leer na ñetti mbër ñu ngi daje ci géew bi di bëre nguuru ceddo yi néew seen doole wàññeeku na tubaab bi dooleem yokku na sëriñ bi yoon wi muy commencé samp mu ngi jóg ndànk-ndànk ci jamono jooju doomi soxna yi fi nekkoon yépp ñetti yoon lañ gisoon yoo nga xam ne yii yaakaar nañ ni ci lañ mën a jaar ngir réew mi bañ a naax saay ngir diine bañ a tas ci réew mi ngir daara yi bañ a alkande ñetti yoon lañ ci gisoon bi ci jëkk mooy dem ànd ak dammeel walla nga ànd ak teeñ comme ni ma jaxataka la def mu yiir la dina la bàyyi ngay jàngale dina la bàyyi ngay bind sa ay eh, xas lu mel ni xasaayit dina la may daal féex boo soxlaa tool dina la ko jox nga ànd ak dammeel dégg li ci sëñ bi wax moo doon weñ ñoo yem ñaareelu yoon bi mooy nga dem àndi ak tubaab bi comme ñoom bu el Mogdad nekk ci waawam xëy na dinga doxal sa diine waaye nag yaa ngi koy doxale ci daar al arb waaw foo nga xam ne fii doxal fa diine lu jafe lay doon ñetteelu yoon bi mooy nga taal jiyaar kon ñetti yoon yooyu rek lañ xamoon taal jiyaar wala nga ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi jël nag sa xel ak sa xam-xam ak sàkku am imaan sàkku dem ba ixsaan doon suufiyanke bu wóor taxul nga gis yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar nit ñi daal jàppoon nañ ne dangay ngay ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi wala nga taal jiyaar sëñ bi moom gis na ci li mu dund ci li mu dund ni ànd ak dameel sottalul mbir mi fekki tubaab bi moom xel xalaatu ko taal jiyaar ci des waaye moom dafa dund jiyaaru Maba Jaxu gis la mu jur gis la mu jur Maba daanu na ci somb bi mu daanoo waa këram dañ tasaaroo maamu ndare ak sayer mati juboowuñu ñuy xe ñu jote ba mujj tubaab bi ërtal leen ñu dem Gàmbi sëriñ bi ci loolu ci la ci la nekke tànk tànk ci la yaroo daf ko fekkee gis ni fitna ji jëmalewul réew mi kër léegi boo dumoo yow fitna xanaa nga dem àndeek tubaab bi comme ni mu leen ko waxee loolu du yoon nga dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ du yoon lu ci des nga gëstu bu baax xam jamono ji nga tombeel xam ne lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii nguuru ceddo yaa ngi fi teg alkande nit ñi di leen jàpp di jaay kon nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm kon waru leen a bett sëriñ bi sanc ab dëkk tudde ko Daaru Salaam kon moom liir na bu baax li société bi soxla ndax société bu dund ñetti téeméeri at nekk ci sawara nekk ci alkande nekk ci fitna ñuy taal dëkk yi di jàpp taal ngóob mi di teg alkande nit ñi muy góor di jigéen ñépp nekk ci fitna li ñu gën a bëgg mooy jàmm sëñ bi gis loolu moo tax dëkk bi mu njëkk sanc mu tudde ko Daaru Salaam man de noonu laa ko jàngate bi mu sancee daaru salaam teg ci ay at yu néew ña luy tolloog ñaari at mu sanc Touba waaye nag yemul foofu dafa am yoon wu bees pull wu mu tëgg teg ko muy yoonu murit mu wékku nag ci tabax nit ku bees kon xam ne am senegaal bu yàggul ci at yi ñu génn am na benn mouvement bu fi nekkoon tuddoon yaana maar ñu naan euh, dañuy tabax nouveau type de sénégalais man leen du fi gande da ngeen a xamul seen cosaanu réew rek waaye su ngeen ko xamoon di ngeen xam ni lii du fi gan am na jamono ñu waroon a tëgg sénégalais bu bees sëñ Touba moo tëral ni ñuy tëggee sénégalais boobu moo ko tëral mu ko tàmbulee jàng ca daaray Mbàkke Kajoor ja baayam sañcoon mu jànge ko mu jànge fa nu ñuy jàngalee ak nu ñuy tarbiyaa nit ba mu doon nit ku bees koo xam ne kii du wu du dara du ko jotale ak ki ànd ak ceddo yi dara du ko jotale ak ki ànd ak tubaab yi du niroog ñoom mu samp daara ju bees mais daara jooju boo ko sampee il faut nga génn nit ñi moo tax sëñ bi jóge Mbàkke nga xam ne commencé naa bari ay nit mu ñëw sanc daaru salaam sanc Touba mais nguuru tubaab dafa fiir lool rekk la bañ ku beru di jàngale jàngale moo xam ne mii musu fi woon a am ci loolu tubaab yi ni Merlin ci rapport bi mu bind def ni ñun kat sàgganoon nañ fi ba El Hadj jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Maba Jaxu jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Malick si jóg fi indil ñu ay jafe-jafe te Cheikh Amadou Bamba mii de lii muy sumb nii ci fi ñii jaaroon fi lay jaar ndax moom sax daan na wirdu wirdu xaadir te xaadir yi ñu am jàmm lañ léegi bàyyi na ko mu ngi wir wirdu tijaan te tijaani ñoom giyaar bu fi musa am ñoom ñoo ko taal loolu tuuma juñ tegoon sëriñ bi rek ngir fay daara ji ngir fay projet bi mu am tabax nit ku bees tëgg nit koo nga xam ne kii dina mucc ci yoonu ceddoo dina mucc ci yoon wi tubaab bi tëral bi mu defee loolu wéet ñëw fii tubaab bi ni kii dafa am lu muy waaj ñi nga xam ne ñoo doon nit ku ñuul doon ay chef de kanton Merlin ak Leclerc wax leen nañu ko sosal ñu sosal ko ni day waaj jiyaar ndax mu ngi jënd ay ngànnaay mu ngi wallu ay ay ay dugub di ko denc kon day waajal jiyaar te mu ngi nekk ci Bawol oriental muy Daaru Salaam gi mu sanc boo jógee Ndakaaru walla nga jóge ci géej gi boo ko ërtalee day génn mën naa daw dem jublu penku loolu moo tax mu nekk tuubaa loolu lañ jàppoon ni moo ko tax a ñëw fii Touba kon ngeen gis ni sëñ bi dafa ubbi yoon woo nga xam ne bii wu yéeme la li ko yéemeel mooy jamono ji mu tollool pexe yi nit ñi amoon yépp ñetti pexe rek la woon nga gis nag weneen yoon woowu wu lay tàggale ak tubaab bi te doo joteeg moom jote bu metti nga mu tàggale la ak ceddo yi nga am ak nit ku bees koo tëgg loolu yombul woon te ñi ko gis kenn kooku moo ko gis teg daaray tarbiya tàggat ci ay nit ñooñu mu tàggatoon biñ ko fexeelee ba yóbbu ko Gabon wone nañ seenu mat ndax ñoo tëye yoon wi ba sëriñ bi dellu siwaat yaakaar naa ni du fii laa leen di waxee li ci maam noo def yéen a ma ci ëpp xam-xam <laughs> yéen a ma yéen a ma war a leeralal ci loolu ndax xam ngeen lim ci def lu am solo lim ci def wala sëñ Abdourahman loo nga xam moom la dénkoon njàngale mi dénk njaboot gi maam na ñooñee niñ leen tàggate woon moo tax li mu doon jafe-jafe lim leen dénkoon mucc na ayib mu def juróom-ñaari at yoo xam ne lii mat na ci lu mat juróom-benni at kenn xamul fu mu nekk bañ jàpp ni sëriñ bi génn na àddina ñu am na sax ñu leen ko gëmloo woon ñu leen sëriñ bi génn na àddina waaye yëngalul seenu ngëm yëngalul yëngalul seenu pasteef la leen sëñ bi dénkoon ñu continuer yor ko ndax tàggat gañ leen tàggatoon def leen ñuy nit ñu wuute ci doxalin ak ceddo yi wuute doxalin ak ñi àndoon ak tubaab bi ñoom ñu indi doxalin wu bees doxalin wu bees woowu ñu leen tàggat loolu moo tax ba ñu mën a dékku jaamaarloo yi ci amoon muy sëriñ Maam Mor Maane wala sëñ Alioune juuf làmbaay ba leen teeñ tanoor songee ni leen dinaa tekki seen laxasaay yi tàggale leen nag ci Amadou bàmba sëriñ maam Mor maane ni ko da kàcc dañuy dem Touba kon loolu lañ tàmbalee woon ma bëggoon leen a woon li nga xam ne mooy ceddoo gi fi nekkoon won leen li nga xam ni lii mooy li tubaab bi namoon ci ñun wala ñi nga xam ne dañoo taal jiyaar fitna. bi mu doon àndal nga xam ni réew mi àttanuñu ko woon ndax réew mu dund ñetti téeméeri at ci alkande boo leen bëggee teg jiyaar duñ ko àttan te moo ne bu nekkenteen danga jàng alxuraan rek topp ci taal jiyaar ku la noot teg la loo xam ni tegu ko te nga nekk ci diine taal jiyaar jaadu na kon boo tànnoon lu yomb danga naan rekk fi mag ñi jaaroon laay jaar damay taal jiyaar waaye soo gëstoo jamono ji nga tombeel xam jamono ji li mu laaj nga xalaat ko moo tax sëñ bi du diine rek du diine rek dafa indi ci wàllu koom-koom indi ci wàllu politik indi ci wàllu social lu nekk mu am yoon wu mu tëral ñu war cee jaar yoon woowu pour nga jaar ci il faut ñu yar la yarub tarbiyaw sunu jamono ji ñu tollool itam nag loolu dafay xaw a tumuranke lool ay gune ngi sànku ni dañuy def jiyaar li ëpp ci ñi ñuy rey ay jullit lañ kon xam nga ni jiyaar booba moom ak sànkute rek lay mën a jur ñenn ñaa ngi ànd ak nguur yi lu buur bëgg nga ni dagan na kon ñetteelu yoon bi lañu xa lañu mel ni dañ koo fàtte man dama ne woon bu fekkontee ni diplomatie sénégalaise xam nañ bu baax seen histoire réew mën nañoo nekk les meilleurs conseillers des Nations Unies wax leen ni problème bi ñu jàkkaarlool nii muy jiyaar bi ñuy xeex nii musoon na fee am lu ma téeméeri at a ngi nii ci ginnaaw lañ ci génne yaru tarbiya moo ñu ci génnewoon woon jiyaar génnewuñ ci woon topp tubaab bi génnewuñ ci woon topp nguur gi génnewuñ ci woon toppatoo njàng mi ak njàngale mi ñu teg ko ci yoon yar xale yi ci yaru tarbiya moo ñu ci mën a génnewaat ci jamono jiñ toll nii war nañ xoolaat bu baax suñu ekool yi ak daara yi ni muy doxe ñu xool daaray mbàkke kajoor ja lan lañ ca mën a jàngate pour jubbanti suñu daara yi ñu am nii muy daaray alxuraan di daaray tubaab nag surtout daaray tubaab yi yaakaar naa ne daaray tarbiya moom amul grève <laughs> ñun nag suñu daara yi moom nga xam ni ñu ngi ko tëggee ci tubaab bi lim ñu fi bàyyil waaw ñoom bi ñaare léeg-léeg ndongo yi sax ñooy ëpp martaba ñay jàngale <laughs> waaw am na sax ñuy pes ñuy pes seen seen seen jëwriñ waaw fitnaal ko kon bokk war nañu xalaataat man njàngale lañu war a jàngale ci Sénégal mu dëppoo ak suñu cosaan dëppoo ak suñu taarix dëppoo ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon donte que dinañ ko dëppale ak jamono waaye reen bi moom waruñu ko waruñu koo buut sànni te fleur rafet na lool fleuru garab rafet tóor tóoru garab rafet na lool mu nga ca kaw yamb yi di ko biiw ndax ab rafetaayam waaye bu sàgganee reeni garab ga ba reen ya dee garab gi dee reen yi moom du ñu daanu ndax ci suuf lañ nekk fleur tóor tóor ma nekk ca kaw bu daanu dee am mooy gën a metti ab jël bu loru dee am mooy gën a metti ab jël kon loo ràññeeku ràññeeku rafet yamb yi di la biiw ngay xeeñ euh, kële misk walla jasmin bu mu la taxa beew mukk ba nga fàtte sa cosaan fàtte say reen ndax soo fàtte sa cosaan fàtte say reen bu reen yi dee garab gi dee yow ma nekk ca njobbaxtalu garab ga sëb jël mooy gën a metti asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu loo maa ngi leen di sant yéen ñëpp ci seenu teew euh, jërëjëf professeur sëñ Ibrahima Thioub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne àndil nga ñu ko te mooy fàttali cosaanu senegal ci diggante buur yi fi njëkkoon a nekk naka lañ doon dundee ba sëriñ bi ñëw fekk leen fi jëlaat beneen méthode bu bees boo xam ne ci la jële askan wi bu ñuy wax ne sëriñ bi da dagg na buumu njaam yi yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane as lëf la ci dara la ci mooy sëriñ tubaa dafa ñëw àndaale pas-pas bu bees waaye boole ko xel mu yaatu mu rëy moo xam ne mooy tax ba la mu waxoon ne sama liggéey bi danaa ko liggéey ba mu ba mu jeex te xat bu damm deret du tuuru yaakaar naa ne mooy lii nga doon waxtaane te mooy fexe ba génnee nit ñi ci ñàkk xam génne leen ci leen ci alkande génne leen ci toroxtaange yóbbu leen ci ak njullit gu wér defar leen ba ñu mën a yor seeni bopp kon yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane lu am solo la lu mat a bàyyi xel la su ko defee nag loolu yaakaar naa ne war nañ cee mën a jàng ci sunu dund gu yees gi mooy fexe ba sëriñ bi fi mu bàyyee woon xeex bi te mooy fexe ba def jullit ñi ay jullit piir jullit xaqan mooy naka la ñuy fexe ba foofu duñu fa jóg xam ne lépp euh, tartar du ko maye li ñuy wax on wa du ko maye euh, xeex ak doole du ko maye waaye xel moo koy may ak gëm yàlla gu wér su ko defee itam loolu lu mot a bàyyi xel la rawatina ci jamono ji ñu toll njàngale mi sëñ bi jàngale itam yaakaar naa ne feeñ na bu baax a baax ci waxtaan wi loolu itam ñu ngi la ci sant bu baax a baax xam naa du ñàkk am na ay laaj yoo xam ne ñëw na ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane te mbokk yi doon teewlu laaj ko andi ko ci li nga doon waxtaane mu ne <clears throat> bokk na ci yooyu kii dafa ne kuli téng la moo doon kan euh, kon xam naa laaj yi aju ci lii mu doon waxtaane naa génn laaj mu ne Koli Tengela moom mooy kan waaw Koli Tengela <coughs> buur la boo nga xam ne bii yoon wi ñuy wax deñank deñanke deñankoobe ñoom ci fuuta lañ nekkoon waaye cosaanoo fuuta ñoom ci bëj saalumu réew mi lañ jóge woon euh, quinzième siècle màng dox jëm si fuuta ndax fuuta boo ko seetloo askanu Sénégal yi ngay gis yépp li ci ëpp foofu lañ jóge ndax fii sunu réew yi féete maral da leen a yomb nga toogum at taw bi du taw lu doy ngir nga mën a bey daf leena a yomb ci loolu moo tax fuuta nga xam ni dafa am dex dex gi day baawaan tooyal fépp nga mën faa bey mën ngaa bey ñaari yoon ci at mi soo nekkee Fuuta moo tax da daan mel ni comme acier di xëcc nit ñi ñuy ñëw ci booru dex gi dëkk si fa mais su jamono naataa naatee taw bi dellusiwaat di dox nam daan doxe ñu bari dañ fa daan mànge delluwaat ci biir réew mi ndax da doon xat fuuta noonu la nit ñi dañ doon dem ak di ñëw muy wolof yi di séeréer yi di alpulaar yi tukulóor yi ñoom ñépp foofu lañ jóge laata moo tudd fuuta sax takk ruur la tuddoon am na ñu ko tekkee dëkku kuur mooy ñoo xam ne ñi seen cosaan du woon diiney islaam waaye nag teewul almoravide yi biñ fay yegsi ñoom booba li ëpp ci ñoom ay jullit lañ te ki nga xam ni kii moo sos nguur ci réewi wolof yi muy njaajaan njaay baayam foofu la jóge woon mu sëy ak ko nga xam ni kii yaayam di tukkulóor di doomu Abraham sàll Lamtoor donc noonu dex gi doon xëccee nit ñi lool dafa amoon ñu jóge ci bëj gànnaaru réew mi ci bëj saalumu réew mi dox wut si fuuta biñ yegsee ñoom ñu xarañ lañu woon ci xeex ak ngànnaay ñañ fi fekk ñu deen wax nguuruk tonjon yi ñoom deñanke yooyu muy waa kolitengelaa jiite leen moom moo nangu nguur ga falu ci Fuuta quinzième siècle ñoom ñoo fa nekk ba torodo yi ñoo leen fa jële torodo yi ay jullit lañu woon yoo xam ne yii Souleymane Baal ak Abdul Xaadir Kan ñoo leen jiite woon ñoom ñoo naas saayal nguuru deñanke yooyu nga xam ni Koli Tengela moo sampoon kooku mooy Koli Tengela. waaw jërëjëf kii itam nee na daaw Demba ndax ab jullit la woon daaw Demba. Ah, ndax ab jullit la woon ndax ab jullit la woon. waaw daaw Demba moom ceddo la woon ak njuliteem moom euh, su ko waxee sax ci làmmiñ war nañoo mën a jàpp ni nekku ko woon ndax wax naa leen ni mu doon doxale euh, xam nga ku dajale nit euh, réew waxambaane yëpp rey leen seen baay. boo ko tuddee jullit tam de dina am lu des xanaa ni dëkk bi ku mu neex fudd waaye boo fuddoo doo wàcc say loxo te man rek maa fi lekk xorom te ku yëngu nga nga fàdd euh, teg nu def nu dul noonu kooku de bu dee jullit ak njullitam moom xarees na koo seetaat loolu daal laa ci mën a tontu mooy daaw dem kii nee na moom fi jële waaw muy laajte yan njàngat lañ mën a def ci wàllu politik ak wàllu social ci li nga xam ne lii mooy xalaatu sëriñ bi waaw loolu bari na am na lu ma ci junji mooy ni euh, réew mi nga xam ni moom nga nekk bala ngaa jëggaani feneen leneen di leen ko teg nga xool lan mooy seen cosaan boole xalaat lan mooy seen problème ci jamono yi ñuy dund lan mooy seen problème problème boobu fan la jóge lu ko jur nga xalaat lu ko mën a faj ndax boo dee xalaat ay yoon yu bëre ubbeeku yoon wu nekk danga caa war a def sa kem kàttan pour xam ndax jeexital ba mu am ci askan wi dina baax wala du baax soo jàngee charia rekk man nga yeewu rekk ni bu nekkee ci ay jafe-jafe nañ taal jiyaar la mu jural Maba ku nekk gis na ko la mu jural Amadou Cheikhou ku nekk gis na ko mais boo nekkee ci réew moo nga xam ne mii ñi ëpp ci réew ma ay baadoolo lañ ñu toog ñetti téeméeri at nekk ci alkande nekk ci fitna boo ñëwee bëgg leen a ca fitna jooja ndax nga ni wax nañ ci alxuraan wala wax nañ ci àddis ni bu nangam amee da ngaa war a jiyaar nga fekk réew moo xam ne mii ñu ngi ci alkande lu mat ci ñetti téeméeri at nit ñi sonn nañ feebar bu nekk dal na leen ngën leen dañuy continuer fitna jooju dañuy continuer nekk ci mooy jàngatoo jàngatoo wàllu politique jàngatoo réew ma ci luñ toll loolu sëñ bi jàngal nañu ko ni foo nekk da ngaa war a seet loolu yegg metti na ko lool ba mu xalaat jiyaar kon moom buy jëloon lu yomb def lu yomb day taal jiyaar comme ñëpp rek wala mu dem ànd ak dammeel wala mu dem ànd ak tubaab bi loolu moo gënoon a yomb mais mu xalaat li gën a jafe mooy tàmbali loo nga xam ne lii mën naa am doo gis njariñ la ndax xale bu toll ci juróomi at juróom-benni at yow nga am lu mat ñeent fukki at nga di ko jàngal mën naa am bis bu njariñam di feeñ doo ko fekke boo yàkkamtee na nga tànn solution boo xam ne bi baaxul ci wàllu politik loolu war nañ koy xalaat bu baax a baax a baax a baax politique du pour sa bopp pour askan wi la sàmm alalu askan wi teg leen ci yoon ñu xam lu ñu war a def ak lu ñu wërta def nga jox gëdd ak fulla ak fayda njàngale loolu mën nañ ko cay jàng ci wàllu social li taxoon ceddo yi gën a xarab sëriñ bi ndax sëriñ bi moom li ko soxaloon mooy fi nit ki toll ci yàlla martaba ku nekk martaba bi mu lay jox ci fi ngay toll ci yàlla la la ko la ko doon teg mais réew ceddo yi réewu ñun suñ cosaan fii lan moo daan def ba nit mooy nga doon garmi ci sa juddu bu nekkee géwél nga walla wuude nga walla tëgg nga dañ lay sof dañ lay sofental sëriñ bi nag ci waaso yooyu ci ngir yooyu dafa am ñum ci yëkkati ñu am solo ceddo yi mere ko ci loolu naan moom day jox ba ko nga xam ni kii démb rek sama géwél la woon sama jaam la woon mun leen liy màggal nit kët du ca deret ja waaye ca na mu gëme yàlla ngëmam fu mu toll loolu moo am solo kon géwél bi mën naa gën a jige yàlla giir jaam bi mën naa gën a jige yàlla sànq loolu itam ci wàllu social sëriñ bi moo ñu ko jàngal ni ñuy féewaloo ni xàjjali ko xeeb nit ndax géwél la xeeb nit ndax tëgg la xeeb nit ndax wuude la loolu sëriñ bi jële woon na ko fi waaw am na ay seexam yoo xam ne yii ci ñooñu ci ñooñu lañu bokkoon te kenn du leen ko xoole te sëriñ bi xoolewu leen ko woon ci wàllu social kon am na lum ñu jàngal lu am solo foofu avant la colonisation la colonisation en tant que telle waaw euh, colonisation maanaam tubaab bi da fi ñëw ci da ngay séddale nekk nekkam fii ci ñaari jamono asalaamaaleykum wa rahmatullah billahi say aouzu billahi samil alim albaaxil xadim min asheytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ci weer wu tedd bii xam naa di amaan mbégte lool nag ci teew ci jataay bi di dalal mel mbokk ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom jotaayu xam-xam ci barab bu tedd bii niki noonu kon tey ñu ngi fas ne ànd ak professeur Ibrahima cubu ñu gën koo xam ci ancien recteur bu université Cheikh Anta Diop moom lañu ñu war a amal tey waxtaan wu am solo muy waxtaan ci Cheikhul Khadim fan la fekk société bu senegal ak fan la ko yóbbu mu doon kon thème bu am solo boo xam ne bu mat a teewlu la waaye bala ñoo ñëw ci loolu bala ñu ko jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee ci képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak yëngatoom ci xam-xam mën nañoo wax rekk ne Euh, seen Ibrahima Thioub mii mi ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax malikunda ca weti Mbuur euh, bi mu tombee bi mu tollee ci dal am njàng itam ci la dugg daara alxuraan def na fa ñaari at gannaaw bi ci la dugg ci école française bi ca Mbuur tàmbalee fa am njàngam ci atum 1962 ci la am CFE muy lijaas bi gën ndaw ci école yu ndaw yi gannaaw bi ci la continuer am njàngam dem ca Thiès ba yegg ci lycée Malick Sy foofee la amee baccalauréat am gannaaw bi ci 1972 ci la dem ci école normale ba 1976 euh, jaar na école normal ci diggante boobu ma tudd gannaaw bi itam affecté nañu ko waat Thiès mu nekk fa comme jàngalekatu primaire gannaaw bi la dellu jàngaat ba dem école normale supérieure gannaaw bi ci la fa nekk ba am fa master 1984 gannaaw bi nag ci la bawoo ci réew mi dem bitim réew ca France Paris foofee fa la nekk di fa jàng ba am doctorat ci atum 1989 gannaaw bi itam nag bi mu dellusee ci réew mi affecté nañu ko ci ay lycée yu bari mën nañ cee lim rek lycée Lamine Gueye ak John Kennedy bi nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru gannaaw bi ci lañ ko yóbbu université Cheikh Anta foofu mu nekk fa comme assistant gannaaw bi ci la yokk ay jéegoom ci wàllu njàng ba ñu nommé ko fa professeur mu di fa jàngale histoire gannaaw bi ci atum 2014 ci lañu ko fa nommé comme recteur mu yor rectorat bu université Cheikh Anta euh, ci atum 2020 ci la jël retraitem mooy koo xam ne daanaka liggéeyatut léegi ci gouvernement bi mën nañoo wax ne nag ay gëstoom nag da koo jëmale ci wàll fànn goo xam ne gu am solo la muy histoire Afrique kon lépp loo xam ne jëm na ci taarixu Afrique ak yi jaar-jaaram ak i xew-xew yi fi mës a am moom ci loolu lay gëstu kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaane loo muy sëriñ tubaa fan la fekkoon société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu loolu lu mu xam la lu mu mën a waxtaane la kon yaakaar naa ne incha allahu taala mën nañoo fàttaliwaat mbokk yi ne leen euh, waxtaan yi ñuy amal fii képp koo xam ne raw na la am na fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne euh, dañuy tegaat waxtaan yi ci diggante Touba ak li ko wër waaye mën nañ cee tàmbale rek wax ne rajo Daarul Muxti bii direct la koy def ak rajo Bawol Média ñoom ñaar yooyu direct la ñuy def waxtaan wi buñ ca jógee itam Daarul Muxti dana ko tegaat suba ci 14h 15h Zik FM dana ko teg 14h quinze h moom tamit Walf dana ko teg 19h jant bi 0h iRadio dana ko jàll 18h30 RTS Diourbel 13h30 Benno FM 17h Sud FM 20h30 Lamp FM 23h UCAB FM dana ko jàll 9h du matin Bawol media bi ma waxoon sànq tamit direct la koy def. four FM dana ko jàllale vingt heures rajo Bambey dana ko jàllale vingt deux heures euh, Daara ji FM dana ko jàllale euh, moom tamit Daara ji FM moo mooy bi nekk Kébémer leer gi FM mu nga nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan bi RTS Touba moom tamit dana ko jàllale neuf heures Touba Fall FM moom tamit huit heures du matin fa la ko ci la koy jàllale kon rajo yooyu yëpp mën nañu wax ne waxtaan yi dañu koy jàllale. bu dee chaîne télévision yi nga xam ne ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi mën nañ cee lim Touba Vision Touba TV day jàllale waxtaan wi chaque jour Lamp Fall TV itam dana koy teg une heure une heure une YouTube yi nga xamante ne moom la ñuy lim itam chaîne YouTube yëpp dañu koy def direct kon mel na ni boo xoolee mbooloo mi sax ñu ci ëpp daanaka foofu lañ koy suivre tàmbalee ko ci Al Wafa bu Daarul Moxti Touba Vision Baye Daaru Média nekk ci dëkk bi xam alxadimiya bawal média facebook bu alufaa bi itam da koy def gannaaw bu loolu jàllee itam ah, ren ji ubbi nañu fukki eh, groupe ak ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne groupe yëpp fees na te waxtaan yi rek lañu fay jàllale kon mel na ni waxtaan yi yaatu na lool telegram bi itam ku tàppe alufaa Daarul Muxti depuis 2006 ba atum ren ji waxtaan wi sëñ Ibrahima di def dana ca nekk kon incha allahu taala ñu fàttali itam mbokk yi ne leen suba ci <clears throat> talaata ji danañu dalal sëñ fàllu sàmb sëñ fàllu Samb yitam ñuy am moom waxtaan ci dem bi ak dikk bi ay loraangeem ak njariñam su ko defee àllarba ji euh, ambassadeur Modou Fall moom tamit dana teew ci jotaay bi waxtaan ak mu ci ahamiyatu sifara fil xaarij maanaam yan njëriñ la ambassadeur yi amal sénégalais yi ci biir réew mi ak bitim réew su ko defee alxames nga xam ne ci la ñuy tëj jotaay bi nag sëñ Mamoor Amdi moo yeneen i kilifa daañu fi teew su ko defee ñu waxtaane mustaqbalul muridiyya maa ëllëgu yooyu murid loolu kon moom mooy li nga xam ne moo aju ci asum ñu ñaan ñu ñaan yàlla teewee ko at yu baree baree bare bëri te yëpp ñu ànd ko wér euh, su ko defee incha allahu taala dañuy jëbbal kàddu gi sëñ Ibrahima cubb ñaan yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci li nga xam ne moom lay waxtaan itam incha allahu taala mën na koo bind moo xam ñuy suivre ci youtube bi la moo xam ñu nekk ci jotaay bi bu ko bindee bu ko jébbalee ci ñu yor wàllu googu incha allahu taala dinañ ko jàllale su ko defee moom mu tam tontu ci tontu ci après jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aousubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar eh, sëriñ Muntaxa Mbàkke Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des Mourides di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu di ziar xalifa Daaru Mufti di nuyu di ziar kilifa diine yépp yoo xam ne yii ñooy kilifa diine nekk ci tarixa bi di muridiya ñi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci rajo yi ak télévision yi yépp ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar baax a baax eh, di sant waa daayira bi nga xam ne bii ñoom ñoo sàkku ci man ma ñëw def waxtaan wi ci weeru koor wu tedd wi maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax bi nga xamante ni jokkoon nañu ak man it man sama gëstu eh, depuis 1990 ba léegi eh, muy romb léegi fanweeri at mu ngi jëm ci taarix mooy histoire surtout histoire Afrique euh, pàcc bi ma ci gën a féete mooy diggante dix-neuvième ak vingtième siècle mooy ñaar téeméeraat yi ñu weesu lan moo xew ci Afrique ak lan lañ ci mën a jàngate ndax histoire du caagee nag xool li weesu rekk du lu weesu moo ñu amal solo déedéet liy ñëw ëllëg moo ñu amal solo maanaam li koy misaal mooy dafay mel ni rétroviseuru oto booy xool sa rétroviseur li ci sa ginnaaw ngay gis waaye li ngay li tax mu amal la njariñ mooy mu tere laa am accident bi ñëw ci sa kanam histoire donc loolu lay jariñ xool jaar-jaar yi fi amoon lan lañ ci mën a jàngate ngir xam li ñuy dund mooy lan naka la ñuy tabaxee ëllëg ci askan wi ci noonu bi ñu ma laajee thème boo bii mën naa ci waxtaan dama leen nii mën nañ xool jamono ji nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa daje loon nu mu demee woon euh, yan jafe-jafe moo fi amoon yan pexe la ci nit ñi amoon ak moom yan pexe la ci jël lu mu ci indi ndax bala ngaa dégg dëgg li sëriñ biy wax nga xam yan jafe-jafe la jàkkaar looloon ba indi ci ay tontu euh, da ngeen di jàpp ni nag jafe-jafe yooyu yu tar la woon am na lu bari li ci nit ñi gën a xam mooy liñ ko yóbbu woon Gabon wala ñu yóbbu ko Mauritanie mu jaamaarloo ko ak tubaab bi mais am na yeneen yoon xam ne yi moo jur loolu te ñaari nit ñi dinañ koy umpule loolu laa ci bëgg a génne tuuti rek euh, ci waxtu yi nga xam ne yii moom lañ ma may euh, gëstu bi nag li ci ëpp ci tubaab lañ koy def waaye comme ni ma koy waxee wax ko ci wolof man moo ma gën a yomb wax ko ci tubaab eh, damay tàmbulee loo nga xam ne lii xëy na mag ñi xam nañ ko su ma ko tàmbulee sax xam na am na ay mag ñu fi nekk dinañ ko mën a yeggale su ma nee ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seyxu bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ma moo jébbalu woon dem tuubi ndeyam di jooy mun naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane sëriñ Mor Mané sëriñ Aliou Diouf ñilee ko daane keroog dëlee na woo fa péncam làmbaay naan leen danaa leen tàggaleeg laxasaay keroog dëlee na boole ci wurmbal ñuy kenn kennoo farba ja farba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal daan dànn di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen baleen seex bàmba mbaama rendi murit yi yépp ma nga ma nga naan ba màndi murit yi naa ko bàmba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey noo yi sëriñ Momar Maane ko tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk dag ya ni tis pénc ma daldi jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daldi laxasu murit ya ñëw Touba xibaar ko Bàmba mu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jal ba ceddo ya dem kalaame kook borom ndar mu dangeen mokk mbaa mel ni aw dër ñi xam sëñ Moussa Ka xam nañ ni loolu ci jasaw Zakoor la jóge boo ko gëstoo ci li ma ci jot a jukki noonu jukki boobu ma ci génne am na ñetti mbër di bind wolofal ñoo leen di defaral ay téere danga nga gis ku soxla téere lu mel ni ak dàkk boo ko soxlaa dinga ci def lu mat ay fanweeri jaam ngir ndax xeex bi bari na il faut nga wut gàllaaj gu tax nga tul te loolu dañ ci daan ñàkk lu bëree bëri ci alal ndax xeexoo bi bari kon sëriñ soosu am na sëriñ soo xam ne si dañ daan ànd ak nguuru ceddo yooyu euh, ci biir ànd boobu teewul nag am na ay doomu soxna yoo xam ne yi dañoo jóg xeex ak nguuri nguuri ceddo yooyu bari nañ lool ci suñu réew mi ki ci jëkk nga xam ni booba buur yi buur buuri ceddo yi ñu ngi jël nit ñi dëkk bu ñu dem taal ko jël nit ñi yóbbu dem jaay tubaab bi tubaab bi yóbbu ñoom ñu jënde ko sàngara naan nekk ci li neex seen bakkan di toj réew mi mu doon alkande ju rëy ju dal ci kaw réew dajeeg léeg-léeg ay njéeréer dangay ngay bey ba góob rekk des ci ceddo yi ñëw taal sa tool wala njéeréer yi ñëw lekk ko wala mbas ñëw comme mbas mi am nii léegi da doon am ci jamono yooyu muy jamono ju tar ju metti te li leen ko tegoon nguur googu ñu amoon te muy nguur gu baaxul moo leen ko tegoon te réew yépp nag moo fi moo fi sësoon muy Kajoor Bawol Waalo Siin Saalum Fuuta fépp ñoom ñoo fa nekkoon léegi jullit yi am ci ñu jóg ni nag war nañoo seet nu ñuy def ak nguur yi lu ñuy tàggaleek ñoom ki ci jëkk Nasr al Din la tudd Mauritanie la jóge woon ànd ak ay jullit yu nekkoon fii ci réew mi ñu samp nguur xeex ak ceddo yi gañe leen samp nguur gu ñuy wax nguuru buuri jullit loolu 1673 la amoon bi mu amee mun leen yàlla sàkk lu leen ay kilifa ngir ñu di leen jaay ak di leen toroxal ak di leen noot yàlla daf leen jox kilifa pour mu aar leen teg leen ci yoonu yàlla looloo tax yàlla am ku mu teg seen kanam mais seen kilifa yi ngeen am nga xam ne ñoom dañ leen di jàpp taal seen kër yi taal seen euh, ngóob mi fotoñ leen jaay tubaab bi dañuy jóg xeex ak ñoom ngir tàggalikook ñoom biñ ko defee réew mi ànd ak ñoom ñu daaneel buur yooyu mais tubaab yi nga xam ne loolu arrangé wu leen jox leen ay ngànnaay jàppale leen ñu daaneel nguuru jullit googu nga xam ne moo njëkk am fii ci Sénégal di nguuru jullit di 1673 biñ leen daaneelee ñu bëri ci ñi bokkoon ci xeex ba doon ay jullit dañ leen a jaay ñu yóbbu leen Amérique mais ñi ci des dañoo tasaaroo ci biir réew mi. taal ay taal jàngu di fa jàngale arrêté xeex bi te xam ni ceddo yi neexagu ñoo song ñu ne nañ wutiwaat doole ba ci kanam ci noonu Abdul Xaadir Kan ca Fuuta moo jógaat xeex xeex bi ci jamono ci Amari Ngoone Ndee la mais moom itam dañ ko gañe ci xeex boobu ci dëkk bu ñuy wax bungo yi bàyyi ma Lamine saar ku nekk dégg na ko moom itam Amari Ngoone Ndeele moomu moo ko daaneel ci xeex boo xam ñu ngi ko xeexoon ci dëkk bu ñuy wax cax réew ñu jàpp ca ñu bari jaay leen ay def leen ay jaam jaay leen ñenn ñi daw ñooy lébu yi sañc nguur gi nekkoon ndakaaru sëriñ ndakaaru ci loolu la jóge ci xeex boobu la jóge ñoom dañoo jóge kajoor dem Cap-Vert ci lañ ko samp jullit yi continuer di xeex ngir teggi nooteel googu ñàgga isa ca waalo 1827 1830 Malick Sy ca Bundu bokkul ak Seydi Hadj Malick bu Tiwaawoon am na beneen Malick Sy ci Bundu kooku 18e siècle la El Hadj Oumar 1860 Maba Jaxu 1861 1867 Maba Jaxu boobu lu am solo la ndax Maba Jaxu ci ripp fu ñuy wax baadibu wolof yi di ko wax ripp soose si di ko wax baadibu fa la nekkoon am buur bu fa nekkoon ñu di ko wax jeere ba maroon mu am doom ju tudd jàkkere basin ñoom ñaar ñoo tegoon nooteel gu tar ci kaw jullit yi ci kaw mbooloo mi askan wi kooku dafa xëy benn bis dem ci kër benn nit fekk fa doomu jànqam mu jël ko yóbbu gëf ko yóbbu ko ci pey ba yemul ci loolu mu bind lettre jullit yi ni leen dajal leen alal yi ngeen am yépp jëndal ma ci ay gàtt yónnee ma ko ndax damay takk seen doom ji te se gàtt ngeen may yónnee ci laa war a organiser fête bi may feetoo sëy bi ñu nar a sëy xam nga loolu jéggi na dayo lool Maba Jaxu ne nag loolu moom mënuñu koo seetaan ci la taal jiyaar moom itam bi mu taalee jiyaar daan buur boobu lu mat ñaari weer rekk mu jóge Gàmbi tey ci foo ci Gàmbi la nekk tey di Saalum ñaari weer rekk mu nga Jolof buur yi fi nekkoon yépp mu faagaagal leen samp nguuru jullit ci noonu mu jël kilifa diine yu bari yu nekkoon ci réew mi tasaaroo mu jël leen yóbbu ñooro bokk na ci ñooñu Mamor Anta mu ànd fa ak Soxna Jaara Buso ñu nekk Poroxaan mu ubbi fa daara di fa jàngale doomi ba Jaxu ci daara yooyu lañ doon jàngee ku mel ni Sayer Mati am na nag wuute ci loolu ñenn ñi nee nañ dafa forcer sëriñ yi ñu ñëw ci moom ñenn ñi ni dafa waxtaan ak ñoom ba yóbbu leen fa waaye lu ci mënti xew daal Maba moom xeex na xeex bu gaaw faagaagal nguur yi fi ne ko ndax nguur yooyu amuñu woon kenn ku leen jàppale ndax nit ñi dañ leen a dumóoyu woon ndax niñ doon doxale mais Maba bi mu demee xeex ak séeréer yi siin la daanu ci somb 1867 ku mel ni Lat Joor ca xeex booba la bokkoon démbawaar doonoon jaamub kajoor jaamu buur moo ko fa jële delloo ko kajoor Maam Mor àndaat ak moom dellu kajoor Cheikh Amadou Bamba des poroxaan ba ni waajuram wu jigéen génne àddina la fekki waajuram wu góor ci kajoor nekk fa moom ci jamono ji muy nekk kajoor am na xeex bu dox diggante Amadou Cheikhou ma jóge woon Fuuta song kajoor ak Jolof ci turu lislaam di xeex ak nguuri ceddo yooyu ci jamono jooju Lat mooy dammeelu kajoor am na jamono sax Lat ànd na moom waaye dañoo mujj féewaloo bi mu dalee ci kajoor dal ci jolof alburi ak Lat ànd di xeex ak ñoom tubaab bi jàppale leen ñu xeex Samba saajo bi ñu xeexee Samba saajo fa la Amadou Cheikhou daanu bi mu daanoo taalibe yi mu àndaloon ñuy xeex ñu jël leen ñoom ñëpp indi Kajoor def leen ay jaan mu jur werantewu rëy diggante ñi nga xam ni ñooy ulamaay kayoor yi àndoon ak dàmmeel ak Cheikh Amadou Bamba te booba toll na ci ak ndaw waaye nag fekk jàng na njàng mu wóor mu dëgër ba am lu mu làq ci xam-xam mu warante ko ku mel ni xaalima jaxate kala ci loolu bind na benn lettre bu mu jox dammeel bi ko xaalima jaxate jotee dafa jàng leetar bi dammeel ni ko wax ma lu ne ci lettre bi mu ne ko leetar bi jubluwul ci yow ci man mii la jublu mu ne ko sarax ma ngir yàlla wax ma li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci leetaram bi ndax booba ñu ngi lijjanti nu ñu def ba sëriñ bi ñëw nekk ci nguuru dammeel mun leen man jombale naa samay tànk mu jóg di dem ci benn buur bu dul yàlla ñoom ñu ngi fexee nuñ ko dugalee naan ko boo ñëwee dinañ la jox alal dinañ la jox martaba dinañ la jox dinañ la màggal loo soxla di nga ko am bu dee suuf ak lépp di ko am waaye fekk na booba moom du mooyu na loolu ba mu werante ceeg ma jaxate kalam mu ngi ko naan sëriñ bi gën buur bi gën ci buur yi mooy buur buy seeti sëriñ dafa taatan nu mu yore nguuram waaye boroom xam-xam buy dem ci kippaaru buur mook weñ wu dem ci ay jonkon ñooyam loolu la bindoon ci leetar bi moo tax ma jaxate kala ñimewu ko woon a wax dammeel mais bi mu ko waxee dammeel dammeel ni ko yow kay amoo ciy mer ndax yow yaay weñ wi waaye man xam nga li ma doon waaye nag day day ndaw rek bu màggee dina dina dina soppeeku nañ ko jàpp ni ab ak ëkk la gu nekk ci suñu biir tool bu ñu béyee ba yegsi ci nañ ko wër rek mooy te ko continuer béy kon boog nguur yooyu fi nekkoon am na ay jullit yu àndoon ak ñoom am na luñ doon def lonkan dëppoowul ak yoon ñu teg nit ñi alkande teg leen ay jafe-jafe ay yu tara tara tar mais ci jamonoy sëriñ bi fekk na booba tubaab bi dal na ci seen kaw nasaxal na leen ñoom ñuy xeexoo ci seen biir ba néew doole nga xam ne bi leen tubaab bi faagaagal daanaka dara desatu fa woon teeñ tanoor ma ma leen waxoon ca ba may tàmbali bi cee Yacine Gallo Gànna daanoo ci Bawol moom moo ko remplacé mu jóg nag ni moom day fay islaam kon boog ngeen gis ni nguuru ceddo yi am na ay doomi soxna yu ànd ak ñoom mais am na ay doomi soxna yoo xam ne ñu nga ànd ak tubaab bi ca Ndar ku mel ni bu el Mogdaad nga xam ni ñu jàng lañu woon ñu am xam-xam waaye ñu ngi dëkkoon ndar nekk ak tubaab bi di ko bindal lettre ak di tekki lettre araab yi ñu leen doon bind ñoom ñoo ko doon teggi tekki am luñ cay amee euh, ci noonu tubaab bi ni leen ñun dafa am lu ñu jaaxal El Hadji Umar mii di woote jiyaar wala maaba Jaxu mii woote jiyaar lan moo tax ndaw ñi yépp di fàq jëm ci ñoom xam nga laaj boobu tey boo ko boo seetloo jamono ji ñu toll nii nguur yu bari ñu ngi laaj laaj boobu jihadiste yi nekk Mali Sahel ak feneen ci àddina bi ñu bari dañuy wax naan lu tax ndaw ñi topp leen ci jamono yooya ulemaa yooyu nekkoon ndar ak tubaab bi nga xam ne tubaab bee leen yoroon di leen fayeg di leen jox ñuy liggéeyal tubaab bi ñu ni ko ñett moo tax ndaw ñi topp leen El Hadj day tabax ay jàkka dem na màkka te day àtte ci charia ñett yooyu lañ jàpp ni moo tax ndaw ñu topp leen te yéen tubaab yii moom ndar mayu leen ñu loolu ñun leen loolu kay du problème man nañ leen koo may bu nekkee loolu rek la moom amul problème ñu tabaxal leen jumaa ci ndar jumaa jooju armée francaise moo ko tabax moo tax boo demee ci jumaa ja dafa am cloche boo nga ne ba léegi cloche baa nga fa ndar boo demee ci jumaa yi ndar jiñ fa tabaxoon ba léegi cloche baa nga fa mooy architecture bi gën a siiw ci Sénégal dëkk yu bari ndax ñoom bi ñu leen ne tabax leen juma ay armée française xamuñu luy juma ñu xool seen livre yi gis ñun leen fu ñuy jaamoo yàlla la ñu xool gis église ñu tabaxal leen église def ci cloche architecture boobu fu bëri Sénégal booy dox ci jumaa yi ñu tabax ci dëkk yi jumaa ji noonu la noonu la mel architecture boobu la jël am na dëkk bu ñuy wax bismillah mu ngi ci booru yoonu Fatick diggante Mbour ak Fatick boo demee seen jumaa ja mu ngi nekk ni ci sa ndeyjoor architecture boobu lañu jël boo demee avenue Lamine Gueye ci dakaar jàkka yi fa nekk ab jàkka ja nekk avenue Blanchot dakaar architecture boobu la jël ñu tabaxal leen jumaa ñu di fa julli ñu jóge ca teg tribunal musulman musulman ci Ndar ndar amoon na tribunal musulman ñu jël ay xaadi ñu nekk fa di àtte ci charia ngir tontu El Hadji Umar ñun da ngeen a bëgg a dem màkka léegi nañu organiser kuréel goo xam ne mooy lijjanti li leen di yóbbu màkk commissariat au pèlerinage à la Mecque bi am nii léegi foofu loolu mooy cosaanam fa la jóge kon matal na ñett yi leen waxoon ni moo tax ndaw ñi di topp tabaxal nañ leen jàkk tabaxal nañ leen jumaa di leen àtte ci sariya ba pare di leen yóbbu màkk ñooña topp tubaab bi loolu it am na ci wàllu doxalin wañ doon doxal tubaab bi ni mu doon dale ci kaw nit ñi ni ceddo yi doon def noonu la tubaab bi doon def dem ci dëkku jàmbur taal ko am na benn jamono 1864 mooy jamono ji gën a tar ci senegaal nit ñi dañoo mujj ñenn ñi dañuy jaay seen bopp ngir mën a am lu ñu dunde jaay sa bopp ngir am loo dunde mu am fi feebaru choléra feebaru pest bu metti nit ñëpp fàq ñii dem mbuur ñii dem jiwaalo ñii dem ndar ñii dem gore mu jamono ju metti ci noonu euh, ñu gis ni jamono ji ni mu mel mënuñoo continuer bàyyi noonu bu ñu ko bàyyee noonu rek réew yi muy kajoor bawol dañuy mujj faagaagal te déjà luy ëpp tubaab bi teg na ci loxoom mais tubaab bi bi mu ci tegee loxoom moom tubaab bi xamul réew mi te mënta jële ay tubaab ca France indi leen fii ndax suñu leen fi indee seen yaram dëppoowul ak tàngaayu réew mi ak feebar yi fi nekk seen yaram xamu ko dañuy dañ daan dee lu bari léegi ñu ni kon buur yi fi nekkoon te ñun faagaagal nañ leen seeni ay doom ñu ngi fi donn nañ ci seen bàyyi nu ñuy yore réew ñun suñ leen tàggatee tuuti rek dinañ leen mën a dénk senegaal ñu jël ay ku mel ni mbaaxaan doomi Lat Joor walla Salmon Fall wala yeneen buur yi fi nekkoon yépp ñu jël seen ay doom ubbi benn école bu ñuy wax école des otages ci ndar dugal leen fa jàngal leen tubaab jàngal leen nu ñuy yore réew ñenn ñi sax ñu jël leen yóbbu leen Tunisie pour jàngal leen nu ñuy yore naka la tubaab bi ni moomee réew moo nga xam ne mii am réewum jullit la naka la ñuy def ba jullit yi nangu moomeelu tubaab boobu loolu lañ leen jàngale woon bi ñu leen yóbboo Tunisie bi ñu dellusee ñoom lañ fal ñu nekk ay chef de canton fii ci Bawol mbaaxaan fii lañ ko faloon Salmon ndax dañoo pàcc Bawol ñaari pàcc Bawol oriental Bawol gi féete penku ak gi féete sowu gi féete penku ñu dénk ko mbaaxaan gi féete sowu ñu dénk ko Salmon Fall ñu nekk fi kon ci loolu ngeen gis ni tubaab bi itam mu ngi xool nu mu noote islaam nu mu jariñoo islaam ngir noot Sénégal ceddo it ñooñu ñu jël fal leen nga xam ne ñoom seeni maam ñoo fi nekkoon ay buur léegi tubaab bi jël leen tàggat leen def leen seeni ay liggéeykat teg leen ci boppu kuréel yu ndaw yi nekk ci réew mi ñu nekk ay chef de kanton ñooñu biñ ñëwee li leen tubaab bi santoon mooy bu kenn yëngu bu mu am benn fitna ci réew mi na ñépp di fay lempo bopp bu nee nay fay lempo bi ñëwee installé wu ñu seetlu ni nit ñi li ëpp àddiya lañ gën a sawar a jox ni lempo àddiya lañ gën a sawar a joxe ni fay lempo mu indi ak fiiraangi ñu ne tant que sëriñ saa ngi fi surtout fii ci Bawol sëriñ Tuubaa ngi fi tant que sëriñ Tuubaa ngi fi sunu nguur gi du mën a taxaw fii ndax taalibe yi duñ nangoo fay lempo lu ñu am dañ koy yóbbu jox ko euh, muy euh, naka la tuddati euh, addiya te boo leen woowee nga convoqué leen ci pays bi bala ñoo ñëw dañuy dem tàggu ci sëriñ bi ba am ndigal kon ñu am ak fiiraange ci sëriñ bi ñooñee ñoo sos gëmloo tubaab bi ni sëriñ bii kat day waaj jiyaar waaw doo doomu nit ñu ñuul ñoo ñooñu nga xam ne ñoom la tubaab bi jëloon dénk leen réew mi nga xam ne ñoom ñooy donoy ceddo yi fi nekkoon continuer di noot nit ñi sonal leen di leen teg alkande ñooñu ñoo ni tant que sëriñ baa ngi fi li ñu namm ci réew mi duñ ko am ñuy sosal sëriñ bi di ko sosal ni mu ngi wal ay cere mu ngi jënd ay fas jënd ay ngànnaay Gàmbi boo seetloo sax fi mu nekk tu Tuubaa Daaru Salaam boo seetloo boo nattee di digganteem ak Fuuta nga natt ko natt diggante Tuubaa ak Gàmbi ñoo tolloo Fuuta jiyaarkat yi fi musa nekk yépp fa lañ jóge te arm ngànnaay yépp Gàmbi lay jóge yow nga nekk ci diggante bi ni nga soree Fuuta noonu nga soree Gàmbi kon boo demee wuti ku la jàngal nu ñuy xeexe jiyaar di nga wuti ay arme bi boo ñëwee dangay taal jiyaar bi sëñ bi sancee Daaru Salaam ñu tuumaal ko ci loolu ñi tabax tuuma ji chef de canton yi la ay nit ñu ñuul lañu dem gëmloo tubaab bi jamono yooyu sax gouverneur bi fi nekkoon moom ci bi ñuy tàmbali gëmuloon loolu mais dañoo bàyyi ba mu dem congé ñu tabax ñu taxawal tribunal bi ñu àttee sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo mois de septembre la septembre day dajeek jamono yu bër gouverneur nekku fi woon ndax gouverneur bi fi nekkoon ñu da ko wax lamot moom jublu gëmul woon loolu ñu ko doon wax ndax da daan yónnee ñuy yëddu sëñ bi te buñ ko yëddoo gis ni li ñuy wax ci moom dëppoowul ak li ko yëddukat yi di wax mais dañoo bàyyi ba mu dem ki organiser loolu nag ñaar lañu ku ñuy wax Leclerc ak ku ñuy wax Merlin lu tax ñaar ñooñu organiser ko ñaar ñooñu kenn ki moo nekkoon administrateur u Ndar kenn ki jiite bureau politique bi yoroon gouvernement bi ñoom ñoo fi gënoon a yàgg ñoo gënoon a xam réew mi gouverneur yi dañ daan ñëw def fi ñaari at dellu ngir bañ fee dee ñoom nag dañ fee yàgg ñoo tàggat doomi ceddo yi ñoom ñoo leen tàggat ba dénk leen réew mi seen ñooñu ñu tàggat dénk leen réew mi bëgguñu woon sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba su fi saxalee daara taalibe yi dañuy jublu ci moom nit ñu jublu ci moom kon duñu déggal kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom ñoom lañ yebaloon fii ci biir réew mi Merlin moomee rapport bi nga xam ne bii moom lañ moom lañ jàng ca bureau ndar ba nga xam ni ci lañ jaare ni sëñ bi dañ koy yóbbu Gabon moom moo bind rapport boobu ndey rapport ba Leclerc moom moo ko bind Merlin sukkandiku ci li mu wax bind beneen rapport tuumaal sëriñ bi Leclerc moom moom la dajaloon ci jeewol kon bu ngeen seetloo problème yi am ci jamono boobu léegi leer na ñetti mbër ñu ngi daje ci géew bi di bëre nguuru ceddo yi néew seen doole wàññeeku na tubaab bi dooleem yokku na sëriñ bi yoon wi muy commencé samp mu ngi jóg ndànk-ndànk ci jamono jooju doomi soxna yi fi nekkoon yépp ñetti yoon lañ gisoon yoo nga xam ne yii yaakaar nañ ni ci lañ mën a jaar ngir réew mi bañ a naax saay ngir diine bañ a tas ci réew mi ngir daara yi bañ a alkande ñetti yoon lañ ci gisoon bi ci jëkk mooy dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ comme ni ma jaxataka kala def mu yiir la dina la bàyyi ngay jàngale dina la bàyyi ngay bind sa ay xas lu mel ni xasaayit dina la may daal féex boo soxlaa tool dina la ko jox nga ànd ak dammeel dégg li ci sëñ bi wax mook doon weñ ñoo ñaareelu yoon bi mooy nga dem àndi ak tubaab bi comme ñoom bu el Mogdad nekk ci waawam xëy na dinga doxal sa diine waaye nag yaa ngi koy doxale ci daar al arab waaw foo nga xam ni fii doxal fa diine lu jafe lay doon ñetteelu yoon bi mooy nga taal jiyaar kon ñetti yoon yooyu rek lañ xamoon taal jiyaar wala nga ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi jël nag sa xel ak sa xam-xam ak sàkku am imaan sàkku dem ba ixsaan doon suufiyanke bu wóor taxul nga gis yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar nit ñi daal jàppoon nañ ne dangay ngay ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi wala nga taal jiyaar mais sëñ bi moom gis na ci li mu dund ci li mu dund ni ànd ak dameel sottaluwul mbir mi fekki tubaab bi moom xel xalaatu ko taal jiyaare ci des waaye moom dafa dund jiyaaru Maba Jaxu gis la mu jur gis la mu jur Maba daanu na ci somb bi mu daanoo waa këram dañ tasaaroo maamu ndare ak sayer mati juboowuñu ñuy xe ñu jote ba mujj tubaab bi ërtal leen ñu dem Gàmbi sëriñ bi ci loolu ci la ci la nekke tout tànk tànk ci la yaroo daf ko fekkee gis ni fitna ji jëmalewul réew mi kër léegi boo dumoo yow fitna xanaa nga dem àndeek tubaab bi comme ni mu leen ko waxee loolu du yoon nga dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ du yoon lu ci des nga gëstu bu baax xam jamono ji nga tombeel xam ne lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii nguuru ceddo yaa ngi fi teg alkande nit ñi di leen jàpp di jaay kon nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm kon waru leen a bett sëriñ bi sanc ab dëkk tudde ko Daaru Salaam kon moom liir na bu baax li societé bi soxla ndax société bu dund ñetti téeméeri at nekk ci sawara nekk ci alkande nekk ci fitna ñuy taal dëkk yi di jàpp taal ngóob mi di teg alkande nit ñi muy góor di jigéen ñépp nekk ci fitna li ñu gën a bëgg mooy jàmm sëñ bi gis loolu moo tax dëkk bi mu njëkk a sanc mu tudde ko daaru salaam man de noonu laa ko jàngate bi mu sancee daaru salaam teg ci ay at yu néew ña luy tolloog ñaari at mu sanc tuubaa waaye nag yemul foofu dafa am yoon wu bees pull wu mu tëgg teg ko muy yoonu murit mu wékku nag ci tabax nit ku bees ko nga xam ne musula am senegal bu yàggul ci at yi ñu génn am na benn mouvement bu fi nekkoon tuddoon yaana maar ñu naan euh, dañuy tabax nouveau type de sénégalais man leen du fi gande da ngeen a xamul seen cosaanu réew rek waaye su ngeen ko xamoon di ngeen xam ne lii du fi gan am na jamono ñu waroon a tëgg sénégalais bu bees sëñ Touba moo tëral ni ñuy tëggee sénégalais boobu moo ko tëral mu ko tàmbulee jànge ca daaray Mbàkke Kajoor ja baayam sañcoon mu jànge ko mu jànge fa nu ñuy jàngale ak nu ñuy tarbiyaa nit ba mu doon nit ku bees koo xam ne kii du wu du dara du ko jotale ak ki ànd ak ceddo ko jotale ak ki ànd tubaab yi du niroog ñoom mu samp daara ju bees mais daara jooju boo ko sampee il faut nga génn nit ñi moo tax sëñ bi jóge Mbàkke nga xam ne commencé naa bari ay nit mu ñëw sanc Daaru Salaam sanc Tuubaa mais nguuru tubaab dafa fiir loolu rek la bañ ku beru di jàngale njàngale moo xam ne musu fi woon a am ci loolu tubaab yi ni Merlin ci rapport bi mu bind def ni ñun kat sàgganoon nañ fi ba El Hadj jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Maba Jaxu jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Malick Sy jóg fi indil ñu ay jafe te Cheikh Amadou Bamba mii de lii muy sumb nii ci fi ñii jaaroon fi lay jaar ndax moom sax daan na wir du wir du xaadir te xaadir yi ñu am jàmm lañ léegi bàyyi na ko mu ngi wir wir du tiijaan te tijaan yi ñoom giyaar bu fi musa am ñoom ñoo ko taal loolu tuuma juñ tegoon sëriñ bi rek ngir fay daara ji ngir fay projet bi mu am tabax nit ku bees tëgg nit koo nga xam ne kii dina mucc ci yoonu ceddoo dina mucc ci yoon wi tubaab bi tëral bi mu defee loolu wéet ñëw fii tubaab bi ni kii dafa am lu muy waaj ñi nga xam ni ñoo doon nit ku ñuul doon ay chef de canton Merlin ak Leclerc wax leen nañu ko sosal ñu sosal ko ni day waaj jiyaar ndax mu ngi jënd ay ngànnaay mu ngi wallu ay ay ay dugub di ko denc kon day waajal jiyaar te mu ngi nekk ci Bawol oriental muy Daaru Salaam gi mu sanc boo jógee ndakaaru walla nga jóge ci géej gi boo ko ërtalee day génn mën naa daw dem jublu penku loolu moo tax mu nekk Touba loolu lañ jàppoon ni moo ko tax a ñëw fii Touba kon ngeen gis ni sëñ bi dafa ubbi yoon woo nga xam ne bii wu yéeme la li ko yéemeel mooy jamono ji mu tollool pexe yi nit ñi amoon yépp ñetti pexe rekk la woon nga gis nag weneen yoon woowu wu lay tàggale ak tubaab bi te doo joteeg moom jote bu metti nga mu tàggale la ak ceddo yi nga am ak nit ku bees koo tëgg loolu yombul woon te ñi ko gis kenn kooku moo ko gis teg daaray tarbiya tàggat ci ay nit ñooñu mu tàggatoon biñ ko fexeelee ba yóbbu ko Gabon wone nañ seenu mat ndax ñoo tëye yoon wi ba sëriñ bi dellu siwaat yaakaar naa ni du fii laa leen di waxee li ci maam noo def yéen ma ci ëpp xam-xam <laughs> yéen ma yéen ma war a leeralal ci loolu ndax xam ngeen lim ci def lu am solo lim ci def wala sëñ Abdourahmane Lo nga xam moom la dénkoon njàngale mi dénk njaboot gi maam Thierno ñooñee niñ leen tàggate woon moo tax li mu doon jafe-jafe li mu leen dénkoon mucc na ayib mu def juróom-ñaari at yoo xam ne lii mat na ci lu mat juróom-benni at kenn xamul fu mu nekk bañ jàpp ni sëriñ bi génn na àddina ñu am na sax ñu leen ko gëmloo woon ñu leen sëriñ bi génn na àddina waaye yëngalul seenu ngëm yëngalul seenu pasteef la leen sëñ bi dénkoon ñu continuer yor ko ndax tàggat gañ leen tàggatoon def leen ñuy nit ñu wuute ci doxalin ak ceddo yi wuute doxalin ak ñi àndoon ak tubaab bi ñoom ñu indi doxalin wu bees doxalin wu bees woowu ñu leen tàggat loolu moo tax ba ñu mën a dékku jaamaarloo yi ci amoon muy sëriñ Mamor Maane wala sëñ Alioune Diouf Lambaye ba leen teeñ tanoor songee ni leen dinaa tekki seen laxasaay yi tàggale leen nag ci Amadou Bamba sëriñ Mamor Mamor Maane ni ko da kàcc dañuy dem tuuba kon loolu lañ tàmbulee woon ma bëggoon leen a woon li nga xam ne mooy ceddoo gi fi nekkoon won leen li nga xam ne lii mooy li tubaab bi namoon ci ñun wala ñi nga xam dañoo taal jiyaar fitna bi mu doon àndal nga xam ni réew mi àttanuñu ko woon ndax réew mu dund ñetti téeméeri at ci alkande boo leen bëggee teg jiyaar duñ ko àttan te moo ne bu nekkenteen dangaa jàng alxuraan rek topp ci taal jiyaar ku la noot teg la loo xam ni tegu ko te nga nekku ci diine taal jiyaar jaadu na kon boo tànnoon lu yomb danga naan rekk fi mag ñi jaaroon laay jaar damay taal jiyaar waaye soo gëstoo jamono ji nga tombeel xam jamono ji li mu laaj nga xalaat ko moo tax sëñ bi du diine rekk du diine rek dafa indi ci wàllu koom-koom indi ci wàllu politique indi ci wàllu social lu nekk mu am yoon wu mu tëral ñu war cee jaar yoon woowu pour nga jaar ci il faut ñu yar la yarub tarbiyaw sunu jamono ji ñu tollool itam nag loolu dafay xaw a tumuranke lool ay gune ngi sànku ni dañuy def jiyaar li ëpp ci ñi ñuy rey ay jullit lañ kon xam nga ni jiyaar booba moom ak sànkute rek lay mën a jur ñenn ñaa ngi ànd ak nguur yi lu buur bëgg nga ne dagan na kon ñetteelu yoon bi lañu xa lañu mel ni dañ koo fàtte man dama ne woon bu fekkontee ni diplomatie sénégalaise xam nañ bu baax seen histoire réew mën nañoo nekk les meilleurs conseillers des Nations Unies wax leen ni problème bi ñu jàkkaarloo nii muy jiyaar bi ñuy xeex nii musoon na fee am lu ma téeméeri at a ngi nii ci ginnaaw lañ ci génnewoon yaru tarbiya moo ñu ci génnewoon woon jiyaar génnewuñ ci woon topp tubaab bi génnewuñ ci woon topp nguur gi génnewuñ ci woon toppatoo njàng mi ak njàngale mi ñu teg ko ci yoon yar xale yi ci yaru tarbiya moo ñu ci mën a génnewaat ci jamono jiñ toll nii war nañ xoolaat bu baax suñu école yi ak daara yi ni muy doxe ñu xool daaray Mbàkke Kajoor ja lan lañ ca mën a jàngate pour jubbanti suñu daara yi am nii muy daaray alxuraan di daaray tubaab nag surtout daaray tubaab yi yaakaar naa ne daaray tarbiya moom amul grève <laughs> waaw ñun nag suñu daara yi moom nga xam ni ñu ngi ko tëggee ci tubaab bi lim ñu fi bàyyil waaw ñoom bi ñaaree léeg-léeg ndongo yi sax ñooy ëpp martaba ñay jàngale <laughs> waaw am na sax ñuy pes ñuy pes seen seen seen jëwriñ waaw fitnaal ko kon bokk war nañu xalaataat man njàngale lañu war a jàngale ci Sénégal mu dëppoo ak suñu cosaan dëppoo ak suñu taarix dëppoo ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon doon tekk dinañ ko dëppale ak jamono waaye reen bi moom waruñu ko waruñu koo buut sànni te fleur rafet na lool fleuru garab rafet tóor tóoru garab rafet na lool mu nga ca kaw yamb yi di ko biiw ndax ab rafetaayam waaye bu sàgganee reeni garab ga ba reen ya dee garab gi dee reen yi moom du daanu ndax ci suuf lañ nekk fleur tóor tóor ma nekk ca kaw bu daanu dee am mooy gën a metti ab jël bu loru dee am mooy gën a metti ab jël kon loo ràññeeku ràññeeku rafet yamb yi di la biiw ngay xeeñ euh, kële misk walla jasmin bu mu la taxa deew mukk ba nga fàtte sa cosaan fàtte say reen ndax soo fàtte sa cosaan fàtte say reen bu reen yi dee garab gi dee yow ma nekk ca njobbaxtalu garab ga sëb jël mooy gën a metti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu loo maa ngi leen di sant yéen ñëpp ci seenu teewlu euh, jërëjëf sëñ Ibrahima Thioub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne àndil nga ñu ko te mooy fàttali cosaanu Sénégal ci diggante buur yi fi njëkkoon a nekk naka lañ doon dundee ba sëriñ bi ñëw fekk leen fi jëlaat beneen méthode bu bees boo xam ne ci la jële askan wi bu ñuy wax ne sëriñ bi da dagg na buumu njaam yi yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane aslëf la ci dara la ci mooy sëñ Tuubaa dafa ñëw àndaale pas-pas bu bees waaye boole ko xel mu yaatu mu rëy moo xam ne mooy tax ba la mu waxoon ne sama liggéey bi dinaa ko liggéey ba mu ba mu jeex te xat du damm deret du tuuru yaakaar naa ne mooy lii nga doon waxtaane te mooy fexe ba génnee nit ñi ci ñàkk xam génne leen ci leen ci alkande génne leen ci toroxtaange yóbbu leen ci ak njullit gu wér defar leen ba ñu mën a yor seeni bopp kon yaakaar naa ne li nga doon waxtaane lu am solo la lu mat a bàyyi xel la su ko defee nag loolu yaakaar naa ne war nañ cee mën a jàng ci sunu dund gu yees gi mooy fexe ba sëriñ bi fi mu bàyyee woon xeex bi te mooy fexe ba def jullit ñi ay jullit piir jullit xaqan mooy naka lañuy ñuy fexe ba foofu duñu fa jóg xam ne lépp euh, tartar du ko maye li ñuy wax unwa du ko maye euh, xeex ak doole du ko maye waaye xel moo koy maye ak gëm yàlla gu wér su ko defee itam loolu lu mot a bàyyi xel la rawatina ci jamono ji ñu toll euh, njàngale mi sëñ bi jàngale itam yaakaar naa ne feeñ na bu baax a baax ci waxtaan wi loolu itam ñu ngi la ci sant bu baax a baax xam naa du ñàkk am na ay laaj yoo xam ne euh, ñëw na ci li nga xam ne moom nga doon waxtaane te mbokk yi doon teewlu laaj ko andi ko ci li nga doon waxtaane mu ne <clears throat> bokk na ci yooyu kii dafa ne euh, kuli téng la moo doon kan euh, professeur kon xam naa laaj yi aju ci lii mu doon naa génn waaw dafay laaj mu ne Koli Tengela moom mooy kan waaw Koli Tengela <coughs> buur la boo nga xam ne bii yoon wi ñuy wax deñanko deñanke deñankoobe ñoom ci fuuta lañ nekkoon waaye cosaanoo fuuta ñoom ci bëj saalumu réew mi lañ jóge woon euh, quinzième siècle màng dox jëm si fuuta ndax Fuuta boo ko seetloo askanu senegaal yi ngay gis yépp li ci ëpp foofu lañ jóge ndax fii sunu réew yi féete maral da leen a yomb nga toogum at taw bi du taw lu doy ngir nga mën a bey daf leen a yomb ci loolu moo tax Fuuta nga xam ni dafa am dex dex gi day baawaan tooyal fépp nga mën faa bey man ngaa bey ñaari yoon ci at mi soo nekkee Fuuta moo tax da daan mel ni comme acier di xëcc nit ñi ñuy ñëw ci booru dex gi dëkk si fa mais su jamono naataa naatee taw bi dellu siwaat di dox nam daan doxe ñu bari dañ fa daan mànge delluwaat ci biir réew mi ndax da doon xat fuuta noonu la nit ñi dañ doon dem ak di ñëw muy wolof yi di séeréer yi di alpulaar yi tukulóor yi ñoom ñépp foofu lañ jóge laata moo tudd fuuta sax takk ruur la tuddoon am na ñu ko tekkee dëkku kuur mooy ñoo xam ni ñi seen cosaan du woon diiney islaam waaye nag teewul almoravide yi biñ fay yegsi ñoom booba li ëpp ci ñoom ay jullit lañ te ki nga xam ne kii moo sos nguur ci réewi wolof yi muy njaajaan njaay baayam foofu la jóge woon mu sëy ak ko nga xam ni kii yaayam di tukkulóor di doomu Abraham sàll lamtooro donk noonu dex gi doon xëccee nit ñi lool dafa amoon ñu jóge ci bëj gànnaaru réew mi ci bëj saalumu réew mi dox wut si fuuta bi ñu yegsee ñoom ñu xarañ lañu woon ci xeex ak ngànnaay ñañ fi fekk ñu deen wax nguuru tonjon yi ñoom deñanke yooyu muy waa Koli Tengelaa jiite leen moom moo nangu nguur ga falu ci fuuta quinzième siècle ñoom ñoo fa nekk ba torodo yi ñoo leen fa jële torodo yi ay jullit lañu woon yoo xam ne yii Souleymane Baal ak Abdul Xaadir Kan ñoo leen jiite woon ñoom ñoo naas saayal nguurug deñànk yooyu nga xam ni Koli Tengela moo ko sampoon kooku mooy Koli Tengela. jërëjëf kii itam nee na daaw Demba ndax ab jullit la woon daaw Demba. Ah, ndax ab jullit ndax ab jullit la woon. waaw daaw moom ceddo la woon ak njulliteem moom euh, su ko waxee sax ci làmmiñ war nañoo mën a jàpp ni nekk ko woon ndax wax naa leen ni mu doon doxale Euh, xam nga ku dajale nit euh, réew waxambaane yëpp rey leen seen baay kooku boo ko tuddee jullit tam de dina am lu des xanaa ni dëkk bi ku mu neex fudd waaye boo fuddoo doo wàcc say loxo te man rek maa fi lekk xorom te ku yëngu nga nga fàdd euh, teg nu def nu dul noonu kooku day bu dee jullit ak njullitam moom xarees na koo seetaan loolu daal laa ci mën a tontu muy daaw dem. kii moom. question sax ko ci barmaa ko fi jële waaw muy laajte yan njàngat lañ mën a def ci wàllu politik ak wàllu social ci li nga xam ne lii mooy xalaatu sëriñ bi. waaw loolu bari na am na lu ma ci junji mooy ni euh, réew mi nga xam ni moom nga nekk bala ngaa jëggaani feneen leneen di leen ko teg nga xool lan mooy seen cosaan boole xalaat lan mooy seen problème ci jamono yi ñuy dund lan mooy seen problème problème boobu fan la jóge lu ko jur nga xalaat lu ko mën a faj ndax boo dee xalaat ay yoon yu bëri yu ubbeeku yoon wu nekk danga ca war a def sa kem kàttan pour xam ndax jeexital ba mu am ci askan wi dina baax walla du baax soo jàngee charia rekk man ngaa yeewu rekk ni bu nekkee ci ay jafe-jafe nañ taal jiyaar la mu jural maa ba ku nekk gis na ko lam jural Amadou Cheikhou ku nekk gis na ko mais boo nekkee ci réew moo nga xam ne mii ñi ëpp ci réew ma ay baadoolo lañ ñu toog ñetti téeméeri at nekk ci alkande nekk ci fitna boo ñëwee bëgg leen a continuer ci fitna jooja ndax nga ni wax nañ ci alxuraan walla wax nañ ci àddis ni bu nangam amee da ngaa war a jiyaar nga fekk réew moo xam ne mii ñu ngi ci alkande lu man ci ñetti téeméeri at nit ñi sonn nañ feebar bu nekk dal na leen ngeen leen dañuy continuer fitna jooju dañuy continuer nekk ci mooy jàngatoo jàngatoo wàllu politique jàngatoo réew ma ci luñ toll loolu sëñ bi jàngal nañu ko ni foo nekk da ngaa war a seet loolu yegg metti na ko lool ba mu xalaat a jiyaar kon moom buy jëloon lu yomb def lu yomb day taal jiyaar comme ñëpp rek wala mu dem ànd ak dammeel wala mu dem ànd ak tubaab bi loolu moo gënoon a yomb mais mu xalaat li gën a jafe mooy tàmbali nga xam ne lii mën naa am doo gis njariñ la ndax xale bu toll ci juróomi at juróom-benni at yow nga am lu mat ñeent fukki at nga di ko jàngal mën naa am bis bu njariñam di feeñ doo ko fekke boo yàkkamtee na nga tànn solution boo nga xam bii baaxul ci wàllu politik loolu war nañ koy xalaat bu baax a baax a baax a baax politique du pour sa bopp pour askan wi la sàmm alalu askan wi teg leen ci yoon ñu xam lu ñu war a def ak lu ñu wërta def nga jox gëdd ak fulla ak fayda njàngale loolu mën nañ ko cay jàng ci wàllu social li taxoon ceddo yi gën a xarab sëriñ bi ndax sëriñ bi moom li ko soxaloon mooy fi nit ki toll ci yàlla martaba ku nekk martaba bi mu lay jox ci fi ngay toll ci yàlla la la ko la ko doon teg mais réewu ceddo yi réew ñun suñ cosaan fii lan moo daan def ba nit mooy nga doon garmi ci sa juddu bu nekkee géwél nga walla wuude nga walla tëgg nga dañ lay sof dañ lay sofental sëriñ bi nekk ci waaso yooyu ci ngir yooyu dafa am ñum ci yëkkati ñu am solo ceddo yi mere ko ci loolu naan moom day jox ba ko nga xam ni kii démb rekk sama géwél la woon sama jaam la woon mun leen liy màggal nit kët du ca deret ja waaye ca na mu gëme yàlla ngëmam fu mu toll loolu moo am solo kon géwél bi mën naa gën a jige yàlla giir jaam bi mën naa gën a jige yàlla sànq loolu itam ci wàllu social sëriñ bi moo ñu ko jàngal ni ñuy féewaloo ni xàjjali ko xeeb nit ndax géwél la xeeb nit ndax tëgg la xeeb nit ndax wuude la loolu sëriñ bi jële woon na ko fi waaw am na ay seexam yoo xam ne yi ci ñooñu ci ñooñu lañu bokkoon te kenn du leen ko xoole te sëriñ bi xoolewu leen ko woon ci wàllu social kon am na lu ñu jàngal lu am solo foofu avant la colonisation la colonisation en tant que telle waaw euh, colonisation maanaam tubaab bi da fi ñëw ci da ngay séddale ñëw nekkam fii ci ñaari jamono. asalaamaaleykum wa rahmatullah ndokkeel ci weeru tedd bii xam naa di amaan mbégte lool nag ci teew ci jataay bi di dalal menn mbokk ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom jotaayu xam-xam ci barab bu tedd bii ni ki noonu kon tey ñu ngi fas ne ànd ak professeur Ibrahima cubu ñu gën koo xam ci ancien recteur bu université Cheikh Anta moom lañu ñu war a amal tey waxtaan wu am solo muy waxtaan ci Cheikhul Xadim fan la fekk société bu senegal ak fan la ko yóbbu mu doon kon thème bu am solo boo xam ne bu mat a teewlu la waaye bala ñoo ñëw ci loolu bala ñu ko jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee ci képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak yëngatoom ci xam-xam mën nañoo wax rekk ne Euh, sëñ Ibrahima Cubb mi mu ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax malikunda ca wetu Mbuur euh, bi mu tombee bi mu tollee ci dal am njàng itam ci la dugg daara alxuraan def na fa ñaari at gannaaw bi ci la dugg ci école française bi ca Mbuur tàmbalee fa am njàngam ci atum 1962 ci la am CFE muy lijaas bi gën a ndaw ci école yu ndaw yi gannaaw bi ci la continuer am njàngam dem ca Thiès ba yegg ci lycée Malick Sy foofee la amee baccalauréat am gannaaw bi ci 1972 ci la dem ci école normale ba 1976 euh, jaar na école normal ci diggante boo ma tudd gannaaw bi itam affecté nañu ko waat Thiès mu nekk fa comme jàngalekatu primaire gannaaw bi la dellu jàngaat ba dem école normale supérieure gannaaw bi ci la fa nekk ba am fa master 1984 gannaaw bi nag ci la bawoo ci réew mi dem bitim réew ca France Paris foofee fa la nekk di fa jàng ba am doctorat am ci atum 1989 gannaaw bi itam nag bi mu dellusee ci réew mi affecté nañu ko ci ay lycée yu bari mën nañ cee lim rek lycée Lamine Gueye ak John Kennedy bi nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru gannaaw bi ci lañ ko yóbbu université Cheikh Anta foofu mu nekk fa comme assistant gannaaw bi ci la yokk ay jéegoom ci wàllu njàng ba ñu nommé ko fa professeur mu di fa jàngale histoire gannaaw bi ci atum 2014 ci lañ ko fa nommé comme recteur mu yor rectorat bu université Cheikh Anta Diop euh, ci atum 2020 ci la jël retraitam mooy koo xam ne daanaka liggéeyatut léegi ci gouvernement bi mën nañoo wax ne nag ay gëstoom nag da koo jëmale ci wàll fànn goo xam ne gu am solo la muy histoire Afrique kon lépp loo xam ne jëm na ci taarixu Afrique ak i jaar-jaaram ak yi xew-xew yi fi ma am moom ci loolu lay gëstu kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaaneloo muy sëriñ tubaa fan la fekkoon société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu loolu lu mu xam la lu mu mën a waxtaane la kon yaakaar naa ne incha allahu taala mën nañoo fàttaliwaat mbokk yi ne leen euh, waxtaan yi ñuy amal fii képp koo xam ne raw na la am na fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne euh, dañuy tegaat waxtaan yi ci diggante Touba ak li ko wër waaye mën nañ cee tàmbale rek wax ne rajo Daarul Moxti bii direct la koy def ak rajo Bawol Média ñoom ñaar yooyu direct la ñuy def waxtaan wi buñ ca jógee itam Daarul Muxti dana ko tegaat suba ci 14h 15h Zik FM dana ko teg 14h 15h moom tamit Walf dana ko teg 19h jant bi 0h iRadio dana ko jàll 18h30 RTS Diourbel 13h30 Benno FM 17h Sud FM 20h30 Lamp FM 23h UCAB FM dana ko jàll 9h du matin Bawol media bi ma waxoon sànq moom tamit direct la koy def. Carrefour FM dana ko jàllale vingt heures rajo Bambey dana ko jàllale vingt deux heures euh, Daara ji FM dana ko jàllale euh, moom tamit Daara ji FM moo mooy bi nekk Kébémer leer gi FM mu nga nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan bi RTS Touba moom tamit dana ko jàllale neuf heures Touba Fall FM moom tamit huit heures du matin fa la ko ci la koy jàllale kon rajo yooyu yëpp mën nañu wax ne waxtaan yi dañu koy jàllale bu dee chain télévision yi nga xam ne ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi mën nañ cee lim Touba Vision Touba TV day jàllale waxtaan yi chaque jour Lamp Fall TV itam dana koy teg une heure une heure une YouTube yi nga xamante ne moom la ñuy lim itam chaîne YouTube yëpp dañu koy def direct kon mel na ni boo xoolee mbooloo mi sax ñu ci ëpp daanaka foofu lañ koy suivre tàmbalee ko ci Alwafa bu Daarul Moxti Touba Vision Baye Daaru Média nekk ci dëkk bi xam sa réew TV alxadimiya bawal média facebook bu Alwafa bi itam da koy def gannaaw bu loolu jàllee itam ah, ren ji ubbi nañu fukki eh, groupe ak ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne groupe yëpp fees na te waxtaan yi rek lañu fay jàllale kon mel na ni waxtaan yi yaatu na lool telegram bi itam ku tàppe Alwafa Daarul Muxti depuis 2006 ba atum ren ji waxtaan wii sëñ Ibrahima di def dana ca nekk kon incha allahu taala ñu fàttali itam mbokk yi ne leen suba ci eh, talaata ji danañu dalal sëñ fàllu Samb sëñ fàllu Samb yitam ñuy am moom waxtaan ci dem bi ak dikk bi ay loraangeem ak i njariñam su ko defee àllarba ji eh, ambassadeur Modou Fall moom tamit dana teew ci jotaay bi waxtaan ak ñu ci ahamiyatu sifara fil xaarij maanaam yan njëriñ la ambassadeur yi amal sénégalais yi ci biir réew mi ak bitim réew su ko defee alxames nga xam ne ci la ñuy tëj jataay bi nag sëñ Mamoor Amdi moo yeneen i kilifa daañu fi teew su ko defee ñu waxtaane mustaqbalul muridiyya maa ëllëgu yoonu murid loolu kon moom mooy li nga xam ne moo aju ci asum ñu ñaan ñu ñaan yàlla teewee ko at yu baree baree baree bëri te yëpp ñu ànd ko wér euh, su ko defee incha allahu taala dañuy jëbbal kàddu gi sëñ Ibrahima cubb ñaan yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci li nga xam ne moom lay waxtaan itam incha allahu taala mën na koo bind moo xam ñuy suivre ci youtube bi la moo xam ñu nekk ci jotaay bi bu ko bindee bu ko jébbalee ci ñu yor wàllu googu incha allahu taala dinañ ko jàllale su ko defee moom mu tom tontu ci tontu ji après jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ahousubillah mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar eh, sëriñ Muntaxa Mbàkke Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général de Mourid di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu di ziar xalifa Daaru Mufti di nuyu di ziar kilifa diine yépp yoo xam ne yii ñooy kilifa diine nekk ci tarixa bi di muridiya ñi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci rajo yi ak télévision yi yépp ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar baax a baax euh, di sant waa daayira bi nga xam ne bii ñoom ñoo sàkku ci man ma ñëw def waxtaan wi ci weeru koor wu tedd wi maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax bi nga xamante ni jokkoon nañu ak man it man sama gëstu euh, depuis 1990 ba léegi euh, muy romb léegi fanweeri at mu ngi jëm ci taarix muy histoire surtout histoire Afrique euh, pàcc bi ma ci gën a féete mooy diggante dix-neuvième ak vingtième siècle mooy ñaar téeméer at yi ñu weesu lan moo xew ci Afrique ak lan lañ ci mën a jàngate ndax histoire du caagee nag xool li weesu rekk du lu weesu moo ñu amal solo déedéet lii ñëw ëllëg moo ñu amal solo maanaam li koy misaal mooy dafay mel ni rétroviseur oto booy xool sa rétroviseur li ci sa ginnaaw ngay gis waaye li ngay li tax mu amal la njariñ mooy mu tere laa am accident bi ñëw ci sa kanam histoire donc loolu lay jariñ xool jaar-jaar yi fi amoon lan lañ ci mën a jàngate ngir xam li ñuy dund mooy lan naka la ñuy tabaxee ëllëg ci askan wi ci noonu bi ñu ma laajee thème boo xam bii mën naa ci waxtaan dama leen nii mën nañ xool jamono ji nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa daje loon nu mu demee woon euh, yan jafe-jafe moo fi amoon yan pexe la ci nit ñi amoon ak moom yan pexe la ci jël lu mu ci indi ndax bala ngaa dégg dëgg li sëriñ biy wax nga xam yan jafe-jafe la jàkkaar looloon ba indi ci ay tontu euh, da ngeen di jàpp ni nag jafe-jafe yooyu yu tar la woon am na lu bari li ci nit ñi gën a xam mooy liñ ko yóbbu woon Gabon wala ñu yóbbu ko Mauritanie mu jaamaarloo ko ak tubaab bi mais am na yeneen yoon xam ne yi moo jur loolu te ñaari nit ñi dinañ koy umpule loolu laa ci bëgg a génne tuuti rek euh, ci waxtu yi nga xam ne yii moom lañ ma may euh, gëstu bi nag li ci ëpp ci tubaab lañ koy def waaye comme ni ma koy waxee wax ko ci wolof man moo ma gën a yomb wax ko ci tubaab eh, damay tàmbulee loo nga xam ne lii xëy na mag ñi xam nañ ko su ma ko tàmbulee sax xam na am na ay mag ñu fi nekk dinañ ko mën a yeggale su ma nee ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seyxu bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ma moo jébbulu woon dem tuubi ndeyam di jooy mun naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane sëriñ Mor Maane sëriñ Aliou juuf ñi lee ko daane keroog dalee na woo fa péncam làmbaay naan leen danaa leen tàggaleeg laxasaay keroog dalee na boole ci wurmbal ñuy kenn kennoo farba ja farba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal daam dàmm di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen baleen seex bàmba mbaama rendi murit yi yépp ma nga ma nga naan ba màndi murit yi naa ko bàmba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey noo yi sëriñ Momar Maane ko tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk dag ya ni tis pénc ma dal di jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daldi laxasu murit ya ñëw tuubaa xibaar ko Bàmba mu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jal ba ceddo ya dem kalaame kook borom ndar mu naa dangeen mokk mbaa mel ni aw dër ñi xam sëñ Moussa Ka xam nañ ni loolu ci jasaw Zakoor la jóge boo ko gëstoo ci li ma ci jota jukki noonu jukki boobu ma ci génne am na ñetti mbër di bind wolofal ñoo leen di defaral ay téere danga nga gis ku soxla téere lu mel ni ak dàkk boo ko soxlaa dinga ci def lu mat ay fanweeri jaam ngir ndax xeex bi bari na il faut nga wut gàllaaj gu tax nga tuul te loolu dañ ci daan ñàkk lu bëree bëri ci alal ndax xeexoo bi bari kon sëriñ soosu am na sëriñ soo xam ne si dañ daan ànd ak nguuru ceddo yooyu euh, ci biir ànd boobu teewul nag am na ay doomu soxna yoo xam ne yi dañoo jóg xeex ak nguuri nguuri ceddo yooyu bari nañ lool ci suñu réew mi ki ci jëkk nga xam ni booba buur yi buur buuri ceddo yi ñu ngi jël nit ñi dëkk bu ñu dem taal ko jël nit ñi yóbbu dem jaay tubaab bi tubaab bi yóbbu ñoom ñu jënde ko sàngara naan nekk ci li neex seen bakkan di toj réew mi mu doon alkande ju rëy ju dal ci kaw réew dajeeg léeg-léeg ay njéeréer da ngay bey ba góob rekk des ci ceddo yi ñëw taal sa tool wala njéeréer yi ñëw lekk ko wala mbas ñëw comme mbas mi am nii léegi da doon am ci jamono yooyu muy jamono ju tar ju metti te li leen ko tegoon nguur googu ñu amoon te muy nguur gu baaxul moo leen ko tegoon te réew yépp nag fi moo fi sësoon muy Kajoor Bawol Waalo Siin Saalum Fuuta fépp ñoom ñoo fa nekkoon léegi jullit yi am ci ñu jóg ni nag war nañoo seet nu nuy def ak nguur yi lu ñuy tàggaleek ñoom ki ci jëkk Nasr al-Din la tudd Mauritanie la jóge woon ànd ak ay jullit yu nekkoon fii ci réew mi ñu samp nguur xeex ak ceddo yi gañe leen samp nguur gu ñuy wax nguuru buuri jullit loolu 1673 la amoon bi mu amee mun leen yàlla sàkk lu leen ay kilifa ngir ñu di leen jaay ak di leen toroxal ak di leen noot yàlla daf leen jox kilifa pour mu aar leen teg leen ci yoonu yàlla looloo tax yàlla am ku mu teg seen kanam mais seen kilifa yi ngeen am nga xam ne ñoom dañ leen di jàpp taal seen kër yi taal seen euh, ngóob mi fotoñ leen jaay tubaab bi dañuy jóg xeex ak ñoom ngir tàggalikoo ak ñoom biñ ko defee réew mi ànd ak ñoom ñu daaneel buur yooyu mais tubaab yi nga xam ne loolu arrangé wu leen jox leen ay ngànnaay jàppale leen ñu daaneel nguuru jullit googu nga xam ni moo njëkk am fii ci Sénégal di nguuru jullit di 1673 biñ leen daaneelee ñu bëri ci ñi bokkoon ci xeex ba doon ay jullit dañ leen a jaay ñu yóbbu leen Amérique mais ñi ci des dañoo tasaaroo ci biir réew mi. taal ay taal jàngu di fa jàngale arrêté xeex bi te xam ni ceddo yi neexaguñoo song ñu ne nañ wutiwaat doole ba ci kanam ci noonu Abdul Xaadir Kan ca Fuuta moo jógaat xeex xeex bi ci jamono ci jamonoy Amari Ngoone Ndee la mais moom itam dañ ko gañe ci xeex boobu ci dëkk bu ñuy wax bungo yi bàyyi ma Lamine saar ku nekk dégg na ko moom itam Amari Ngoone Ndeele moomu moo ko daaneel ci xeex boo xam ñu ngi ko xeexoon ci dëkk bu ñuy wax cax réew ñu jàpp ca ñu bari jaay leen ay def leen ay jaam jaay leen ñenn ñi daw ñooy lébu yi sañc nguur gi nekkoon ndakaaru sëriñ ndakaaru ci loolu la jóge ci xeex boobu la jóge ñoom dañoo jóge kajoor dem Cap-Vert ci lañ ko samp jullit yi continuer di xeex ngir teggi nooteel googu ñàgga isa ca waalo 1827 1830 Malick Sy ca Bundu bokkul ak Seydi Aj Malick bu Tiwaawoon am na beneen Malick Sy ci Bundu kooku 18e siècle la El Hadj Oumar 1860 Maba Jaxu 1861 1867 Maba Jaxu boobu lu am solo la ndax Maba Jaxu ci ripp fu ñuy wax baadibu wala fi di ko wax ripp soose si di ko wax baadibu fa la nekkoon am buur bu fa nekkoon ñu di ko wax jeere ba maroon mu am doom ju tudd jàkkere basin ñoom ñaar ñoo tegoon nooteel gu tar ci kaw jullit yi ci kaw mbooloo mi askan wi kooku dafa xëy benn bis dem ci kër benn nit fekk fa doomu jànqam mu jël ko yóbbu gëf ko yóbbu ko ci péey ba yemul ci loolu mu bind lettre jullit yi ni leen dajal leen alal yi ngeen am yépp jëndal ma ci ay gàtt yónnee ma ko ndax damay takk seen doom ji te se gàtt yi ngeen may yónnee ci laa war a organiser fête bi may feetoo sëy bi ñu nar a sëy xam nga loolu jéggi na dayo lool Maba Jaxu ne nag loolu moom mënuñu koo seetaan ci la taal jiyaar moom itam bi mu taalee jiyaar daan buur boobu lu mat ñaari weer rekk mu jóge Gàmbi tey ci foo xam ci Gàmbi la nekk tey di Saalum ñaari weer rekk mu nga Jolof buur yi fi nekkoon yépp mu faagaagal leen samp nguuru jullit ci noonu mu jël kilifa diine yu bari yu nekkoon ci réew mi tasaaroo mu jël leen yóbbu ñooro bokk na ci ñooñu Mamor Anta Sali mu ànd fa ak Soxna Jaara Buso ñu nekk Poroxaan mu ubbi fa daara di fa jàngale doomi Maba Jaxu ci daara yooyu lañ doon jàngee ku mel ni Sayer Mati am na nag wuute ci loolu ñenn ñi nee nañ dafa forcer sëriñ yi ñu ñëw ci moom ñenn ñi ni dafa waxtaan ak ñoom ba yóbbu leen fa waaye lu ci mënti xew daal Maba moom xeex na xeex bu gaaw faagaagal nguur yi fi ne ko ndax nguur yooyu amuñu woon kenn ku leen jàppale ndax nit ñi dañ leen a dumóoyu woon ndax niñ doon doxale mais Maba bi mu demee xeex ak séréer yi siin la daanu ci somb 1867 ku mel ni Lat Joor ca xeex booba la bokkoon Demba doonoon jaamub kajoor jaamu buur moo ko fa jële delloo ko kajoor Maam Mor Sali àndaat ak moom dellu kajoor Cheikh Amadou Bamba des poroxaan ba ni waajuram wu jigéen génne àddina la fekki waajuram wu góor ci kajoor nekk fa moom ci jamono ji muy nekk kajoor am na xeex bu dox diggante Amadou Cheikhou ma jóge woon Fuuta song kajoor ak Jolof ci turu lislaam di xeex ak nguuri ceddo yooyu ci jamono jooju Lat mooy dammeelu kajoor am na jamono sax Lat ànd na moom waaye dañoo mujj féewaloo bi mu dalee ci kajoor dal ci jolof Alburi ak Lat ànd di xeex ak ñoom tubaab bi jàppale leen ñu xeex Samba saajo bi ñu xeexee Samba Sadio fa la Amadou Cheikhou daanu bi mu daanoo taalibe yi mu àndaloon ñuy xeex ñu jël leen ñoom ñëpp indi Kajoor def leen ay jaan mu jur werantewu rëy diggante ñi nga xam ni ñooy ulamaay kayoor yi àndoon ak Damel ak Cheikh Amadou Bamba te booba toll na ci ak ndaw waaye nag fekk jàng na njàng mu wóor mu dëgër ba am lu mu làq ci xam-xam mu warante ko ku mel ni xaalima jaxate kala ci loolu bind na benn lettre bu mu jox dammeel bi ko xaalima jaxate jotee dafa jàng leetar bi dammeel ni ko wax ma lu ne ci lettre bi mu ne ko lettre bi jubluwul ci yow ci man mii la jublu mu ne ko sarax ma ngir yàlla wax ma li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci leetaram bi ndax booba ñu ngi lijjanti nu ñu def ba sëriñ bi ñëw nekk ci nguuru dammeel mun leen man jombale naa samay tànk mu jóg di dem ci benn buur bu dul yàlla ñoom ñu ngi fexee nuñ ko dugalee naan ko boo ñëwee dinañ la jox alal dinañ la jox martaba dinañ la jox dinañ la màggal loo soxla di nga ko am bu dee suuf ak lépp di ko am waaye fekk na booba moom du mooyu na loolu ba mu werante ceeg ma jaxate kalam mu ngi ko naan sëriñ bi gën buur bi gën ci buur yi mooy buur buy seeti sëriñ dafa taatan nu mu yore nguuram waaye boroom xam-xam buy dem ci kippaaru buur mook weñ wu dem ci ay jonkon ñooyam loolu la bindoon ci leetar bi moo tax ma jaxate kala ñimewu ko woon a wax dammeel mais bi mu ko waxee dammeel dammeel ni ko yow kay amoo ciy mer ndax yow yaay weñ wi waaye man xam nga li ma doon waaye nag day day ndaw rek bu màggee dina dina dina soppeeku nañ ko jàpp ni ab ak ëkk la gu nekk ci suñu biir tool bu ñu béyee ba yegsi ci nañ ko wër rek mooy te ko continuer béy kon boog nguur yooyu fi nekkoon am na ay jullit yu àndoon ak ñoom am na lu luñ doon def loo dëppoowul ak yoon ñu teg nit ñi alkande teg leen ay jafe-jafe ay yu tara tara tar mais ci jamonoy sëriñ bi fekk na booba tubaab bi dal na ci seen kaw nasaxal na leen ñoom ñuy xeexoo ci seen biir ba néew doole nga xam ne bi leen tubaab bi faagaagal daanaka dara desatu fa woon teeñ tanoor ma ma leen waxoon ca ba may tàmbali bi cee Yacine Gallo Gana daanoo ci Bawol moom moo ko remplacé mu jóg nag ni moom day fay islaam kon boog ngeen gis ni nguuru ceddo yi am na ay doomi soxna yu ànd ak ñoom mais am na ay doomi soxna yoo xam ne ñu nga ànd ak tubaab bi ca Ndar ku mel ni bu el Mogdad nga xam ni ñu jàng lañu woon ñu am xam-xam waaye ñu ngi dëkkoon ndar nekk ak tubaab bi di ko bindal leetar ak di tekki lettre araab yi ñu leen doon bind ñoom ñoo ko doon teggi tekki am luñ cay amee euh, ci noonu tubaab bi ni leen ñun dafa am lu ñu jaaxal El Hadji Omar mii di woote jiyaar wala Maba Jaxu mii woote jiyaar lan moo tax ndaw ñi yépp di fàq jëm ci ñoom xam nga laaj boobu tey boo ko boo seetloo jamono ji ñu toll nii nguur yu bari ñu ngi laaj laaj boobu di si nekk Mali Sahel ak feneen ci àddina bi ñu bari dañuy wax naan lu tax ndaw ñi topp leen ci jamono yooya ulema yooyu nekkoon ndar ak tubaab bi nga xam ne tubaab bee leen yoroon di leen fayeg di leen jox ñuy liggéeyal tubaab bi ñu ni ko ñett moo tax ndaw ñi topp leen El day tabax ay jàkka dem na màkka te day àtte ci charia ñett yooyu lañ jàpp ni moo tax ndaw ñu topp leen te yéen tubaab yii moom ndar mayu leen ñu loolu ñun leen loolu kay du problème man nañ leen koo may bu nekkee loolu rek la moom amul problème ñu tabaxal leen jumaa ci ndar jumaa jooju armee française moo ko tabax moo tax boo demee ci jumaa ja dafa am cloche boo nga xam ne ba léegi cloche baa nga fa ndar boo demee ci jumaa yi ndar jiñ fa tabaxoon ba léegi cloche baa nga fa mooy architecture bi gën a siiw ci Sénégal dëkk yu bari ndax ñoom bi ñu leen ne tabax leen juma ay armée française xamuñu luy juma ñu xool seen livre yi gis ñun leen fu ñuy jaamoo yàlla la ñu xool gis église ñu tabaxal leen église def ci cloche architecture boobu fu bëri Sénégal booy dox ci jumaa yi ñu tabax ci dëkk yi jumaa ji noonu la noonu la mel architecture boobu la jël am na dëkk bu ñuy wax bismillah mu ngi ci booru yoonu Fatick diggante Mbour ak Fatick boo demee seen jumaa ja mu ngi nekk ni ci sa ndeyjoor architecture boobu lañu jël boo demee avenue Lamine Gueye ci dakaar jàkka yi fa nekk wala jàkka ja nekk avenue Blanchot dakaar architecture boobu la jël ñu tabaxal leen jumaa ñu di fa julli ñu jóge ca teg tribunal musulman musulman ci Ndar ndar amoon na tribunal musulman ñu jël ay xaadi ñu nekk fa di àtte ci charia ngir tontu El Hadji Oumar ñun dangeen a bëgg a dem màkk léegi nañu organiser kuréel goo xam ne mooy lijjanti li leen di yóbbu màkk commissariat au pèlerinage à la Mecque bi am nii léegi foofu loolu mooy cosaanam fa la jóge kon matal na ñett yi leen waxoon ni moo tax ndaw ñi di topp tabaxal nañ leen jàkk tabaxal nañ leen jumaa di leen àtte ci sariya ba pare di leen yóbbu màkk ñooña topp tubaab bi loolu it am na ci wàllu doxalin wañ doon doxal tubaab bi ni mu doon dale ci kaw nit ñi ni ceddo yi doon def noonu la tubaab bi doon def dem ci dëkku jàmbur taal ko am na benn jamono 1864 mooy jamono ji gën a tar ci senegaal nit ñi dañoo mujj ñenn ñi dañuy jaay seen bopp ngir mën a am lu ñu dunde jaay sa bopp ngir am loo dunde mu am fi feebaru choléra feebaru pest bu metti nit ñëpp fàq ñii dem mbuur ñii dem jiwaalo ñii dem ndar ñii dem gore mu jamono ju metti ci noonu euh, ñu gis ni jamono ji nim mu mel mënuñoo continuer bàyyi noonu buñ ko bàyyee noonu rek réew yi muy kajoor bawol dañuy mujj faagaagal te déjà luy ëpp tubaab bi teg na ci loxoom mais tubaab bi bi mu ci tegee loxoom moom tubaab bi xamul réew mi te mënta jële ay tubaab ca France indi leen fii ndax suñ leen fi indee seen yaram dëppoowul ak tàngaayu réew mi ak feebar yi fi nekk seen yaram xamu ko dañuy dañ daan dee lu bari léegi ñu ni kon buur yi fi nekkoon te ñun faagaagal nañ leen seeni ay doom ñu ngi fi donn nañ ci seen bàyyi nu ñuy yore réew ñun suñ leen tàggatee tuuti rek dinañ leen mën a dénk senegaal ñu jël ay ku mel ni mbaaxaan doomi Lat Joor walla Salmon Fall wala yeneen buur yi fi nekkoon yépp ñu jël seen ay doom ubbi benn école bu ñuy wax école des otages ci ndar dugal leen fa jàngal leen tubaab jàngal leen nu ñuy yore réew ñenn ñi sax ñu jël leen yóbbu leen Tunisie pour jàngal leen nu ñuy yore naka la tubaab bi ni moomee réew moo nga xam ne mii am réewum jullit la naka la def ba jullit yi nangu moomeelu tubaab boobu loolu lañ leen jàngale woon bi ñu leen yóbboo Tunisie bi ñu dellusee ñoom lañ fal ñu nekk ay chef de canton fii ci Bawol mbaaxaan fii lañ ko faloon Salmon ndax dañoo pàcc Bawol ñaari pàcc Bawol oriental Bawol gi féete penku ak gi féete sowu gi féete penku ñu dénk ko mbaaxaan gi féete sowu ñu dénk ko Salmon Fall ñu nekk fi kon ci loolu ngeen gis ni tubaab bi itam mu ngi xool nu mu noote islaam nu mu jariñoo islaam ngir noot Sénégal ceddo it ñooñu ñu jël fal leen nga xam ne ñoom seeni maam ñoo fi nekkoon ay buur léegi tubaab bi jël leen tàggat leen def leen seeni ay liggéeykat teg leen ci boppu kuréel yu ndaw yi nekk ci réew mi ñu nekk ay chef de kanton ñooñu bi ñu ñëwee li leen tubaab bi santoon mooy bu kenn yëngu bu mu am benn fitna ci réew mi na ñépp di fay lempo bopp bu nee nay fay lempo bi ñëwee installé wu ñu seetlu ni nit ñi li ëpp àddiya lañ gën a sawar a jox ni lempo àddiya lañ gën a sawar a joxe ni fay lempo mu indi ak fiiraangi ñu ni tant sëriñ saa ngi fi surtout fii ci Bawol sëriñ Tuubaa ngi fi tant que sëriñ Tuubaa ngi fi sunu nguur gi du mën a taxaw fii ndax taalibe yi duñ nangoo fay lempo lu ñu am dañ koy yóbbu jox ko euh, muy euh, nagal la tuddati euh, addiya te boo leen woowee nga convoqué leen ci pays bi bala ñoo ñëw dañuy dem tàggu ci sëriñ bi ba am ndigal kon ñu am ak fiiraange ci sëriñ bi ñooñee ñoo sos gëmloo tubaab bi ni sëriñ bii kat day waaj jiyaar waaw doo doomu nit ñu ñuul ñoo ñooñu nga xam ne ñoom la tubaab bi jëloon dénk leen réew mi nga xam ne ñoom ñooy donoy ceddo yi fi nekkoon continuer di noot nit ñi sonal leen di leen teg alkande ñooñu ñoo ni tant que sëriñ baa ngi fi li ñu namm ci réew mi duñ ko am ñuy sosal sëriñ bi di ko sosal ni mu ngi wal ay cere mu ngi jënd ay fas jënd ay ngànnaay Gàmbi boo seetloo sax fi mu nekk tu Tuubaa Daaru Salaam boo seetloo boo nattee di digganteem ak Fuuta nga natt ko natt diggante Tuubaa ak Gàmbi ñoo tolloo Fuuta jiyaarkat yi fi musa nekk yépp fa lañ jóge te arm ngànnaay yépp Gàmbi lay jóge yow nga nekk ci diggante bi ni nga soree Fuuta noonu nga soree Gàmbi kon boo demee wuti ku la jàngal nu ñuy xeexe jiyaar di nga wuti ay arme Gàmbi boo ñëwee da ngay taal jiyaar bi sëñ bi sancee Daaru Salaam ñu tuumaal ko ci loolu ñi tabax tuuma ji chef de canton yi la ay nit ñu ñuul lañu dem gëmloo tubaab bi jamono yooyu sax gouverneur bi fi nekkoon moom ci bi ñuy tàmbali gëmuloon loolu mais dañoo bàyyi ba mu dem congé ñu tabax ñu taxawal tribunal bi ñu àttee sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo mois de septembre la septembre day daje jamono yu bër gouverneur nekku fi woon ndax gouverneur bi fi nekkoon ñu da ko wax lamot moom jublu gëmul woon loolu ñu ko doon wax ndax da daan yónnee ñuy yëddu sëñ bi te buñ ko yëddoo gis ni li ñuy wax ci moom dëppoowul ak li ko yëddukat yi di wax mais dañoo bàyyi ba mu dem ki organiser loolu nag ñaar lañu ku ñuy wax Leclerc ak ku ñuy wax Merlin lu tax ñaar ñooñu organiser ko ñaar ñooñu kenn ki moo nekkoon administrateur u Ndar kenn ki jiite bureau politique bi yoroon gouvernement bi ñoom ñoo fi gënoon a yàgg ñoo gënoon a xam réew mi gouverneur yi dañ daan ñëw def fi ñaari at dellu ngir bañ fee dee ñoom nag dañ fee yàgg ñoo tàggat doomi ceddo yi ñoom ñoo leen tàggat ba dénk leen réew mi seen ñooñu ñu tàggat dénk leen réew mi bëgguñu woon sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba su fi saxalee daara taalibe yi dañuy jublu ci moom nit ñu jublu ci moom kon duñu déggal kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom ñoom lañ yebaloon fii ci biir réew mi Merlin moomee rapport bi nga xam ne bii moom lañ moom lañ jàng ci bureau ndar ba nga xam ni ci lañ jaare ni sëñ bi dañ koy yóbbu Gabon moom moo bind rapport boobu ndey rapport ba Leclerc moom moo ko bind Merlin sukkandiku ci li mu wax bind beneen rapport tuumaal sëriñ bi Leclerc moom moom la dajaloon ci jeewal kon bu ngeen seetloo problème yi am ci jamono boobu léegi leer na ñetti mbër ñu ngi daje ci géew bi di bëre nguuru ceddo yi néew seen doole wàññeeku na tubaab bi dooleem yokku na sëriñ bi yoon wi muy commencé samp mu ngi jóg ndànk-ndànk ci jamono jooju doomi soxna yi fi nekkoon yépp ñetti yoon lañ gisoon yoo nga xam ne yii yaakaar nañ ni ci lañ mën a jaar ngir réew mi bañ a naax saay ngir diine bañ a tas ci réew mi ngir daara yi bañ a alkande ñett yoon lañ ci gisoon bi ci jëkk mooy dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ comme ni ma jaxataka kala def mu yiir la dina la bàyyi ngay jàngale dina la bàyyi ngay bind sa ay xas lu mel ni xasaayit dina la may daal féex boo soxlaa tool dina la ko jox nga ànd ak dammeel dégg li ci sëñ bi wax mook doon weñ ñoo ñaareelu yoon bi mooy nga dem àndi ak tubaab bi comme ñoom bu el mook daat nekk ci waawam xëy na di nga doxal sa diine waaye nag yaa ngi koy doxale ci daar al arab waaw foo nga xam ni fii doxal fa diine lu jafe lay doon ñetteelu yoon bi mooy nga taal jiyaar kon ñetti yoon yooyu rek lañ xamoon taal jiyaar wala nga ànd ak dammeel wala nga ànd ak tubaab bi jël nag sa xel ak sa xam-xam ak sàkku am imaan sàkku dem ba ixsaan doon suufiyanke bu wóor taxul nga gis yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar nit ñi daal jàppoon nañ ne dangay ngay ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi wala nga taal jiyaar mais sëñ bi moom gis na ci li mu dund ci li mu dund ni ànd ak dameel sottalul mbir mi fekki tubaab bi moom xel xalaatu ko taal jiyaare ci des waaye moom dafa dund jiyaaru Maba Jaxu gis la mu jur gis la mu jur Maba daanu na ci somb bi mu daanoo waa këram dañ tasaaroo maamu ndare ak sayer mati juboowuñu ñuy xe ñu jote ba mujj tubaab bi ërtal leen ñu dem Gàmbi sëriñ bi ci loolu ci la ci la nekke tout tàn tànk ci la yaroo daf ko fekkee gis ni fitna ji jëmalewul réew mi kër léegi boo dumoo yow fitna xanaa nga dem ànd ak tubaab bi comme ni mu leen ko waxee loolu du yoon nga dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ du yoon lu ci des nga gëstu bu baax xam jamono ji nga tombeel xam ne lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii nguuru ceddo yaa ngi fi teg alkande nit ñi di leen jàpp di jaay kon nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm kon waru leen a bett sëriñ bi sanc ab dëkk tudde ko Daaru Salaam kon moom liir na bu baax li société bi soxla ndax société bu dund ñetti téeméeri at nekk ci sawara nekk ci alkande nekk ci fitna ñuy taal dëkk yi di jàpp taal ngóob mi di teg alkande nit ñi muy góor di jigéen ñépp nekk ci fitna li ñu gën a bëgg mooy jàmm sëñ bi gis loolu moo tax dëkk bi mu njëkk a sanc mu tudde ko daaru salaam man de noonu laa ko jàngate bi mu sancee daaru salaam teg ci ay at yu néew ña luy tolloog ñaari at mu sanc tuubaa waaye nag yemul foofu dafa am yoon wu bees pull wu mu tëgg teg ko muy yoonu murit mu wékku nag ci tabax nit ku bees kon xam ne musula am senegal bu yàggul ci at yi ñu génn am na benn mouvement bu fi nekkoon tuddoon Y'en a ñu naan euh, dañuy tabax nouveau type de sénégalais man leen du fi gande da ngeen a xamul seen cosaanu réew rek waaye su ngeen ko xamoon di ngeen xam ni lii du fi gan am na jamono ñu waroon a tëgg sénégalais bu bees sëñ tubaab moo tëral ni ñuy tëggee sénégalais boobu moo ko tëral mu ko tàmbulee jànge ca daaray mbàkke kajoor ja baayam sañcoon mu jànge ko mu jànge fa nu ñuy jàngale ak nu ñuy tarbiyaa nit ba mu doon nit ku bees koo xam ne kii du wu du dara du ko jotale ak ki ànd ak yi dara du ko jotale ak ki ànd tubaab yi du niroog ñoom mu samp daara ju bees mais daara jooju boo ko sampee il faut nga génn nit ñi moo tax sëñ bi jóge Mbàkke nga xam ne commencé naa bari ay nit mu ñëw sañc Daaru Salaam sanc Tuubaa mais nguuru tubaab dafa fiir loolu rekk la bañ ku beru di jàngale jàngale moo xam ne mii musu fi woon a am ci loolu tubaab yi ni Merlin ci rapport bi mu bind def ni ñun kat sàgganoon nañ fi ba El Hadj Umar jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Maba Jaxu jóg fi indil ñu ay jafe sàgganoon nañ ba Malick Sy jóg fi indil ñu ay jafe-jafe te Cheikh Amadou Bamba mii de lii muy sumb nii ci fi ñii jaaroon fi lay jaar ndax moom sax daan na wirdu wirdu xaadir te xaadir yi ñu am jàmm lañ léegi bàyyi na ko mu ngi wirdu wirdu tiijaan te tijaan yi ñoom giyaar bu fi mu musa am ñoom ñoo ko taal loolu tuuma juñ tegoon sëriñ bi rek ngir fay daara ji ngir fay projet bi mu am tabax nit ku bees tëgg nit koo nga xam ne kii dina mucc ci yoonu ceddoo dina mucc ci yoon wi tubaab bi tëral bi mu defee loolu wéet ñëw fii tubaab bi ni kii dafa am lu muy waaj ñi nga xam ne ñoo doon nit ku ñuul doon ay chef de kanton Merlin ak Leclerc wax leen nañu ko sosal ñu sosal ko ni day waaj jiyaar ndax mu ngi jënd ay ngànnaay mu ngi wallu ay ay ay dugub di ko denc kon day waajal jiyaar te mu ngi nekk ci Bawol oriental muy Daaru Salaam gi mu sanc boo jógee ndakaaru walla nga jóge ci géej gi boo ko ërtalee day génn mën naa daw dem jublu penku loolu moo tax mu nekk Touba loolu lañ jàppoon ni moo ko tax a ñëw fii Touba kon ngeen gis ni sëñ bi dafa ubbi yoon woo nga xam ne bii wu yéeme la li ko yéemeel mooy jamono ji mu tollool pexe yi nit ñi amoon yépp ñetti pexe rekk la woon nga gis nag weneen yoon woowu wu lay tàggale ak tubaab bi te doo joteeg moom jote bu metti nga mu tàggale la ak ceddo yi nga am ak nit ku bees koo tëgg loolu yombul woon te ñi ko gis kenn kooku moo ko gis teg daaray tarbiya tàggat ci ay nit ñooñu mu tàggatoon biñ ko fexeelee ba yóbbu ko Gabon wane nañ seenu mat ndax ñoo tëye yoon wi ba sëriñ bi dellu siwaat yaakaar naa ni du fii laa leen di waxee li ci maam noo def yéen ma ci ëpp xam-xam <laughs> yéen ma yéen a ma war a leeralal ci loolu ndax xam ngeen lim ci def lu am solo lim ci def wala sëñ Abdourahmane Lo nga xam moom la dénkoon njàngale mi dénk njaboot gi maam Thierno ñooñee niñ leen tàggate woon moo tax li mu doon jafe-jafe lim leen dénkoon mucc na ayib mu def juróom-ñaari at yoo xam ne lii mat na ci lu mat juróom-benni at kenn xamul fu mu nekk bañ jàpp ni sëriñ bi génn na àddina ñu am na sax ñu leen ko gëmloo woon ñu leen sëriñ bi génn na àddina waaye yëngalul seenu ngëm yëngalu yëngalul seenu pasteef la leen sëñ bi dénkoon ñu continuer yor ko ndax tàggat gañ leen tàggatoon def leen ñuy nit ñu wuute ci doxalin ak ceddo yi wuute doxalin ak ñi àndoon ak tubaab bi ñoom ñu indi doxalin wu bees doxalin wu bees woowu ñu leen tàggat loolu moo tax ba ñu mën a dékku jaamaarloo yi ci amoon muy sëriñ maam Mamor Maane wala sëñ Alioune Diouf Lambaay ba leen teeñ tanoor songe ni leen dinaa tekki seen laxasaay yi tàggale leen nag ci Amadou Bamba sëriñ Mamor Mamor Maane ni ko da kàcc dañuy dem Touba kon loolu lañ tàmbalee woon ma bëggoon leen a woon li nga xam ne mooy ceddo gi fi nekkoon won leen li nga xam ne lii mooy li tubaab bi namoon ci ñun wala ñi nga xam ne dañoo taal jiyaar fitna bi mu doon àndal nga xam ni réew mi attanuñu ko woon ndax réew mu dund ñetti téeméeri at ci alkande boo leen bëggee teg jiyaar duñ ko àttan te moo ne bu nekkenteen da ngaa jàng alxuraan rek topp ci taal jiyaar ku la noot teg la loo xam ni tegu ko te nga nekku ci diine taal jiyaar jaadu na kon boo tànnoon lu yomb danga naan rekk fi mag ñi jaaroon laay jaar damay taal jiyaar waaye soo gëstoo jamono ji nga tombeel xam jamono ji li mu laaj nga xalaat ko moo tax sëñ bi du diine rekk du diine rekk dafa indi ci wàllu koom-koom indi ci wàllu politique indi ci wàllu social lu nekk mu am yoon wu mu tëral ñu war cee jaar yoon woowu pour nga jaar ci il faut ñu yar la yarub tarbiyaw sunu jamono ji ñu tollool itam nag loolu dafay xaw a tumuranke lool ay gune ngi sànku ni dañuy def jiyaar li ëpp ci ñi ñuy rey ay jullit lañ kon xam nga ni jiyaar booba moom ak sànkute rek lay mën a jur ñenn ñaa ngi ànd ak nguur yi lu buur bëgg nga ni dagan na kon ñetteelu yoon bi lañu xa lañu mel ni dañ koo fàtte man dama ne woon bu fekkonte ni diplomatie sénégalaise xam nañ bu baax seen histoire réew mën nañoo nekk les meilleurs conseillers des Nations Unies wax leen ni problème bi ñu jàkkaarloo nii muy jiyaar bi ñuy xeex nii musoon na fee am lu ma téeméeri at a ngi nii ci ginnaaw lañ ci génnewoon yaru tarbiya moo ñu ci génnewoon woon jiyaar génnewuñ ci woon topp tubaab bi génnewuñ ci woon topp nguur gi génnewuñ ci woon toppatoo njàng mi ak njàngale mi ñu teg ko ci yoon yar xale yi ci yaru tarbiya moo ñu ci mën a génnewaat ci jamono ji ñu toll nii war nañ xoolaat bu baax suñu école yi ak daara yi ni muy doxe ñu xool daaray mbàkke kajoor ja lan lañ ca mën a jàngate pour jubbanti suñu daara yi am nii muy daaray alxuraan di daaray tubaab nag surtout daaray tubaab yi yaakaar nañ daaray tarbiya moom amul grève <laughs> waaw ñun nag suñu daara yi moom nga xam ni ñu ngi ko tëggee ci tubaab bi lim ñu fi bàyyil waaw ñoom bi ñaaree léeg-léeg ndongo yi sax ñooy ëpp ba ñay jàngale <laughs> waaw am na sax ñuy pes ñuy pes seen seen seen jëwriñ waaw fitnaal ko kon bokk war nañu xalaataat man njàngale lañu war a jàngale ci senegaal mu dëppoo ak suñu cosaan dëppoo ak suñu taarix dëppoo ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon doonte que dinañ ko dëppale ak jamono waaye reen bi moom waruñu ko waruñu ko buut sànni te fleur rafet na lool fleuru garab rafet tóor tóoru garab rafet na lool mu nga ca kaw yamb yi di ko biiw ndax ab rafetaayam waaye bu sàgganee reeni garab ga ba reen ya dee garab gi dee reen yi moom du daanu ndax ci suuf lañ nekk fleur tóor tóor ma nekk ca kaw bu daanu dee am mooy gën a metti ab jël bu loru dee am mooy gën a metti ab jël kon loo ràññeeku ràññeeku rafet yamb yi di la biiw ngay xeeñ euh, kële misk walla jasmin bu mu la taxa beew mukk ba nga fàtte sa cosaan fàtte say reen ndax soo fàtte sa cosaan fàtte say reen bu reen yi dee garab gi dee yow ma nekk ca njobbaxtalu garab ga sab jël mooy gën a metti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di sant yéen ñëpp ci seenu teew euh, jërëjëf professeur sëñ Ibrahima Thioub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne àndil nga ñu ko te mooy fàttali cosaanu Sénégal ci diggante buur yi fi njëkkoon a nekk naka lañ doon dundee ba sëriñ bi ñëw fekk leen fi jëlaat beneen méthode bu bees boo xam ne ci la jële askan wi bu ñuy wax ne sëriñ bi da dagg na buumu njaam yi yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane aslëf la ci dara la ci mooy sëñ Tuubaa dafa ñëw àndaale pas-pas bu bees waaye boole ko xel mu yaatu mu rëy moo xam ne mooy tax ba la mu waxoon ne sama liggéey bi dinaa ko liggéey ba mu ba mu jeex te xat du damm deret du tuuru yaakaar naa ne mooy lii nga doon waxtaane te mooy fexe ba génnee nit ñi ci ñàkk xam génne leen ci leen ci alkande génne leen ci toroxtaange yóbbu leen ci ak njullit gu wér defar leen ba ñu mën a yor seeni bopp kon yaakaar naa ne li nga doon waxtaane lu am solo la lu mat a bàyyi xel la su ko defee nag loolu yaakaar naa ne war nañ cee mën a jàng ci sunu dund gu yees gi mooy fexe ba sëriñ bi fi mu bàyyee woon xeex bi te mooy fexe ba def jullit ñi ay jullit piir jullit xaqan mooy naka lañuy ñuy fexe ba foofu duñu fa jóg xam ne lépp euh, tartar du ko maye li ñuy wax on wa du ko maye euh, xeex ak doole du ko maye waaye xel moo koy maye ak gëm yàlla gu wér su ko defee itam loolu lu mot a bàyyi xel la rawatina ci jamono ji ñu toll euh, njàngale mi sëñ bi jàngale itam yaakaar naa ne feeñ na bu baax a baax ci waxtaan wi loolu itam ñu ngi la ci sant bu baax a baax xam naa du ñàkk am na ay laaj yoo xam ne euh, ñëw na ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane te mbokk yi doon teewlu laaj ko andi ko ci li nga doon waxtaane mu ne <clears throat> bokk na ci yooyu kii dafa ne euh, kuli téng la moo doon kan euh, kon xam naa laaj yi aju ci lii mu doon waxtaane mën naa génn waaw dafay laaj mu ne Koli Tengela moom mooy kan waaw Koli Tengela <coughs> buur la boo nga xam ne bii yoon wi ñuy wax deñanko deñanke deñankoobe ñoom ci fuuta lañ nekkoon waaye cosaanoo fuuta ñoom ci bëj saalumu réew mi lañ jóge woon euh, quinzième siècle màng dox jëm si fuuta ndax Fuuta boo ko seetloo askanu senegaal yi ngay gis yépp li ci ëpp foofu lañ jóge ndax fii sunu réew yi féete maral da leen a yomb nga toogum at taw bi du taw lu doy ngir nga mën a bey daf leen a yomb ci loolu moo tax Fuuta nga xam ne dafa am dex dex gi day baawaan tooyal fépp nga mën faa bey man ngaa bey ñaari yoon ci at mi soo nekkee Fuuta moo tax da daan mel ni comme acier di xëcc nit ñi ñuy ñëw ci booru dex gi dëkk si fa mais su jamono naataa naatee taw bi dellu siwaat di dox nam daan doxe ñu bëri dañ fa daan mànge delluwaat ci biir réew mi ndax da doon xat fuuta noonu la nit ñi dañ doon dem ak di ñëw muy wolof yi di séeréer yi di alpulaar yi tukulóor yi ñoom ñépp foofu lañ jóge laata moo tudd fuuta sax takk ruur la tuddoon am nañu ko tekkee dëkku kuur mooy ñoo xam ni ñi seen cosaan du woon diiney islaam waaye nag teewul almoravide yi biñ fay yegsi ñoom booba li ëpp ci ñoom ay jullit lañ te ki nga xam ni kii moo sos nguur ci réewi wolof yi muy njaajaan njaay baayam foofu la jóge woon mu sëy ak ko nga xam ni kii yaayam di tukkulóor di doomu Abraham Sall Lamtooro donk noonu dex gi doon xëccee nit ñi lool dafa amoon ñu jóge ci bëj gànnaaru réew mi ci bëj saalumu réew mi dox wut si fuuta biñ ñu yegsee ñoom ñu xarañ lañu woon ci xeex ak ngànnaay ñañ fi fekk ñu deen wax nguuruk tonjon yi ñoom deñanke yooyu muy waa Koli Tengelaa jiite leen moom moo nangu nguur ga falu ci fuuta quinzième siècle ñoom ñoo fa nekk ba torodo yi ñoo leen fa jële torodo yi ay jullit lañu woon yoo xam ne yii Souleymane Baal ak Abdul Xaadir Kan ñoo leen jiite woon ñoom ñoo naas saayal nguuru deñànk yooyu nga xam ni Koli Tengela moo ko sampoon kooku mooy Koli Tengela. waaw jërëjëf kii itam nee na daaw Demba ndax ab jullit la woon daaw Demba. Ah, ndax ab jullit la woon ndax ab jullit la woon. waaw daaw Demba moom ceddo la woon ak njulliteem moom euh, su ko waxee sax ci làmmiñ war nañoo mën a jàpp ni nekku ko woon ndax wax naa leen ni mu doon doxale Euh, xam nga ku dajale nit euh, euh, réew waxambaane yëpp rey leen seen baay kooku boo ko tuddee jullit tam de dina am lu des xanaa ni dëkk bi ku mu neex fudd waaye boo fuddoo doo wàcc say loxo te man rek maa fi lekk xorom te ku yëngu nga nga fàdd teg nu def nu dul noonu kooku day bu dee jullit ak njulitam moom xarees na koo seetaan loolu daal laa ci mën a tontu muy daaw dem. moom. moom ko ci barmaa ko fi jële waaw muy laajte yan njàngat lañ mën a def ci wàllu politik ak wàllu social ci li nga xam ne lii mooy xalaatu sëriñ bi. waaw loolu bari na am na lu ma ci junji mooy ni euh, réew mi nga xam ni moom nga nekk bala ngaa jëggaani feneen leneen di leen ko teg nga xool lan mooy seen cosaan boole xalaat lan mooy seen problème ci jamono yi ñuy dund lan mooy seen problème problème boobu fan la jóge lu ko jur nga xalaat lu ko mën a faj ndax boo dee xalaat ay yoon yu bëre yu ubbeeku yoon wu nekk danga ca war a def sa kem kàttan pour xam ndax jeexital ba mu am ci askan wi dina baax walla du baax soo jàngee charia rekk man ngaa yeewu rekk ni bu nekkee ci ay jafe-jafe nañ taal jiyaar la mu jural maa ba ku nekk gis na ko lam jural Amadou Cheikhou ku nekk gis na ko mais boo nekkee ci réew moo nga xam ne mii ñi ëpp ci réew ma ay baadoolo lañ ñu toog ñetti téeméeri at nekk ci alkande nekk ci fitna boo ñëwee bëgg leen a continuer ci fitna jooja ndax nga ni wax nañ ci alxuraan walla wax nañ ci àddis ni bu nàngam amee da ngaa war a jiyaar nga fekk réew moo xam ne mii ñu ngi ci alkande lu mat ci ñetti téeméeri at nit ñi sonn nañ feebar bu nekk dal na leen ngeen leen dañuy continuer fitna jooju dañuy continuer nekk ci mooy jàngatoo jàngatoo wàllu politique jàngatoo réew ma ci luñ toll loolu sëñ bi jàngal nañu ko ni foo nekk da ngaa war a seet loolu yegg metti na ko lool ba mu xalaata jiyaar kon moom buy jëloon lu yomb def lu yomb day taal jiyaar comme ñëpp rek wala mu dem ànd ak dammeel wala mu dem ànd ak tubaab bi loolu moo gënoon a yomb mais mu xalaat li gën a jafe mooy tàmbali nga xam ne lii mën naa am doo gis njariñ la ndax xale bu toll ci juróomi at juróom-benni at yow nga am lu mat ñeent fukki at nga di ko jàngal mën naa am bis bu njariñam di feeñ doo ko fekke boo yàkkamtee na nga tànn solution boo xam ne bii baaxul ci wàllu politik loolu war nañ koy xalaat bu baax a baax a baax a baax politique du pour sa bopp pour askan wi la sàmm alalu askan wi teg leen ci yoon ñu xam lu ñu war a def ak lu ñu wërta def nga jox gëdd ak fulla ak fayda njàngale loolu mën nañ ko cay jàng ci wàllu social li taxoon ceddo yi gën a xarab sëriñ bi ndax sëriñ bi moom li ko soxaloon mooy fi nit ki toll ci yàlla martaba ku nekk martaba bi mu lay jox ci fi nga toll ci yàlla la la ko la ko doon teg mais réewu ceddo yi réew ñun suñ cosaan fii lan moo daan def ba nit mooy nga doon garmi ci sa juddu bu nekkee géwél nga walla wuude nga walla tëgg nga dañ lay sof dañ lay sofental sëriñ bi nag ci waaso yooyu ci ngir yooyu dafa am ñum ci yëkkati ñu am solo ceddo yi mere ko ci loolu naan moom day jox ba ko nga xam ne kii démb rekk sama géwél la woon sama jaam la woon mun leen liy màggal nit kët du ca deret ja waaye ca na mu gëme yàlla ngëmam fu mu toll loolu moo am solo kon géwél bi mën naa gën a jige yàlla giir jaam bi mën naa gën a jige yàlla sànq loolu itam ci wàllu social sëriñ bi moo ñu ko jàngal ni ñuy féewaloo ni xàjjali ko xeeb nit ndax géwél la xeeb nit ndax tëgg la xeeb nit ndax wuude la loolu sëriñ bi jële woon na ko fi waaw am na ay seexam yoo xam ne yi ci ñooñu ci ñooñu lañu bokkoon te kenn du leen ko xoole te sëriñ bi xoolewu leen ko woon ci wàllu social kon am na lum ñu jàngal lu am solo foofu avant la colonisation la colonisation en tant que telle waaw euh, colonisation maanaam tubaab bi daf fi ñëw ci da ngay séddale nekk nekkam fii ci ñaari jamono asalaamaaleykum wa rahmatullah xel ci weeru tedd bii waaw xam naa di amaan mbégte lool nag ci teew ci jataay bi di dalal menn mbokk ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom jotaayu xam-xam ci barab bu tedd bii niki noonu kon tey ñu ngi fas ne ànd ak professeur Ibrahima cubu ñu gën koo xam ci ancien recteur bu université Cheikh Anta moom lañu war a amal tey waxtaan wu am solo muy waxtaan ci Cheikhul Khadim fan la fekk société bu senegal ak fan la ko yóbbu mu doon kon thème bu am solo boo xam ne bu mat a teewlu la waaye bala ñoo ñëw ci loolu bala ñu ko jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee ci képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak yëngatoom ci xam-xam mën nañoo wax rekk ne Euh, sëñ Ibrahima Cubb mii mu ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Malikunda ca wetu Mbuur euh, bi mu tombee bi mu tollee ci dal am njàng itam ci la dugg daara alxuraan def na fa ñaari at gannaaw bi ci la dugg ci école française bi ca Mbuur tàmbalee fa am njàngam ci atum 1962 ci la am CFE muy lijaas bi gën a ndaw ci école yu ndaw yi gannaaw bi ci la continuer am njàngam dem ca Thiès ba yegg ci lycée Malick Sy foofee la amee baccalauréat am gannaaw bi ci 1972 ci la dem ci école normal ba 1976 euh, jaar na école normale ci diggante boo mu tudd gannaaw bi itam affecté nañu ko waat Thiès mu nekk fa comme jàngalekatu primaire gannaaw bi la dellu jàngaat ba dem école normale supérieure gannaaw bi ci la fa nekk ba am fa master 1984 gannaaw bi nag ci la bawoo ci réew mi dem bitim réew ca France Paris foofee fa la nekk di fa jàng ba am doctorat am ci atum 1989 gannaaw bi itam nag bi mu dellusee ci réew mi affecté nañu ko ci ay lycée yu bari mën nañ cee lim rek lycée Lamine Gueye ak John Kennedy bi nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru gannaaw bi ci lañ ko yóbbu université Cheikh Anta foofu mu nekk fa comme assistant gannaaw bi ci la yokk ay jéegoom ci wàllu njàng ba ñu nommé ko fa professeur mu di fa jàngale histoire gannaaw bi ci atum 2014 ci lañ ko fa nommé comme recteur mu yor rectorat bu université Cheikh Anta Diop euh, ci atum 2020 ci la jël retraitam mooy koo xam ne daanaka liggéeyatut léegi ci gouvernement bi mën nañoo wax ne nag ay gëstoom nag da koo jëmale ci wàll fànn goo xam ne gu am solo la muy histoire Afrique kon lépp loo xam ne jëm na ci taarixu Afrique ak i jaar-jaaram ak yi xew-xew yi fi ma am moom ci loolu lay gëstu kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaanee loo muy sëriñ tubaa fan la fekkoon société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu. loolu lu mu xam la lu mu mën a waxtaane la kon yaakaar naa ne incha allahu taala mën nañoo fàttaliwaat mbokk yi ne leen euh, waxtaan yi ñuy amal fii képp koo xam ne raw na la am na fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne euh, dañuy tegaat waxtaan yi ci diggante Touba ak li ko wër waaye mën nañ cee tàmbali rek wax ne rajo Daarul Muxti bii direct la koy def ak rajo Bawol Média ñoom ñaar yooyu direct la ñuy def waxtaan wi buñ ca jógee itam Daarul Muxti dana ko tegaat suba ci 14h 15h Zik FM dana ko teg 14h 15h moom tamit Walf dana ko teg 19h jant bi 0h iRadio dana ko jàll 18h30 RTS Diourbel 13h30 Benno FM 17h Sud FM 20h30 Lamp FM 23h UCAB FM dana ko jàll 9h du matin Bawol Média bi ma waxoon sànq tamit direct la koy def. four FM dana ko jàllale vingt heures rajo Bambey dana ko jàllale vingt deux heures euh, Daara ji FM dana ko jàllale euh, moom tamit Daara ji FM moo mooy bi nekk Kébémer leer gi FM mu nga nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan bi RTS Touba moom tamit dana ko jàllale neuf heures Touba Fall FM moom tamit huit heures du matin fa la ko ci la koy jàllale kon rajo yooyu yëpp mën nañu wax ne waxtaan yi dañu koy jàllale. bu dee chaîne télévision yi nga xam ne ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi mën nañ cee lim Touba Vision Touba TV day jàllale waxtaan yi chaque jour Lamp Fall TV itam dana koy teg une heure une heure une YouTube yi nga xamante ne moom la ñuy lim itam chaîne YouTube yëpp dañu koy def direct kon mel na ni boo xoolee mbooloo mi sax ñu ci ëpp daanaka foofu lañ koy suivre tàmbalee ko ci Alwafa bu Daarul Moxti Touba Vision Baye Daaru Média nekk ci dëkk bi xam sa alxadimiya bawal média facebook bu alufaa bi itam da koy def gannaaw bu loolu jàllee itam ah, ren ji ubbi nañu fukki eh, groupe ak ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne groupe yëpp fees na te waxtaan yi rek lañu ñu fay jàllale kon mel na ni waxtaan yi yaatu na lool telegram bi tam ku tàppe alofaa Daarul Muxti depuis 2006 ba atum ren ji waxtaan wi sëñ Ibrahima di def dana ca nekk kon incha allahu taala ñu fàttali itam mbokk yi ne leen suba ci <clears throat> talaata ji danañu dalal suñ fàllu Samb sëñ fàllu Samb yitam ñuy am moom waxtaan ci dem bi ak dikk bi ay loraangeem ak i njariñam su ko defee àllarba ji euh, ambassadeur Modou Fall moom tamit dana teew ci jotaay bi waxtaan ak mu ci ahamiyatu sifara fil xaarij maanaam yan njëriñ la ambassadeur yi amal sénégalais yi ci biir réew mi ak bitim réew su ko defee alxames nga xam ne ci la ñuy tëj jotaay bi nag sëñ Mamoor Amdi moo yeneen i kilifa daañu fi teew su ko defee ñu waxtaane mustaqbalul muridiyya maa ëllëgu yooyu murid loolu kon moom mooy li nga xam ne moo aju ci asum ñu ñaan ñu ñaan yàlla teewee ko at yu baree baree baree bare te yëpp ñu ànd ko wér euh, su ko defee incha allahu taala dañuy jëbbal kàddu gi sëñ Ibrahima cubb ñaan yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci li nga xam ne moom lay waxtaan itam incha allahu taala mën na koo bind moo xam ñuy suivre ci youtube bi la moo xam ñu nekk ci jataay bi bu ko bindee bu ko jébbalee ci ñu yor wàllu googu incha allahu taala dinañ ko jàllale su ko defee moom mu tom tontu ci tontu ji après jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aousubillah mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar eh, sëriñ Muntaxa Mbàkke Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général de Mouride di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu di ziar xalifa Daaru Mufti di nuyu di ziar kilifa diine yépp yoo xam ne yii ñooy kilifa diine nekk ci tarixa bi di muridiya ñi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci rajo yi ak télévision yi yépp ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar baax a baax di sant waa daayira bi nga xam ne bii ñoom ñoo sàkku ci man ma ñëw def waxtaan wi ci weeru koor wu tedd wi maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax bi nga xamante ni jokkoon nañu ma nit man sama gëstu euh, depuis 1990 ba léegi euh, muy romb léegi fanweeri at mu ngi jëm ci taarix muy histoire surtout histoire Afrique euh, pàcc bi ma ci gën a féete mooy diggante dix-neuvième ak vingtième siècle mooy ñaar téeméeri at yi ñu weesu lan moo xew ci Afrique ak lan lañ ci mën a jàngate ndax histoire du caagee nag xool li weesu rekk du lu weesu moo ñu amal solo déedéet lii ñëw ëllëg moo ñu amal solo maanaam li koy misaal mooy dafay mel ni rétroviseuru oto booy xool sa rétroviseur li ci sa ginnaaw ngay gis waaye li ngay li tax mu amal la njariñ mooy mu tere laa am accident bi ñëw ci sa kanam histoire donc loolu lay jariñ xool jaar-jaar yi fi amoon lan lañ ci mën a jàngate ngir xam li ñuy dund mooy lan naka lañuy tabaxee ëllëg ci askan wi ci noonu bi ñu ma laajee thème boo xam bii mën naa ci waxtaan dama leen nii mën nañ xool jamono ji nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa dajee loon nu mu demee woon euh, yan jafe-jafe moo fi amoon yan pexe la ci nit ñi amoon ak moom yan pexe la ci jël lu mu ci indi ndax bala ngaa dégg dëgg li sëriñ biy wax nga xam yan jafe-jafe la jàkkaar looloon ba indi ci ay tontu euh, da ngeen di jàpp ni nag jafe-jafe yooyu yu tar la woon am na lu bari li ci nit ñi gën a xam mooy liñ ko yóbbu woon Gabon wala ñu yóbbu ko Mauritanie mu jaamaarloo ko ak tubaab bi mais am na yeneen yoon xam ne yi moo jur loolu te ñaari nit ñi dinañ koy umpule loolu laa ci bëgg a génne tuuti rek euh, ci waxtu yi nga xam ne yii moom lañ ma may euh, gëstu bi nag li ci ëpp ci tubaab lañ koy def waaye comme ni ma koy waxee wax ko ci wolof man moo ma gën a yomb wax ko ci tubaab eh, damay tàmbulee loo nga xam ne lii xëy na mag ñi xam nañ ko su ma ko tàmbulee sax xam na am na ay mag ñu fi nekk dinañ ko mën a yeggale su ma ne ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seyxu bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ma moo jébbulu woon dem tuubi ndeyam di jooy mun naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane sëriñ Mor Mané Serigne Aliou Diouf ñi lee ko daane keroog da leen woo fa péncam làmbaay naan leen danaa leen tàggaleeg laxasaay keroog da leen boole ci wurmbal ñuy kenn kennoo farba ja farba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal daam dàmm di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen baleen seex bàmba mbaama ren di murit yi yépp ma nga ma nga naan ba màndi murit yi naa ko bàmba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey noo yi sëriñ Momar Maane ko tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk dag ya ni tis pénc ma daldi jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daldi laxasu murit ya ñëw tuubaa xibaar ko Bàmba mu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jal ba ceddo ya dem kalaame kook borom ndar mu naa dangeen mokk mbaa mel ni aw dër ñi xam sëñ Moussa Ka xam nañ ni loolu ci jasaw Zakoor la jóge boo ko gëstoo ci li ma ci jot a jukki noonu jukki boobu ma ci génne am na ñetti mbër di bind wolofal ñoo leen di defaral ay téere danga nga gis ku soxla téere lu mel ni ak dàq boo ko soxlaa dinga ci def lu mat ay fanweeri jaan ngir ndax xeex bi bari na il faut nga wut gàllaaj gu tax nga tul te loolu dañ ci daan ñàkk lu bëree bëri ci alal ndax xeexoo bi bari kon sëriñ soosu am na sëriñ soo xam ne si dañ daan ànd ak nguuru ceddo yooyu euh, ci biir ànd boobu teewul nag am na ay doomu soxna yoo xam ne yi dañoo jóg xeex ak nguuri nguuri ceddo yooyu bari nañ lool ci suñu réew mi ki ci jëkk nga xam ni booba buur yi buur buuri ceddo yi ñu ngi jël nit ñi dëkk bu ñu dem taal ko jël nit ñi yóbbu dem jaay tubaab bi tubaab bi yóbbu ñoom ñu jënde ko sàngara naan nekk ci li neex seen bakkan di toj réew mi mu doon alkande ju rëy ju dal ci kaw réew dajeeg léeg-léeg ay njéeréer da ngay bey ba góob rekk des ci ceddo yi ñëw taal sa tool walla njéeréer yi ñëw lekk ko wala mbas ñëw comme mbas mi am nii léegi da doon am ci jamono yooyu muy jamono ju tar ju metti te li leen ko tegoon nguur googu ñu amoon te muy nguur gu baaxul moo leen ko tegoon te réew yépp nag moo fi moo fi sësoon muy Kajoor Bawol Waalo Siin Saalum Fuuta fépp ñoom ñoo fa nekkoon léegi jullit yi am ci ñu jóg ni nag war nañoo seet nu nuy def ak nguur yi lu ñuy tàggaleek ñoom ki ci jëkk Nasr al Din la tudd Mauritanie la jóge woon ànd ak ay jullit yu nekkoon fii ci réew mi ñu samp nguur xeex ak ceddo yi gañe leen samp nguur gu ñuy wax nguuru buuri jullit loolu 1673 la amoon bi mu amee mun leen yàlla sàkk lu leen ay kilifa ngir ñu di leen jaay ak di leen toroxal ak di leen noot yàlla daf leen jox kilifa pour mu aar leen teg leen ci yoonu yàlla looloo tax yàlla am ku mu teg seen kanam mais seen kilifa yi ngeen am nga xam ne ñoom dañu leen di jàpp taal seen kër yi taal seen euh, ngóob mi fotoñ leen jaay tubaab bi dañuy jóg xeex ak ñoom ngir tàggalikook ñoom biñ ko defee réew mi ànd ak ñoom ñu daaneel buur yooyu mais tubaab yi nga xam ne loolu arrangé wu leen jox leen ay ngànnaay jàppale leen ñu daaneel nguuru jullit googu nga xam ne moo njëkk am fii ci Sénégal di nguuru jullit di 1673 biñ leen daaneelee ñu bëri ci ñi bokkoon ci xeex ba doon ay jullit dañ leen a jaay ñu yóbbu leen Amérique mais ñi ci des dañoo tasaaroo ci biir réew mi. taal ay taal jàngu di fa jàngale arrêté xeex bi te xam ni ceddo yi neexaguñoo song ñu ne nañ wutiwaat doole ba ci kanam ci noonu Abdul Xaadir Kan ca Fuuta mu jógaat xeex xeex bi ci jamono ci jamonoy Amari Ngoone Ndee la mais moom itam dañ ko gañe ci xeex boobu ci dëkk bu ñuy wax Bungoy bàyyi ma lamin saar ku nekk dégg na ko moom itam Amari Ngoone Ndeele moomu moo ko daaneel ci xeex boo xam ñu ngi ko xeexoon ci dëkk bu ñuy wax cax réew ñu jàpp ca ñu bari jaay leen ay def leen ay jaam jaay leen ñenn ñi daw ñooy lébu yi sañc nguur gi nekkoon ndakaaru sëriñ ndakaaru ci loolu la jóge ci xeex boobu la jóge ñoom dañoo jóge kajoor dem Cap-Vert ci lañ ko samp jullit yi continuer di xeex ngir teggi nooteel googu ñàgg isa ca waalo 1827 1830 Malick Sy ca Bundu bokkul ak Seydi Hadj bu Tiwaawoon am na beneen Malick Sy ci Bundu kooku 18e siècle la El Hadj Oumar 1860 Maba Jaxu 1861 1867 Maba Jaxu boobu lu am solo la ndax Maba Jaxu ci ripp fu ñuy wax baadibu wolof yi di ko wax ripp soose si di ko wax baadibu fa la nekkoon am buur bu fa nekkoon ñu di ko wax jeere ba maroon mu am doom ju tudd jàkkere basin ñoom ñaar ñoo tegoon nooteel gu tar ci kaw jullit yi ci kaw mbooloo mi askan wi kooku dafa xëy benn bis dem ci kër benn nit fekk fa doomu jànqam mu jël ko yóbbu gëf ko yóbbu ko ci pays ba yemul ci loolu mu bind lettre jullit yi ni leen dajal leen alal yi ngeen am yépp jëndal ma ci ay gàtt yónnee ma ko ndax damay takk seen doom ji te se gàtt ngeen may yónnee ci laa war a organiser fête bi may feetoo sëy bi ñu nar a sëy xam nga loolu jéggi na dayo lool Maba Jaxu ni nag loolu moom mënuñu koo seetaan ci la taal jiyaar moom itam bi mu taalee jiyaar daan buur boobu lu mat ñaari weer rekk mu jóge Gàmbi tey ci foo xam ne ci Gàmbi la nekk tey di Saalum ñaari weer rekk mu nga Jolof buur yi fi nekkoon yépp mu faagaagal leen samp nguuru jullit ci noonu mu jël kilifa diine yu bari yu nekkoon ci réew mi tasaaroo mu jël leen yóbbu ñooro bokk na ci ñooñu Mamor Anta mu ànd fa ak Soxna Jaara Buso ñu nekk Poroxaan mu ubbi fa daara di fa jàngale doomi Maba Jaxu ci daara yooyu lañ doon jàngee ku mel ni Sayer Mati am na nag wuute ci loolu ñenn ñi nee nañ dafa forcer sëriñ yi ñu ñëw ci moom ñenn ñi ni dafa waxtaan ak ñoom ba yóbbu leen fa waaye lu ci mënti xew daal Maba moom xeex na xeex bu gaaw faagaagal nguur yi fi ne ko ndax nguur yooyu amuñu woon kenn ku leen jàpp jàppale ndax nit ñi dañ leen a dumóoyu woon ndax niñ doon doxale mais Maba bi mu demee xeex ak séeréer yi siin la daanu ci somb 1867 ku mel ni Lat Joor ca xeex booba la bokkoon Demba doonoon jaamub kajoor jaamu buur moo ko fa jële delloo ko kajoor Maam Mor Anta àndaat ak moom dellu kajoor Cheikh Amadou Bamba des poroxaan ba ni waajuram wu jigéen génne àddina la fekki waajuram wu góor ci kajoor nekk fa moom ci jamono ji muy nekk kajoor am na xeex bu dox diggante Amadou Cheikhou ma jóge woon Fuuta song kajoor ak Jolof ci turu lislaam di xeex ak nguuri ceddo yooyu ci jamono jooju Lat mooy dammeelu kajoor am na jamono sax Lat ànd na moom waaye dañoo mujj féewaloo bi mu dalee ci kajoor dal ci Jolof Alburi ak Lat ànd di xeex ak ñoom tubaab bi jàppale leen ñu xeex sàmb saajo bi ñu xeexee Samba saajo fala la Amadou Cheikhou daanu bi mu daanoo taalibe yi mu àndaloon ñuy xeex ñu jël leen ñoom ñëpp indi Kajoor def leen ay jaan mu jur werantewu rëy diggante ñi nga xam ni ñooy ulemaay kayoor yi àndoon ak dàmmeel ak Cheikh Amadou Bamba te booba toll na ci ak ndaw waaye nag fekk jàng na njàng mu wóor mu dëgër ba am lu mu làq ci xam-xam mu warante ko ku mel ni xaalima jaxate kala ci loolu bind na benn lettre bu mu jox dammeel bi ko xaalima jaxate jotee dafa jàng lettre bi dammeel ni ko wax ma lu ne ci lettre bi mu ne ko leetar bi jubluwul ci yow ci man mii la jublu mu ne ko sarax ma ngir yàlla wax ma li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci leetaram bi ndax booba ñu ngi lijjanti nu ñu def ba sëriñ bi ñëw nekk ci nguuru dammeel mun leen man jombale naa samay tànk mu jóg di dem ci benn buur bu dul yàlla ñoom ñu ngi fexee nuñ ko dugalee naan ko boo ñëwee dinañ la jox alal dinañ la jox martaba dinañ la jox dinañ la màggal loo soxla di nga ko am bu dee suuf ak lépp di ko am waaye fekk na booba moom du móoyu na loolu ba mu werante ceeg ma jaxate kalam mu ngi ko naan sëriñ bi gën buur bi gën ci buur yi mooy buur buy seeti sëriñ dafa taatan nu mu yore nguuram waaye boroom xam-xam buy dem ci kippaaru buur mook weñ wu dem ci ay jonkon ñooyam loolu la bindoon ci leetar bi moo tax ma jaxate kala ñimewu ko woon a wax dammeel mais bi mu ko waxee dammeel dammeel ni ko yow kay amuloo ciy mer ndax yow yaay weñ wi waaye man xam nga li ma doon waaye nag day day ndaw rek bu màggee dina dina dina soppeeku nañ ko jàpp ni ab ak ëkk la gu nekk ci suñu biir tool bu ñu béyee ba yegsi ci nañ ko wër rek mooy te ko continuer béy kon boog nguur yooyu fi nekkoon am na ay jullit yu àndoon ak ñoom am na luñ doon def lonkan dëppoowul ak yoon ñu teg nit ñi alkande teg leen ay jafe-jafe ay yu tara tara tar mais ci jamonoy sëriñ bi fekk na booba tubaab bi dal na ci seen kaw nasaxal na leen ñoom ñuy xeexoo ci seen biir ba néew doole nga xam ne bi leen tubaab bi faagaagal daanaka dara desatu fa woon teeñ tanoor ma ma leen waxoon ca ba may tàmbali bi ci Yaasin Galo Gànna daanoo ci Bawol moom moo ko remplacé mu jóg nag ni moom day fay islaam kon boog ngeen gis ni nguuru ceddo yi am na ay doomi soxna yu ànd ak ñoom mais am na ay doomi soxna yoo xam ne ñu nga ànd ak tubaab bi ca Ndar ku mel ni bu el Mogdad nga xam ni ñu jàng lañu woon ñu am xam-xam waaye ñu ngi dëkkoon ndar nekk ak tubaab bi di ko bindal lettre ak di tekki lettre araab yi ñu leen doon bind ñoom ñoo ko doon teggi tekki am luñ cay amee euh, ci noonu tubaab bi ni leen ñun dafa am lu ñu jaaxal El Hadj Umar mii di woote jiyaar wala Maba Jaxu mii woote jiyaar lan moo tax ndaw ñi yépp di fàq jëm ci ñoom xam nga laaj boobu tey boo ko boo seetloo jamono ji ñu toll nii nguur yu bari ñu ngi laaj laaj boobu di si nekk Mali Sahel ak feneen ci àddina bi ñu bari dañuy wax naan lu tax ndaw ñu topp leen ci jamono yooya ulemaa yooyu nekkoon ndar ak tubaab bi nga xam ne tubaab bee leen yoroon di leen fayeg di leen jox ñuy liggéeyal tubaab bi ñu ni ko ñett moo tax ndaw ñi topp leen El day tabax ay jàkka dem na màkka te day àtte ci charia ñett yooyu lañ jàpp ni moo tax ndaw ñu topp leen te yéen tubaab yii moom ndar mayu leen ñu loolu ñun leen loolu kay du problème man nañ leen koo may bu nekkee loolu rek la moom amul problème ñu tabaxal leen jumaa ci ndar jumaa jooju armee française moo ko tabax moo tax boo demee ci jumaa ja dafa am cloche boo nga xam ne ba léegi cloche baa nga fa ndar boo demee ci jumaa yi ndar jiñ fa tabaxoon ba léegi cloche baa nga fa mooy architecture bi gën a siiw ci Sénégal dëkk yu bari ndax ñoom bi ñu leen ne tabax leen juma ay armée française xamuñu luy juma ñu xool seen livre yi gis ñun leen fu ñuy jaamoo yàlla la ñu xool gis église ñu tabaxal leen église def ci cloche architecture boobu fu bëri Sénégal booy dox ci jumaa yi ñu tabax ci dëkk yi jumaa ji noonu la noonu la mel architecture boobu la jël am na dëkk bu ñuy wax bismillah mu ngi ci booru yoonu Fatick diggante Mbour ak Fatick boo demee seen jumaa ja mu ngi nekk ni ci sa ndeyjoor architecture boobu lañ jël boo demee avenue lamin Gueye ci dakaar jàkka yi fa nekk wala jàkka ja nekk avenue Blanchot dakaar architecture boobu la jël ñu tabaxal leen jumaa ñu di fa julli ñu jóge ca teg tribunal musulman musulman ci Ndar ndar amoon na tribunal musulman ñu jël ay xaadi ñu nekk fa di àtte ci charia ngir tontu El Hadji Oumar ñun dangeen a bëgg a dem màkka léegi nañu organiser kuréel goo xam ne mooy lijjanti li leen di yóbbu màkka commissariat au pèlerinage à la bi am nii léegi foofu loolu mooy cosaanam fa la jóge kon matal na ñett yi leen waxoon ni moo tax ndaw ñi di topp tabaxal nañ leen jàkk tabaxal nañ leen jumaa di leen àtte ci sariya ba pare di leen yóbbu màkk ñooña topp tubaab bi loolu it am na ci wàllu doxalin wañ doon doxal tubaab bi ni mu doon dale ci kaw nit ñi ni ceddo yi doon def noonu la tubaab bi doon def dem ci dëkku jàmbur taal ko am na benn jamono 1864 mooy jamono ji gën a tar ci senegaal nit ñi dañoo mujj ñenn ñi dañuy jaay seen bopp ngir mën a am lu ñu dunde jaay sa bopp ngir am loo dunde mu am fi feebaru choléra feebaru pest bu metti nit ñëpp fàq ñii dem mbuur ñii dem jiwaalo ñii dem ndar ñii dem gore mu jamono ju metti ci noonu euh, ñu gis ni jamono ji nim mu mel mënuñoo continuer bàyyi noonu buñ ko bàyyee noonu rek réew yi muy kajoor bawol dañuy mujj faagaagal te déjà luy ëpp tubaab bi teg na ci loxoom mais tubaab bi bi mu ci tegee loxoom moom tubaab bi xamul réew mi te mënta jële ay tubaab ca France indi leen fii ndax suñu leen fi indee seen yaram dëppoowul ak tàngaayu réew mi ak feebar yi fi nekk seen yaram xamu ko dañuy dañ daan dee lu bari léegi ñu ni kon buur yi fi nekkoon te ñun faagaagal nañ leen seeni ay doom ñu ngi fi donn nañ ci seen bàyyi nu ñuy yore réew ñun suñ leen tàggatee tuuti rek dinañ leen mën a dénk senegaal ñu jël ay ku mel ni mbaaxaan doomi Lat Joor wala Salmon Fall wala yeneen buur yi fi nekkoon yépp ñu jël seen ay doom ubbi benn école bu ñuy wax école des otages ci ndar dugal leen fa jàngal leen tubaab jàngal leen nu ñuy yore réew ñenn ñi sax ñu jël leen yóbbu leen Tunisie pour jàngal leen nu ñuy yore naka la tubaab bi ni moomee réew moo nga xam ne mii am réewum jullit la naka la ñuy def ba jullit yi nangu moomeelu tubaab boobu loolu lañ leen jàngale woon bi ñu leen yóbboo Tunisie bi ñu dellusee ñoom lañ fal ñu nekk ay chef de canton fii ci bawol mbaaxaan fii lañ ko faloon salmon ndax dañoo pàcc bawol ñaari pàcc bawol oriental bawol gi féete penku ak gi féete sowu gi féete penku ñu dénk ko mbaaxaan gi féete sowu ñu dénk ko salmon fall ñu nekk fi kon ci loolu ngeen gis ni tubaab bi itam mu ngi xool nu mu noote islaam nu mu jariñoo islaam ngir noot senegaal ceddo it ñooñu ñu jël fal leen nga xam ne ñoom seeni maam ñoo fi nekkoon ay buur léegi tubaab bi jël leen tàggat leen def leen seeni ay liggéeykat teg leen ci boppu kuréel yu ndaw yi nekk ci réew mi ñu nekk ay chef de kanton ñooñu bi ñu ñëwee li leen tubaab bi santoon mooy bu kenn yëngu bu mu am benn fitna ci réew mi na ñépp di fay lempo bopp bu nee nay fay lempo bi ñëwee installé wu ñu seetlu ni nit ñi li ëpp àddiya lañ gën a sawar a jox ni lempo àddiya lañ gën a sawar a joxe ni fay lempo mu indi ak fiiraangi ñu ne tant que sëriñ saa ngi fi surtout fii ci bawul sëriñ Tuubaa ngi fi tant que sëriñ Tuubaa ngi fi sunu nguur gi du mën a taxaw fii ndax taalibe yi duñ nangoo fay lempo lu ñu am dañ koy yóbbu jox ko euh, muy euh, naka la tuddati euh, addiya te boo leen woowee nga convoqué leen ci pays bi bala ñoo ñëw dañuy dem tàggu ci sëriñ bi ba am ndigal kon ñu am ak fiiraange ci sëriñ bi ñooñee ñoo sos gëmloo tubaab bi ni sëriñ bii kat day waa jiyaar waaw doo doomu nit ñu ñuul ñoo ñi nga xam ne ñoom la tubaab bi jëloon dénk leen réew mi nga xam ne ñoom ñooy donoy ceddo yi fi nekkoon continuer di noot nit ñi sonal leen di leen teg alkande ñu ñoo ni tant que sëriñ baa ngi fi li ñu namm ci réew mi duñ ko am ñuy sosal sëriñ bi di ko sosal ni mu ngi wal ay cere mu ngi jënd ay fas jënd ay ngànnaay gàmmi boo seetloo sax fi mu nekk tu Tuubaa Daaru Salaam boo seetloo boo nattee di digganteem ak fuuta nga natt ko natt diggante tuubaa ak Gàmbi ñoo tolloo fuuta jiyaarkat yi fi musa nekk yépp fa lañ jóge te arm ngànnaay yépp Gàmbi lay jóge yow nga nekk ci diggante bi ni nga soree fuuta noonu nga soree Gàmbi kon boo demee wuti ku la jàngal nu ñuy xeexe jiyaar di nga wuti ay arme Gàmbi boo ñëwee da ngay taal jiyaar bi sëñ bi sancee Daaru Salaam ñu tuumaal ko ci loolu ñi tabax tuuma ji chef de canton yi la ay nit ñu ñuul lañu dem gëmloo tubaab bi jamono yooyu sax gouverneur bi fi nekkoon moom ci bi ñuy tàmbali gëmul woon loolu mais dañoo bàyyi ba mu dem congé ñu tabax ñu taxawal tribunal bi ñu àttee sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo mois de septembre la septembre day daje jamonoy bër gouverneur nekku fi woon ndax gouverneur bi fi nekkoon ñu da ko wax lamot moom jublu gëmul woon loolu ñu ko doon wax ndax da daan yónnee ñuy yëddu sëñ bi te buñ ko yëddoo gis ni li ñuy wax ci moom dëppoowul ak li ko yëddukat yi di wax mais dañoo bàyyi ba mu dem ki organiser loolu nag ñaar lañu ku ñuy wax Leclerc ak ku ñuy wax Merlin lu tax ñaar ñooñu organiser ko ñaar ñooñu kenn ki moo nekkoon administrateur u Ndar kenn ki jiite bureau politique bi yoroon gouvernement bi ñoom ñoo fi gënoon a yàgg ñoo gënoon a xam réew mi gouverneur yi dañ daan ñëw def fi ñaari at dellu ngir bañ fee dee ñoom nag dañ fee yàgg ñoo tàggat doomi ceddo yi ñoom ñoo leen tàggat ba dénk leen réew mi seen ñoo ñu tàggat dénk leen réew mi bëgguñu woon sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba su fi saxalee daara taalibe yi dañuy jublu ci moom nit ñu jublu ci moom kon du ñu déggal kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom ñoom lañ yebaloon fii ci biir réew mi Merlin moomee rapport bi nga xam ne bii moom lañ jàng ca bureau Ndar ba nga xam ni ci lañ jaare ni sëñ bi dañ koy yóbbu Gabon moom moo bind rapport boobu ndey rapport ba Leclerc moom moo ko bind Merlin sukkandiku ci li mu wax bind beneen rapport tuumaal sëriñ bi Leclerc moom moom la dajaloon ci jeewal kon bu ngeen seetloo problème yi am ci jamono boobu léegi leer na ñetti mbër ñu ngi daje ci géew bi di bëre nguuru ceddo yi néew seen doole wàññeeku na tubaab bi dooleem yokku na sëriñ bi yoon wi muy commencé samp mu ngi jóg ndànk-ndànk ci jamono jooju doomi soxna yi fi nekkoon yépp ñetti yoon lañ gisoon yoo nga xam ne yii yaakaar nañ ni ci lañ mën a jaar ngir réew mi bañ a naax saay ngir diine bañ a tas ci réew mi ngir daara yi bañ a alkande ñetti yoon lañ ci gisoon bi ci jëkk mooy dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ comme ni ma jaxataka la def mu yiir la dina la bàyyi ngay jàngale dina la bàyyi ngay bind sa ay eh, xas lu mel ni xasaayit dina la may daal féex boo soxlaa tool dina la ko jox nga ànd ak dammeel dégg ngeen li ci sëñ bi wax moo doon weñ ñoo yem ñaareelu yoon bi mooy nga dem àndi ak tubaab bi comme ñoom bu el Mogdad nekk ci waawam xëy na dinga doxal sa diine waaye nag yaa ngi koy doxale ci daara al arb waaw foo nga xam ne fii doxal fa diine lu jafe lay doon ñetteelu yoon bi mooy nga taal jiyaar kon ñetti yoon yooyu rek lañ xamoon taal jiyaar wala nga ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi jël nag sa xel ak sa xam-xam ak sàkku am imaan sàkku dem ba ixsaan doon suufiyanke bu wóor taxul nga gis yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar nit ñi daal jàppoon nañ ne dangay ngay ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi wala nga taal jiyaar sëñ bi moom gis na ci li mu dund ci li mu dund ni ànd ak dameel sottaluwul mbir mi fekki tubaab bi moom xel xalaatu ko taal jiyaar ci des waaye moom dafa dund jiyaaru Maba Jaxu gis la mu jur gis la mu jur Maba daanu na ci somb bi mu daanoo waa këram dañ tasaaroo maamu ndare ak sayer mati juboowuñu ñuy xe ñu jote ba mujj tubaab bi ërtal leen ñu dem Gàmbi sëriñ bi ci loolu ci la ci la nekke tànk ci la yaroo daf ko fekkee gis ni fitna ji jëmalewul réew mi kër léegi boo dumoo yow fitna xanaa nga dem ànd tubaab bi comme ni mu leen ko waxee loolu du yoon nga dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ du yoon lu ci des nga gëstu bu baax xam jamono ji nga tombeel xam ne lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii nguuru ceddo yaa ngi fi teg alkande nit ñi di leen jàpp di jaay kon nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm kon waru leen a bett sëriñ bi sanc ab dëkk tudde ko Daaru Salaam kon moom liir na bu baax li société bi soxla ndax société bu dund ñetti téeméeri at nekk ci sawara nekk ci alkande nekk ci fitna ñuy taal dëkk yi di jàpp taal ngóob mi di teg alkande nit ñi muy góor di jigéen ñépp nekk ci fitna li ñu gën a bëgg mooy jàmm sëñ bi gis loolu moo tax dëkk bi mu njëkk a sanc mu tudde ko Daaru Salaam man de noonu laa ko jàngate bi mu sancee daaru salaam teg ci ay at yu néew ña luy tolloog ñaari at mu sanc Touba waaye nag yemul foofu dafa am yoon wu bees pull wu mu tëgg teg ko muy yoonu murit mu wékku nag ci tabax nit ku bees kon xam musula am senegaal bu yàggul ci at yi ñu génn am na benn mouvement bu fi nekkoon tuddoon yaana maar ñu naan euh, dañuy tabax nouveau type de sénégalais man leen du fi gande da ngeen a xamul seen cosaanu réew rek waaye su ngeen ko xamoon di ngeen xam ni lii du fi gan am na jamono ñu waroon a tëgg sénégalais bu bees sëñ tubaab moo tëral ni ñuy tëggee sénégalais boobu moo ko tëral mu ko tàmbulee jàng ca daaray Mbàkke Kajoor ja baayam sañcoon mu jànge ko mu jànge fa nu ñuy jàngalee ak nu ñuy tarbiyaa nit ba mu doon nit ku bees koo xam ne kii du wu du dara du ko jotale ak ki ànd ak ceddo yi dara du ko jotale ak ki ànd ak tubaab yi du niroog ñoom mu samp daara ju bees mais daara jooju boo ko sampee il faut nga génn nit ñi moo tax sëñ bi jóge Mbàkke nga xam ne commencé naa bari ay nit mu ñëw sañc daaru salaam sanc Touba mais nguuru tubaab dafa fiir lool rekk la bañ ku beru di jàngale njàngale moo xam ne musu fi woon a am ci loolu tubaab yi ni Merlin ci rapport bi mu bind def ni ñun kat sàgganoon nañ fi ba El Hadj Umar jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Maba Jaxu jóg fi indil ñu ay jafe sàgganoon nañ ba Malick Sy jóg fi indil ñu ay jafe-jafe te Cheikh Amadou Bamba mii de lii muy sumb nii ci fi ñii jaaroon fi lay jaar ndax moom sax daan na wirdu wirdu xaadir te xaadir yi ñu am jàmm lañ léegi bàyyi na ko mu ngi wir wirdu tijaan te tijaani ñoom jiyaar bu fi musa am ñoom ñoo ko taal loolu tuuma la juñ tegoon sëriñ bi rek ngir fay daara ji ngir fay projet bi mu am tabax nit ku bees tëgg nit koo nga xam ne kii dina mucc ci yoonu ceddoo dina mucc ci yoon wi tubaab bi tëral bi mu defee loolu wéet ñëw fii tubaab bi ni kii dafa am lu muy waaj ñi nga xam ne ñoo doon nit ku ñuul doon ay chef de kanton Merlin ak Leclerc wax leen nañu ko sosal ñu sosal ko ni day waaj jiyaar ndax mu ngi jënd ay ngànnaay mu ngi wallu ay ay ay dugub di ko denc kon day waajal jiyaar te mu ngi nekk ci Bawol oriental muy Daaru Salaam gi mu sanc boo jógee Ndakaaru walla nga jóge ci géej gi boo ko ërtalee day génn mën naa daw dem jublu penku loolu moo tax mu nekk tuubaa loolu lañ jàppoon ni moo ko tax a ñëw fii Touba kon ngeen gis ni sëñ bi dafa ubbi yoon woo nga xam ne bii wu yéeme la li ko yéemeel mooy jamono ji mu tollool pexe yi nit ñi amoon yépp ñetti pexe rek la woon nga gis nag weneen yoon woowu wu lay tàggale ak tubaab bi te doo joteeg moom jote bu metti nga mu tàggale la ak ceddo yi nga am ak nit ku bees koo tëgg loolu yombul woon te ñi ko gis kenn kooku moo ko gis teg daaray tarbiya tàggat ci ay nit ñooñu mu tàggatoon biñ ko fexeelee ba yóbbu ko Gabon wone nañ seenu mat ndax ñoo tëye yoon wi ba sëriñ bi dellu siwaat yaakaar naa ni du fii laa leen di waxee li ci maam Thierno def yéena ma ci ëpp xam-xam <laughs> yéena ma yéena ma war a leeralal ci loolu ndax xam ngeen lim ci def lu am solo lim ci def wala sëñ Abdourahman loo nga xam moom la dénkoon njàngale mi dénk njaboot gi maam na ñooñee niñ leen tàggate woon moo tax li mu doon jafe-jafe lim leen dénkoon mucc na ayib mu def juróom-ñaari at yoo xam ne lii mat na ci lu mat juróom-benni at kenn xamul fu mu nekk bañ jàpp ni sëriñ bi génn na àddina ñu am na sax ñu leen ko gëmloo woon ñu leen sëriñ bi génn na àddina waaye yëngalul seenu ngëm yëngalul yëngalul seenu pasteef la leen sëñ bi dénkoon ñu continuer yor ko ndax tàggat gañ leen tàggatoon def leen ñuy nit ñu wuute ci doxalin ak ceddo yi wuute doxalin ak ñi àndoon ak tubaab bi ñoom ñu indi doxalin wu bees doxalin wu bees woowu ñu leen tàggat loolu moo tax ba ñu mën a dékku jaamaarloo yi ci amoon muy sëriñ Maam Mor Maane wala sëñ Alioune Diouf làmbaay ba leen teeñ tanoor songe ni leen dinaa tekki seen laxasaay yi tàggale leen nag ci Amadou bàmba sëriñ maam moor maane ni ko da kàcc dañuy dem Touba kon loolu lañ tàmbalee woon ma bëggoon leen a woon li nga xam ne mooy ceddoo gi fi nekkoon won leen li nga xam ni lii mooy li tubaab bi namoon ci ñun wala ñi nga xam ne dañoo taal jiyaar fitna bi mu doon àndal nga xam ni réew mi àttanuñu ko woon ndax réew mu dund ñetti téeméeri at ci alkande boo leen bëggee teg jiyaar duñ ko àttan te moo ne bu nekkenteen dangaa jàng alxuraan rek topp ci taal jiyaar ku la noot teg la loo xam ni tegu ko te nga nekku ci diine taal jiyaar jaadu na kon boo tànnoon lu yomb danga naan rek fi mag ñi jaaroon laay jaar damay taal jiyaar waaye soo gëstoo jamono ji nga tombeel xam jamono ji li mu laaj nga xalaat ko moo tax sëñ bi du diine rek du diine rek dafa indi ci wàllu koom-koom indi ci wàllu politik indi ci wàllu social lu nekk mu am yoon wu mu tëral ñu war cee jaar yoon woowu pour nga jaar ci il faut ñu yar la yarub tarbiyaw sunu jamono ji ñu tollool itam nag loolu dafay xaw a tumuranke lool ay gune ngi sànku ni dañuy def jiyaar li ëpp ci ñi ñuy rey ay jullit lañ kon xam nga ni jiyaar booba moom ak sànkute rek lay mën a jur ñenn ñaa ngi ànd ak nguur yi lu buur bëgg nga ni dagan na kon ñetteelu yoon bi lañu xa lañu mel ni dañ koo fàtte man dama ne woon bu fekkontee ni diplomatie sénégalaise xam nañ bu baax seen istoiru réew mën nañoo nekk les meilleurs conseillers des Nations Unies wax leen ni problème bi ñu jàkkaarlool nii muy jiyaar bi ñuy xeex nii musoon na fee am lu ma téeméeri at a ngi nii ci ginnaaw lañ ci génne yaru tarbiya moo ñu ci génnewoon woon jiyaar génnewuñ ci woon topp tubaab bi génnewuñ ci woon topp nguur gi génnewuñ ci woon toppatoo njàng mi ak njàngale mi ñu teg ko ci yoon yar xale yi ci yaru tarbiya moo ñu ci mën a génnewaat ci jamono jiñ toll nii war nañ xoolaat bu baax suñu ekool yi ak daara yi ni muy doxe ñu xool daaray mbàkke kajoor ja lan lañ ca mën a jàngate pour jubbanti suñu daara yi ñu am nii muy daaray alxuraan di daaray tubaab nag surtout daaray tubaab yi yaakaar naa ne daaray tarbiya moom amul grève <laughs> waaw ñun nag suñu daara yi moom nga xam ni ñu ngi ko tëggee ci tubaab bi lim ñu fi bàyyil waaw ñoom bi ñaare léeg-léeg ndongo yi sax ñooy ëpp martaba ñay jàngale <laughs> waaw am na sax ñuy pes ñuy pes seen seen seen jëwriñ waaw fitnaal ko kon bokk war nañu xalaataat man njàngale lañu war a jàngale ci Sénégal mu dëppoo ak suñu cosaan dëppoo ak suñu taarix dëppoo ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon donte que dinañ ko dëppale ak jamono waaye reen bi moom waruñu ko waruñu koo buut sànni te fleur rafet na lool fleuru garab rafet tóor tóoru garab rafet na lool mu nga ca kaw yamb yi di ko biiw ndax ab rafetaayam waaye bu sàgganee reeni garab ga ba reen ya dee garab gi dee reen yi moom du ñu daanu ndax ci suuf lañ nekk fleur tóor tóor ma nekk ca kaw bu daanu dee am mooy gën a metti ab jël bu loru dee am mooy gën a metti ab jël kon loo ràññeeku ràññeeku rafet yamb yi di la biiw ngay xeeñ euh, kële misk walla jasmin bu mu la taxa beew mukk ba nga fàtte sa cosaan fàtte say reen ndax soo fàtte sa cosaan fàtte say reen bu reen yi dee garab gi dee yow ma nekk ca njombaxtalu garab ga sëb jël mooy gën a metti asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen di sant yéen ñëpp ci seenu teew euh, jërëjëf professeur sëñ Ibrahima Thioub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne àndil nga ñu ko te mooy fàttali cosaanu senegal ci diggante buur yi fi njëkkoon a nekk naka lañ doon dundee ba sëriñ bi ñëw fekk leen fi jëlaat beneen méthode bu bees boo xam ne ci la jëlee askan wi bu ñuy wax ne sëriñ bi da dagg na buumu njaam yi yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane aslëf la ci dara la ci mooy sëriñ tubaa dafa ñëw àndaale pas-pas bu bees waaye boole ko xel mu yaatu mu rëy moo xam ne mooy tax ba la mu waxoon ne sama liggéey bi dinaa ko liggéey ba mu ba mu jeex te xat du damm deret du tuuru yaakaar naa ne mooy lii nga doon waxtaane te mooy fexe ba génnee nit ñi ci ñàkk xam génne leen ci leen ci alkande génne leen ci toroxtaange yóbbu leen ci ak njullit gu wér defar leen ba ñu mën a yor seeni bopp kon yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane lu am solo la lu mot a bàyyi xel la su ko defee nag loolu yaakaar naa ne war nañ cee mën a jàng ci sunu dund gu yees gi mooy fexe ba sëriñ bi fi mu bàyyee woon xeex bi te mooy fexe ba def jullit ñi ay jullit piir jullit xaqan mooy naka la ñuy fexe ba foofu duñu fa jóg xam ne lépp euh, tartar du ko maye li ñuy wax on wa du ko maye euh, xeex ak doole du ko maye waaye xel moo koy may ak gëm yàlla gu wér su ko defee itam loolu lu mot a bàyyi xel la rawatina ci jamono ji ñu toll njàngale mi sëñ bi jàngale itam yaakaar naa ne feeñ na bu baax a baax ci waxtaan wi loolu tam ñu ngi la ci sant bu baax a baax xam naa du ñàkk am na ay laaj yoo xam ne ñëw na ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane te mbokk yi doon teewlu laaj ko andi ko ci li nga doon waxtaane mu ne <coughs> bokk na ci yooyu kii dafa ne euh, kuli téng la moo doon kan euh, professeur kon xam naa laaj yi aju ci lii mu doon waxtaane naa génn dafay laaj mu ne Koli moom mooy kan waaw Koli <coughs> buur la boo nga xam ne bii yoon wi ñuy wax deñank deñanke deñankoobe ñoom ci fuuta lañ nekkoon waaye cosaanoo fuuta ñoom ci bëj saalumu réew mi lañ jóge woon euh, quinzième siècle màng dox jëm si fuuta ndax fuuta boo ko seetloo askanu Sénégal yi ngay gis yépp li ci ëpp foofu lañ jóge ndax fii sunu réew yi féete maral da leen a yomb nga toogum at taw bi du taw lu doy ngir nga mën a bey daf leena a yomb ci loolu moo tax fuuta nga xam ne dafa am dex dex gi day baawaan tooyal fépp nga mën faa bey mën ngaa bey ñaari yoon ci at mi soo nekkee Fuuta moo tax da daan mel ni comme acier di xëcc nit ñi ñuy ñëw ci booru dex gi dëkk si fa mais su jamono naataa naatee taw bi dellusiwaat di dox nam daan doxe ñu bari dañ fa daan mànge delluwaat ci biir réew mi ndax da doon xat fuuta noonu la nit ñi dañ doon dem ak di ñëw muy wolof yi di séeréer yi di alpulaar yi tukulóor yi ñoom ñépp foofu lañ jóge laata moo tudd fuuta sax takk ruur la tuddoon am na ñu ko tekkee dëkku kuur mooy ñoo xam ne ñi seen cosaan du woon diiney islaam waaye nag teewul almoravide yi biñ fay yegsi ñoom booba li ëpp ci ñoom ay jullit lañ te ki nga xam ni kii moo sos nguur ci réewi wolof yi muy njaajaan njaay baayam foofu la jóge woon mu sëy ak ko nga xam ni kii yaayam di tukkulóor di doomu Abraham Sall Lamtoor donc noonu dex gi doon xëccee nit ñi lool dafa amoon ñu jóge ci bëj gànnaaru réew mi ci bëj saalumu réew mi dox wut si fuuta biñ yegsee ñoom ñu xarañ lañu woon ci xeex ak ngànnaay ñañ fi fekk ñu deen wax nguuruk tonjon yi ñoom deñanke yooyu muy waa kolitengelaa jiite leen moom moo nangu nguur ga falu ci Fuuta quinzième siècle ñoom ñoo fa nekk ba torodo yi ñoo leen fa jële torodo yi ay jullit lañu woon yoo xam ne yii Souleymane Baal ak Abdul Xaadir Kan ñoo leen jiite woon ñoom ñoo naas saayal nguuru deñanke yooyu nga xam ni Koli tengelaa moo ko sampoon kooku mooy Koli Tengela. waaw jërëjëf kii itam nee na daaw Demba ndax ab jullit la woon daaw Demba. Ah, ndax ab jullit la woon ab jullit la woon. waaw daaw Demba moom ceddo la woon ak njuliteem moom euh, su ko waxee sax ci làmmiñ war nañoo mën a jàpp ni nekku ko woon ndax wax naa leen ni mu doon doxale euh, xam nga ku dajale nit. Euh, réew waxambaane yëpp rey leen seen baay kooku boo ko tuddee jullit tam de dina am lu des xanaa ni dëkk bi ku mu neex fudd waaye boo fuddoo doo wàcce say loxo te man rek maa fi lekk xorom te ku yëngu nga nga fàdd euh, teg nu def nu dul noonu kooku day bu dee jullit ak njullitam moom xarees na koo seetaan loolu daal laa ci mën a tontu muy daaw dem kii nee na moom. question sax ko ci fi jële waaw muy laajte yan njàngat lañ mën a def ci wàllu politique ak wàllu social ci li nga xam ne lii mooy xalaatu sëriñ bi waaw loolu bari na am na lu ma ci junji mooy ni euh, réew mi nga xam ni moom nga nekk bala ngaa jëggaani feneen leneen di leen ko teg nga xool lan mooy seen cosaan boole xalaat lan mooy seen problème ci jamono yi ñuy dund lan mooy seen problème problème boobu fan la jóge lu ko jur nga xalaat lu ko mën a faj ndax boo dee xalaat ay yoon yu bëre yu ubbeeku yoon wu nekk danga ca war a def sa kem kàttan pour xam ndax jeexital ba mu am ci askan wi dina baax walla du baax soo jàngee charia rekk man ngaa yeewu rekk ni bu nekkee ci ay jafe-jafe nañ taal jiyaar la mu jural Maba ku nekk gis na ko la mu jural Amadou Cheikhou ku nekk gis na ko mais boo nekkee ci réew moo nga xam ne mii ñi ëpp ci réew ma ay baadoolo lañ ñu toog ñetti téeméeri at nekk ci alkande nekk ci fitna boo ñëwee bëgg leen a continuer ci fitna jooja ndax nga ni wax nañ ci alxuraan wala wax nañ ci àddis ni bu nangam amee da ngaa war a jiyaar nga fekk réew moo xam ne mii ñu ngi ci alkande lu mat ci ñetti téeméeri at nit ñi sonn nañ feebar bu nekk dal na leen ngeen leen dañuy continuer fitna jooju dañuy continuer nekk ci mooy jàngatoo jàngatoo wàllu politique jàngatoo réew ma ci luñ toll loolu sëñ bi jàngal nañu ko ni foo nekk da ngaa war a seet loolu yegg metti na ko lool ba mu xalaat a jiyaar kon moom buy jëloon lu yomb def lu yomb day taal jiyaar comme ñëpp rek wala mu dem ànd ak dammeel wala mu dem ànd ak tubaab bi loolu moo gënoon a yomb mais mu xalaat li gën a jafe mooy tàmbali loo nga xam ne lii mën naa am doo gis njariñ la ndax xale bu toll ci juróomi at juróom-benni at yow nga am lu mat ñeent fukki at nga di ko jàngal mën naa am bis bu njariñam di feeñ doo ko fekke boo yàkkamtee na nga tànn solution boo xam bi baaxul ci wàllu politik loolu war nañ koy xalaat bu baax a baax a baax a baax politique du pour sa bopp pour askan wi la sàmm alalu askan wi teg leen ci yoon ñu xam lu ñu war a def ak lu ñu wërta def nga jox gëdd ak fulla ak fayda njàngale loolu mën nañ ko cee jàng ci wàllu social li taxoon ceddo yi gën a xarab sëriñ bi ndax sëriñ bi moom li ko soxaloon mooy fi nit ki toll ci yàlla martaba ku nekk martaba bi mu lay jox ci fi nga toll ci yàlla la la ko la ko doon teg mais réewu ceddo yi réew ñun suñ cosaan fii lan moo daan def ba nit mooy nga doon garmi ci sa juddu bu nekkee géwél nga walla wuude nga walla tëgg nga dañ lay sof dañ lay sofental sëriñ bi nag ci waaso yooyu ci ngir yooyu dafa am ñum ci yëkkati ñu am solo ceddo yi mere ko ci loolu naan moom day jox ba ko nga xam ni kii démb rek sama géwél la woon sama jaam la woon mun leen liy màggal nit kët du ca deret ja waaye ca na mu gëme yàlla ngëmam fu mu toll loolu moo am solo kon géwél bi mën naa gën a jige yàlla giir jaam bi mën naa gën a jige yàlla sànq loolu itam ci wàllu social sëriñ bi moo ñu ko jàngal ni ñuy féewaloo ni xàjjali ko xeeb nit ndax géwél la xeeb nit ndax tëgg la xeeb nit ndax wuude la loolu sëriñ bi jële woon na ko fi waaw am na ay seexam yoo xam ne yii ci ñooñu ci ñooñu lañu bokkoon te kenn du leen ko xoole te sëriñ bi xoolewu leen ko woon ci wàllu social kon am na lu ñu jàngal lu am solo foofu avant la colonisation la colonisation en tant que telle waaw euh, colonisation maanaam tubaab bi da fi ñëw ci da ngay séddale ñëw nekkam fii ci ñaari jamono asalaamaaleykum wa rahmatullah tegtal ci weeru tedd bii xam naa di amaan mbégte lool nag ci teew ci jataay bi di dalal menn mbokk ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom jotaayu xam-xam ci barab bu tedd bii ni ki noonu kon tey ñu ngi fas ne ànd ak professeur Ibrahima cubu ñu gën koo xam ci ancien recteur bu université Cheikh Anta moom lañu war a amal tey waxtaan wu am solo muy waxtaan ci Cheikhul Xadim fan la fekk société bu senegal ak fan la ko yóbbu mu doon kon thème bu am solo boo xam ne bu mat a teewlu la waaye bala ñoo ñëw ci loolu bala ñu ko jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee ci képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak yëngatoom ci xam-xam mën nañoo wax rekk ne Euh, seen Ibrahima Thioub mii mi ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Malicounda ca wetu Mbuur euh, bi mu tombee bi mu tollee ci dal am njàng itam ci la dugg daara alxuraan def na fa ñaari at gannaaw bi ci la dugg ci école française bi ca Mbuur tàmbalee fa am njàngam ci atum 1962 ci la am CFE muy lijaas bi gën a ndaw ci école yu ndaw yi gannaaw bi ci la continuer am njàngam dem ca Thiès ba yegg ci lycée Malick Sy foofee la amee baccalauréat am gannaaw bi ci 1972 ci la dem ci école normale ba 1976 euh, jaar na école normal ci diggante boobu ma tudd gannaaw bi itam affecté nañu ko waat Thiès mu nekk fa comme jàngalekatu primaire gannaaw bi la dellu jàngaat ba dem école normale supérieure gannaaw bi ci la fa nekk ba am fa master 1984 gannaaw bi nag ci la bawoo ci réew mi dem bitim réew ca France Paris foofee fa la nekk di fa jàng ba am doctorat ci atum 1989 gannaaw bi itam nag bi mu dellusee ci réew mi affecté nañu ko ci ay lycée yu bari mën nañ cee lim rek lycée Lamine Gueye ak John Kennedy bi nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru gannaaw bi ci lañ ko yóbbu université Cheikh Anta foofu mu nekk fa comme assistant gannaaw bi ci la yokk ay jéegoom ci wàllu njàng ba ñu nommé ko fa professeur mu di fa jàngale histoire gannaaw bi ci atum 2014 ci lañu ko fa nommé comme recteur mu yor rectorat bu université Cheikh Anta Diop euh, ci atum 2020 ci la jël retraitem mooy koo xam ne daanaka liggéeyatut léegi ci gouvernement bi mën nañoo wax ne nag ay gëstoom nag da koo jëmale ci wàll fànn goo xam ne gu am solo la muy histoire Afrique kon lépp loo xam ne jëm na ci taarixu Afrique ak i jaar-jaaram ak yi xew-xew yi fi mës am moom ci loolu lay gëstu kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaane loo muy sëriñ tubaa fan la fekkoon société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu loolu lu mu xam la lu mu mën a waxtaane la kon yaakaar naa ne incha allahu taala mën nañoo fàttaliwaat mbokk yi ne leen euh, waxtaan yi ñuy amal fii képp koo xam ne raw na la am na fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne euh, dañuy tegaat waxtaan yi ci diggante Touba ak li ko wër waaye mën nañ cee tàmbale rek wax ne rajo Daarul Muxti bii direct la koy def ak rajo Bawol Média ñoom ñaar yooyu direct la ñuy def waxtaan wi buñ ca jógee itam Daarul Muxti dana ko tegaat suba ci 14h 15h Zik FM dana ko teg 14h 15h moom tamit Walf dana ko teg 19h jant bi 0h iRadio dana ko jàll 18h30 RTS Diourbel 13h30 Benno FM 17h Sud FM 20h30 Lamp FM 23h UCAB FM dana ko jàll 9h du matin Bawol media bi ma waxoon sànq moom tamit direct la koy def. Carrefour FM dana ko jàllale vingt heures rajo Bambey dana ko jàllale vingt deux heures euh, Daara ji FM dana ko jàllale euh, moom tamit Daara ji FM moo mooy bi nekk Kébémer leer gi FM mu nga nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan bi RTS Touba moom tamit dana ko jàllale neuf heures Touba Fall FM moom tamit huit heures du matin fa la ko ci la koy jàllale kon rajo yooyu yëpp mën nañu wax ne waxtaan yi dañu koy jàllale. bu dee chain télévision yi nga xam ne ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi mën nañ cee lim Touba Vision Touba TV day jàllale waxtaan wi chaque jour Lamp Fall TV itam dana koy teg une heure une heure une heure YouTube yi nga xamante ne moom la ñuy lim itam chaîne YouTube yëpp dañu koy def direct kon mel na ni boo xoolee mbooloo mi sax ñu ci ëpp daanaka foofu lañ koy suivre tàmbalee ko ci Al Wafa bu Daarul Moxti Touba Vision Baye Daaru Média nekk ci dëkk bi xam sa réew TV Bichri alxadimiya bawal média facebook bu alwafa bi itam da koy def gannaaw bu loolu jàllee itam ah, ren ji ubbi nañu fukki eh, groupe ak ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne groupe yëpp fees na te waxtaan yi rek lañu fay jàllale kon mel na ni waxtaan yi yaatu na lool telegram bi itam ku tàppe alwafa daarul moxti depuis 2006 ba atum ren ji waxtaan wii sëñ Ibrahima di def dana ca nekk kon incha allahu taala ñu fàttali itam mbokk yi ne leen suba ci <clears throat> talaata ji danañu dalal sëñ fàllu sàmb sëñ fàllu sàmb yitam ñuy am moom waxtaan ci dem bi ak dikk bi ay loraangeem ak njariñam su ko defee àllarba ji euh, ambassadeur Modou Fall moom tamit dana tew ci jotaay bi waxtaan ak ci ahamiyatu sifara fil xaarij maanaam yan njëriñ la ambassadeur yi amal sénégalais yi ci biir réew mi ak bitim réew su ko defee alxames nga xam ne ci la ñuy tëj jataay bi nag sëñ Mamoor Amdi moo yeneen i kilifa daañu fi teew su ko defee ñu waxtaane mustaqbalul muridiyya maa ëllëgu yoonu murid loolu kon moom mooy li nga xam ne moo aju ci asum ñu ñaan ñu ñaan yàlla teewe ko at yu baree baree baree bëri te yëpp ñu ànd ko wér euh, su ko defee incha allahu taala dañuy jëbbal kàddu gi sëñ Ibrahima cubb ñaan yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci li nga xam ne moom lay waxtaan itam incha allahu taala mën na koo bind moo xam ñuy suivre ci youtube bi la moo xam ñu nekk ci jotaay bi bu ko bindee bu ko jébbalee ci ñu yor wàllu googu incha allahu taala dinañ ko jàllale su ko defee moom mu tam tontu ci tontu ci après jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aousubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar eh, sëriñ taxa Mbàkke Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des Mourides di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu di ziar xalifa Daaru Mufti di nuyu di ziar kilifa diine yépp yoo xam ni yii ñooy kilifa diine nekk ci tarixa bi di muridiya ñi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci rajo yi ak télévision yi yépp ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar baax a baax eh, di sant waa daayira bi nga xam ne bii ñoom ñoo sàkku ci man ma ñëw def waxtaan wi ci weeru koor wu tedd wi maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax bi nga xamante ni jokkoon nañu ak man it man sama gëstu eh, depuis 1990 ba léegi eh, muy romb léegi fanweeri at mu ngi jëm ci taarix mooy histoire surtout histoire Afrique euh, pàcc bi ma ci gën a féete mooy diggante dix-neuvième ak vingtième siècle mooy ñaar téeméeraat yi ñu weesu lan moo xew ci Afrique ak lan lañ ci mën a jàngate ndax histoire du caagee nag xool li weesu rekk du lu weesu moo ñu amal solo déedéet liy ñëw ëllëg moo ñu amal solo maanaam li koy misaal mooy dafay mel ni rétroviseuru oto booy xool sa rétroviseur li ci sa ginnaaw ngay gis waaye li ngay li tax mu amal la njariñ mooy mu tere laa am accident bi ñëw ci sa kanam histoire donc loolu lay jariñ xool jaar-jaar yi fi amoon lan lañ ci mën a jàngate ngir xam li ñuy dund mooy lan naka la ñuy tabaxee ëllëg ci askan wi ci noonu bi ñu ma laajee thème boo xam bii mën naa ci waxtaan dama leen nii mën nañ xool jamono ji nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa daje loon nu mu demee woon euh, yan jafe-jafe moo fi amoon yan pexe la ci nit ñi amoon ak moom yan pexe la ci jël lu mu ci indi ndax bala ngaa dégg dëgg li sëriñ biy wax nga xam yan jafe-jafe la jàkkaar looloon ba indi ci ay tontu euh, da ngeen di jàpp ni nag jafe-jafe yooyu yu tar la woon am na lu bari li ci nit ñi gën a xam mooy liñ ko yóbbu woon Gabon wala ñu yóbbu ko Mauritanie mu jaamaarloo ko ak tubaab bi mais am na yeneen yoon xam ne yi moo jur loolu te ñaari nit ñi dinañ koy umpule loolu laa ci bëgg a génne tuuti rek euh, ci waxtu yi nga xam ne yii moom lañ ma may euh, gëstu bi nag li ci ëpp ci tubaab lañ koy def waaye comme ni ma koy waxee wax ko ci wolof man moo ma gën a yomb wax ko ci tubaab eh, damay tàmbulee loo nga xam ne lii xëy na mag ñi xam nañ ko su ma ko tàmbulee sax xam na am na ay mag ñu fi nekk dinañ ko mën a yeggale su ma ne ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seyxu bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ma moo jébbulu woon dem tuubi ndeyam di jooy mun naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane sëriñ Mor Mané sëriñ Aliou Diouf milee ko daane keroog da leen a woo fa péncam làmbaay naan leen danaa leen tàggaleeg laxasaay keroog da na boole ci wurmbal ñuy kenn kennoo farba ja farba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal daam dàmm di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen baleen seex bàmba mbaama rendi murit yi yépp ma nga ma nga naan ba màndi murit yi naa ko bàmba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey noo yi sëriñ Momar Maane ko tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk dag ya ni tis pénc ma daldi jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daldi laxasu murit ya ñëw Touba xibaar ko Bàmba mu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jal ba ceddo ya dem kalaame kook borom ndar mu naa dangeen mokk mbaa mel ni aw dër ñi xam sëñ Moussa Ka xam nañ ni loolu ci jasaw Zakoor la jóge boo ko gëstoo ci li ma ci jot a jukki noonu jukki boobu ma ci génne am na ñetti mbër di bind wolofal ñoo leen di defaral ay téere danga nga gis ku soxla téere lu mel ni ak dàkk boo ko soxlaa dinga ci def lu mat ay fanweeri jaan ngir ndax xeex bi bari na il faut nga wut gàllaaj gu tax nga tuul te loolu dañ ci daan ñàkk lu bëree bëri ci alal ndax xeexoo bi bari kon sëriñ soosu am na sëriñ soo xam ne si dañ daan ànd ak nguuru ceddo yooyu euh, ci biir ànd boobu teewul nag am na ay doomu soxna yoo xam ne yi dañoo jóg xeex ak nguuri nguuri ceddo yooyu bari nañ lool ci suñu réew mi ki ci jëkk nga xam ni booba buur yi buuri ceddo yi ñu ngi jël nit ñi dëkk bu ñu dem taal ko jël nit ñi yóbbu dem jaay tubaab bi tubaab bi yóbbu ñoom ñu jënde ko sàngara naan nekk ci li neex seen bakkan di toj réew mi mu doon alkande ju rëy ju dal ci kaw réew dajeeg léeg-léeg ay njéeréer da ngay bey ba góob rekk des ci ceddo yi ñëw taal sa tool wala njéeréer yi ñëw lekk ko walla mbas ñëw comme mbas mi am nii léegi da doon am ci jamono yooyu muy jamono ju tar ju metti te li leen ko tegoon nguur googu ñu amoon te muy nguur gu baaxul moo leen ko tegoon te réew yépp nag moo fi moo fi sësoon muy kajoor bawol waalo siin saalum fuuta fépp ñoom ñoo fa nekkoon léegi jullit yi am ci ñu jóg ni nag war nañoo seet nu nuy def ak nguur yi lu ñuy tàggaleek ñoom ki ci jëkk Nasr al Din la tudd Mauritanie la jóge woon ànd ak ay jullit yu nekkoon fii ci réew mi ñu samp nguur xeex ak ceddo yi gañe leen samp nguur gu ñuy wax nguuru buuri jullit loolu 1673 la amoon bi mu amee mun leen yàlla sàkk lu leen ay kilifa ngir ñu di leen jaay ak di leen toroxal ak di leen noot yàlla daf leen jox kilifa pour mu aar leen teg leen ci yoonu yàlla looloo tax yàlla am ku mu teg seen kanam mais seen kilifa yi ngeen am nga xam ne ñoom dañ leen di jàpp taal seen kër yi taal seen euh, ngóob mi fotoñ leen jaay tubaab bi dañuy jóg xeex ak ñoom ngir tàggalikook ñoom biñ ko defee réew mi ànd ak ñoom ñu daaneel buur yooyu mais tubaab yi nga xam ne loolu arrangé wu leen jox leen ay ngànnaay jàppale leen ñu daaneel nguuru jullit googu nga xam ni moo njëkk am fii ci Sénégal di nguuru jullit di 1673. biñ leen daaneelee ñu bëri ci ñi bokkoon ci xeex ba doon ay jullit dañ leen a jaay ñu yóbbu leen Amérique mais ñi ci des dañoo tasaaroo ci biir réew mi taal ay taal jàngu di fa jàngale arrêté xeex bi te xam ni ceddo yi neexagu ñoo song ñu ne nañ wutiwaat doole ba ci kanam ci noonu Abdul Xaadir Kan ca Fuuta moo jógaat xeex xeex bi ci jamono ci jamonoy Amari Ngoone Ndee la mais moom itam dañ ko gañe ci xeex boobu ci dëkk bu ñuy wax Bungoy bàyyi ma lamin saar ku nekk dégg na ko moom itam Amari Ngoone Ndeele moomu moo ko daaneel ci xeex boo xam ñu ngi ko xeexoon ci dëkk bu ñuy wax cax réew ñu jàpp ca ñu bari jaay leen ay def leen ay jaam jaay leen ñenn ñi daw ñooy lébu yi sañc nguur gi nekkoon ndakaaru sëriñ ndakaaru ci loolu la jóge ci xeex boobu la jóge ñoom dañoo jóge kajoor dem Cap-Vert ci lañ ko samp jullit yi continuer di xeex ngir teggi nooteel googu ñàgga isa ca waalo 1827 1830 Malick Sy ca Bundu bokkul ak Seydi Aj Malick bu Tiwaawoon am na beneen Malick Sy ci Bundu kooku 18e siècle la El Hadj Oumar 1860 Maba Jaxu 1861 1867 Maba Jaxu boobu lu am solo la ndax Maba Jaxu ci rip fu ñuy wax baadibu wala fi di ko wax rip soose si di ko wax baadibu fa la nekkoon am buur bu fa nekkoon ñu di ko wax jeere ba maroon mu am doom ju tudd jàkkere basin ñoom ñaar ñoo tegoon nooteel gu tar ci kaw jullit yi ci kaw mbooloo mi askan wi kooku dafa xëy benn bis dem ci kër benn nit fekk fa doomu jànqam mu jël ko yóbbu gëf ko yóbbu ko ci pey ba yemul ci loolu mu bind lettre jullit yi ni leen dajal leen alal yi ngeen am yépp jëndal ma ci ay gàtt yónnee ma ko ndax damay takk seen doom ji te se gàtt yi ngeen may yónnee ci laa war a organiser fête bi may feetoo sëy bi ñu nar a sëy xam nga loolu jéggi na dayo lool Maba Jaxu ne nag loolu moom mënuñu koo seetaan ci la taal jiyaar moom itam bi mu taalee jiyaar daan buur boobu lu mat ñaari weer rekk mu jóge Gàmbi tey ci foo xam ne ci Gàmbi la nekk tey di Saalum ñaari weer rekk mu nga Jolof buur yi fi nekkoon yépp mu faagaagal leen samp nguuru jullit ci noonu mu jël kilifa diine yu bari yu nekkoon ci réew mi tasaaroo mu jël leen yóbbu ñooro bokk na ci ñooñu Mamor Anta mu ànd fa ak Soxna Jaara Buso ñu nekk Poroxaan mu ubbi fa daara di fa jàngale doomi ba Jaxu ci daara yooyu lañ doon jàngee ku mel ni Sayer Mati am na nag wuute ci loolu ñenn ñi nee nañ dafa forcer sëriñ yi ñu ñëw ci moom ñenn ñi ni dafa waxtaan ak ñoom ba yóbbu leen fa waaye lu ci mënti xew daal Maba moom xeex na xeex bu gaaw faagaagal nguur yi fi ne ko ndax nguur yooyu amuñu woon kenn ku leen jàppale ndax nit ñi dañu leen a dumóoyu woon ndax niñ doon doxale mais Maba bi mu demee xeex ak séréer yi siin la daanu ci somb 1867 ku mel ni Lat Joor ca xeex booba la bokkoon Demba doonoon jaamub kajoor jaamu buur moo ko fa jële delloo ko kajoor Maam Mor Anta àndaat ak moom dellu kajoor Cheikh Amadou Bamba des poroxaan ba ni waajuram wu jigéen génne àddina la fekki waajuram wu góor ci kajoor nekk fa moom ci jamono ji muy nekk kajoor am na xeex bu dox diggante Amadou Cheikhou ma jóge woon Fuuta song kajoor ak Jolof ci turu lislaam di xeex ak nguuri ceddo yooyu ci jamono jooju Lat mooy dammeelu kajoor am na jamono sax Lat ànd na moom waaye dañoo mujj féewaloo bi mu dalee ci kajoor dal ci jolof Alburi ak Lat ànd di xeex ak ñoom tubaab bi jàppale leen ñu xeex Samba saajo bi ñu xeexee sàmb saajo fa la Amadou Cheikhou daanu bi mu daanoo taalibe yi mu àndaloon ñuy xeex ñu jël leen ñoom ñëpp indi Kajoor def leen ay jaam mu jur werantewu rëy diggante ñi nga xam ni ñooy ulamaay Kajoor yi àndoon ak dàmmeel ak Cheikh Amadou Bamba te booba toll na ci ak ndaw waaye nag fekk jàng na njàng mu wóor mu dëgër ba am lu mu làq ci xam-xam mu warante ko ku mel ni xaalima jaxate kala ci loolu bind na benn lettre bu mu jox dammeel bi ko xaalima jaxate jotee dafa jàng leetar bi dammeel ni ko wax ma lu ne ci lettre bi mu ne ko leetar bi jubluwul ci yow ci man mii la jublu mu ne ko sarax ma ngir yàlla wax ma li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci leetaram bi ndax booba ñu ngi lijjanti nu ñu def ba sëriñ bi ñëw nekk ci nguuru dammeel mun leen man jombale naa samay tànk mu jóg di dem ci benn buur bu dul yàlla ñoom ñu ngi fexee nuñ ko dugalee naan ko boo ñëwee dinañ la jox alal dinañ la jox martaba dinañ la jox dinañ la màggal loo soxla di nga ko am bu dee suuf ak lépp di ko am waaye fekk na booba moom du móoyu na loolu ba mu werante ceeg ma jaxate kalam mu ngi ko naan sëriñ bi gën buur bi gën ci buur yi mooy buur buy seeti sëriñ dafa taatan nu mu yore nguuram waaye boroom xam-xam buy dem ci kippaaru buur mook weñ wu dem ci ay jonkon ñooyam loolu la bindoon ci leetar bi moo tax ma jaxate kala ñimewu ko woon a wax dammeel mais bi mu ko waxee dammeel dammeel ni ko yow kay amoo ciy mer ndax yow yaay weñ wi waaye man xam nga li ma doon waaye nag day day ndaw rek bu màggee dina dina dina soppeeku nañ ko jàpp ni ab ak ëkkla gu nekk ci suñu biir tool bu ñu béyee ba yegsi ci nañ ko wër rek mooy te ko continuer béy kon boog nguur yooyu fi nekkoon am na ay jullit yu àndoon ak ñoom am na luñ doon def loo dëppoowul ak yoon ñu teg nit ñi alkande teg leen ay jafe-jafe ay yu tara tara tar mais ci jamonoy sëriñ bi fekk na booba tubaab bi dal na ci seen kaw nasaxal na leen ñoom ñuy xeexoo ci seen biir ba néew doole nga xam ne bi leen tubaab bi faagaagal daanaka dara desatu fa woon teeñ tanoor ma ma leen waxoon ca ba may tàmbali bi cee Yacine Gallo Gànna daanoo ci Bawol moom moo ko remplacé mu jóg nag ni moom day fay islaam kon boog ngeen gis ni nguuru ceddo yi am na ay doomi soxna yu ànd ak ñoom mais am na ay doomi soxna yoo xam ne ñu nga ànd ak tubaab bi ca ndar ku mel ni bu el Mogdad nga xam ni ñu jàng lañu woon ñu am xam-xam waaye ñu ngi dëkkoon ndar nekk ak tubaab bi di ko bindal lettre ak di tekki lettre araab yi ñu leen doon bind ñoom ñoo ko doon teggi tekki am luñ cay amee euh, ci noonu tubaab bi ni leen ñun dafa am lu ñu jaaxal El Hadji Umar mii di woote jiyaar wala Maba Jaxu mii woote jiyaar lan moo tax ndaw ñi yépp di fàq jëm ci ñoom xam nga laaj boobu tey boo ko boo seetloo jamono ji ñu toll nii nguur yu bari ñu ngi laaj laaj boobu di si nekk Mali Sahel ak feneen ci àddina bi ñu bari dañuy wax naan lu tax ndaw ñi topp leen ci jamono yooya ulema yooyu nekkoon ndar ak tubaab bi nga xam ne tubaab bee leen yoroon di leen fayeg di leen jox ñuy liggéeyal tubaab bi ñu ni ko ñett moo tax ndaw ñi topp leen El day tabax ay jàkka dem na màkka te day àtte ci charia ñett yooyu lañ jàpp ni moo tax ndaw ñu topp leen te yéen tubaab yii moom ndar mayu leen ñu loolu ñun leen loolu kay du problème man nañ leen koo may bu nekkee loolu rek la moom amul problème ñu tabaxal leen jumaa ci ndar jumaa jooju armee française moo ko tabax moo tax boo demee ci jumaa ja dafa am cloche boo nga xam ne ba léegi cloche baa nga fa ndar boo demee ci jumaa yi ndar jiñ fa tabaxoon ba léegi cloche baa nga fa mooy architecture bi gën a siiw ci Sénégal dëkk yu bari ndax ñoom bi ñu leen ne tabax leen juma ay armée française xamuñu luy juma ñu xool seen livre yi gis ñun leen fu ñuy jaamoo yàlla la ñu xool gis église ñu tabaxal leen église def ci cloche architecture boobu fu bëri Sénégal booy dox ci jumaa yi ñu tabax ci dëkk yi jumaa ji noonu la noonu la mel architecture boobu la jël am na dëkk bu ñuy wax bismillah mu ngi ci booru yoonu Fatick diggante Mbour ak Fatick boo demee seen jumaa ja mu ngi nekk ni ci sa ndeyjoor architecture boobu lañ jël boo demee avenue Lamine Gueye ci Dakar jàkka yi fa nekk wala jàkka ja nekk avenue Blanchot dakaar architecture boobu la jël ñu tabaxal leen jumaa ñu di fa julli ñu jóge ca teg tribunal musulman musulman ci Ndar ndar amoon na tribunal musulman ñu jël ay xaadi ñu nekk fa di àtte ci charia ngir tontu El Hadji Umar ñun da ngeen a bëgg a dem màkka léegi nañu organiser kuréel goo xam ne mooy lijjanti li leen di yóbbu màkka commissariat au pèlerinage à la Mecque bi am nii léegi foofu loolu mooy cosaanam fa la jóge kon matal na ñett yi leen waxoon ni moo tax ndaw ñi di topp tabaxal nañ leen jàkk tabaxal nañ leen jumaa di leen àtte ci sariya ba pare di leen yóbbu màkka ñooña topp tubaab bi loolu it am na ci wàllu doxalin wañ doon doxal tubaab bi ni mu doon dale ci kaw nit ñi ni ceddo yi doon def noonu la tubaab bi doon def dem ci dëkku jàmbur taal ko am na benn jamono 1864 mooy jamono ji gën a tar ci senegaal nit ñi dañoo mujj ñenn ñi dañuy jaay seen bopp ngir mën a am lu ñu dunde jaay sa bopp ngir am loo dunde mu am fi feebaru choléra feebaru pest bu metti nit ñëpp fàq ñii dem mbuur ñii dem jiwaalo ñii dem ndar ñii dem gore mu jamono ju metti ci noonu euh, ñu gis ni jamono ji nim mu mel mënuñoo continuer bàyyi noonu buñ ko bàyyee noonu rek réew yi muy kajoor bawol dañuy mujj faagaagal te déjà luy ëpp tubaab bi teg na ci loxoom mais tubaab bi bi mu ci tegee loxoom moom tubaab bi xamul réew mi te mënta jële ay tubaab ca France indi leen fii ndax suñu leen fi indee seen yaram dëppoowul ak tàngaayu réew mi ak feebar yi fi nekk seen yaram xamu ko dañuy dañ daan dee lu bari léegi ñu ni kon buur yi fi nekkoon te ñun faagaagal nañ leen seeni ay doom ñu ngi fi donn nañ ci seen bàyyi nu ñuy yore réew ñun suñ leen tàggatee tuuti rek dinañ leen mën a dénk senegaal ñu jël ay ku mel ni mbaaxaan doomi Lat Joor wala Salmon Fall wala yeneen buur yi fi nekkoon yépp ñu jël seen ay doom ubbi benn école bu ñuy wax école des otage ci ndar dugal leen fa jàngal leen tubaab jàngal leen nu ñuy yore réew ñenn ñi sax ñu jël leen yóbbu leen Tunisie pour jàngal leen nu ñuy yore naka la tubaab bi ni moomee réew moo nga xam ne mii am réewum jullit la naka la ñuy def ba jullit yi nangu moomeelu tubaab boobu loolu lañ leen jàngale woon bi ñu leen yóbboo Tunisie bi ñu dellusee ñoom lañ fal ñu nekk ay chef de canton fii ci bawol mbaaxaan fii lañ ko faloon salmon ndax dañoo pàcc bawol ñaari pàcc bawol oriental bawol gi féete penku ak gi féete sowu gi féete penku ñu dénk ko mbaaxaan gi féete sowu ñu dénk ko salmon fall ñu nekk fi kon ci loolu ngeen gis ni tubaab bi itam mu ngi xool nu mu noote islaam nu mu jariñoo islaam ngir noot senegaal ceddo it ñooñu ñu jël fal leen nga xam ne ñoom seeni maam ñoo fi nekkoon ay buur léegi tubaab bi jël leen tàggat leen def leen seeni ay liggéeykat teg leen ci boppu kuréel yu ndaw yi nekk ci réew mi ñu nekk ay chef de kanton ñooñu biñ ñëwee li leen tubaab bi santoon mooy bu kenn yëngu bu mu am benn fitna ci réew mi na ñépp di fay lempo bopp bu nee nay fay l'impôt bi ñëwee installé wu ñu seetlu ni nit ñi li ëpp àddiya lañ gën a sawar a jox ni l'impôt àddiya lañ gën a sawar a joxe ni fay l'impôt mu indi ak fiiraangi ñu ne tant que sëriñ saa ngi fi surtout fii ci bawul sëriñ Tuubaa ngi fi tant que sëriñ Tuubaa ngi fi sunu nguur gi du mën a taxaw fii ndax taalibe yi duñ nangoo fay lempo lu ñu am dañ koy yóbbu jox ko euh, muy euh, naka la tuddati euh, addiya te boo leen woowee nga convoqué leen ci pays bi bala ñoo ñëw dañuy dem tàggu ci sëriñ bi ba am ndigal kon ñu am ak fiiraange ci sëriñ bi ñooñee ñoo sos gëmloo tubaab bi ni sëriñ bii kat day waa jiyaar waaw doo doomu nit ñu ñuul ñoo ñooñu nga xam ne ñoom la tubaab bi jëloon dénk leen réew mi nga xam ne ñoom ñooy donoy ceddo yi fi nekkoon continuer di noot nit ñi sonal leen di leen teg alkande ñu ñoo ni tant que sëriñ baa ngi fi li ñu namm ci réew mi duñ ko am ñuy sosal sëriñ bi di ko sosal ni mu ngi wal ay cere mu ngi jënd ay fas jënd ay ngànnaay gàmmi boo seetloo sax fi mu nekk tu Tuubaa Daaru Salaam boo seetloo boo nattee di digganteem ak fuuta nga natt ko natt diggante tuubaa ak Gàmbi ñoo tolloo fuuta jiyaarkat yi fi musa nekk yépp fa lañ jóge te arm ngànnaay yépp Gàmbi lay jóge yow nga nekk ci diggante bi ni nga soree fuuta noonu nga soree Gàmbi kon boo demee wuti ku la jàngal nu ñuy xeexe jiyaar di nga wuti ay arme Gàmbi boo ñëwee da ngay taal jiyaar bi sëñ bi sancee Daaru Salaam ñu tuumaal ko ci loolu ñi tabax tuuma ji chef de canton yi la ay nit ñu ñuul lañu dem gëmloo tubaab bi jamono yooyu sax gouverneur bi fi nekkoon moom ci bi ñuy tàmbali gëmul woon loolu mais dañoo bàyyi ba mu dem congé ñu tabax ñu taxawal tribunal bi ñu àttee sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo mois de septembre la septembre day daje jamonoy bër gouverneur nekku fi woon ndax gouverneur bi fi nekkoon ñu da ko wax lamot moom jublu gëmul woon loolu ñu ko doon wax ndax da daan yónnee ñuy yëddu sëñ bi te buñ ko yëddoo gis ni li ñuy wax ci moom dëppoowul ak li ko yëddukat yi di wax mais dañoo bàyyi ba mu dem ki organiser loolu nag ñaar lañu ku ñuy wax Leclerc ak ku ñuy wax Merlin lu tax ñaar ñooñu organiser ko ñaar ñooñu kenn ki moo nekkoon administrateur u Ndar kenn ki jiite bureau politique bi yoroon gouvernement bi ñoom ñoo fi gënoon a yàgg ñoo gënoon a xam réew mi gouverneur yi dañ daan ñëw def fi ñaari at dellu ngir bañ fee dee ñoom nag dañ fee yàgg ñoo tàggat doomi ceddo yi ñoom ñoo leen tàggat ba dénk leen réew mi seen ñooñu ñu tàggat dénk leen réew mi bëgguñu woon sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba su fi saxalee daara taalibe yi dañuy jublu ci moom nit ñu jublu ci moom kon du ñu déggal kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom ñoom lañ yebaloon fii ci biir réew mi Merlin moomee rapport bi nga xam ne bii moom lañ jàng ca bureau Ndar ba nga xam ni ci lañ jaare ni sëñ bi dañ koy yóbbu Gabon moom moo bind rapport boobu ndey rapport ba Leclerc moom moo ko bind Merlin sukkandiku ci li mu wax bind beneen rapport tuumaal sëriñ bi Leclerc moom moom la dajaloon ci jeewol kon bu ngeen seetloo problème yi am ci jamono boobu léegi leer na ñetti mbër ñu ngi daje ci géew bi di bëre nguuru ceddo yi néew seen doole wàññeeku na tubaab bi dooleem yokku na sëriñ bi yoon wi muy commencé samp mu ngi jóg ndànk-ndànk ci jamono jooju doomi soxna yi fi nekkoon yépp ñetti yoon lañ gisoon yoo nga xam ne yii yaakaar nañ ni ci lañ mën a jaar ngir réew mi bañ a naax saay ngir diine bañ a tas ci réew mi ngir daara yi bañ a alkande ñetti yoon lañ ci gisoon bi ci jëkk mooy dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ comme ni ma jaxataka kala def mu yiir la dina la bàyyi ngay jàngale dina la bàyyi ngay bind sa ay xas lu mel ni xasaayit dina la may daal féex boo soxlaa tool dina la ko jox nga ànd ak dammeel dégg li ci sëñ bi wax mook doon weñ ñoo yem ñaareelu yoon bi mooy nga dem àndi ak tubaab bi comme ñoom bu el daat nekk ci waawam xëy na di nga doxal sa diine waaye nag yaa ngi koy doxale ci daar al arab waaw foo nga xam ni fii doxal fa diine lu jafe lay doon ñetteelu yoon bi mooy nga taal jiyaar kon ñetti yoon yooyu rek lañ xamoon taal jiyaar wala nga ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi jël nag sa xel ak sa xam-xam ak sàkku am imaan sàkku dem ba ixsaan doon suufiyanke bu wóor taxul nga gis yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar nit ñi daal jàppoon nañ ne dangay ngay ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi wala nga taal jiyaar mais sëñ bi moom gis na ci li mu dund ci li mu dund ni ànd ak dameel sottalul mbir mi fekki tubaab bi moom xel xalaatu ko taal jiyaare ci des waaye moom dafa dund jiyaaru Maba Jaxu gis la mu jur gis la mu jur Maba daanu na ci somb bi mu daanoo waa këram dañ tasaaroo maamu ndare ak sayer mati juboowuñu ñuy xe ñu jote ba mujj tubaab bi ërtal leen ñu dem Gàmbi sëriñ bi ci loolu ci la ci la nekke tout tànk tànk ci la yaroo daf ko fekkee gis ni fitna ji jëmalewul réew mi kër léegi boo dumoo yow fitna xanaa nga dem àndeek tubaab bi comme ni mu leen ko waxee loolu du yoon nga dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ du yoon lu ci des nga gëstu bu baax xam jamono ji nga tombeel xam ne lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii nguuru ceddo yaa ngi fi teg alkande nit ñi di leen jàpp di jaay kon nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm kon waru leen a bett sëriñ bi sanc ab dëkk tudde ko Daaru Salaam kon moom liir na bu baax li societé bi soxla ndax société bu dund ñetti téeméeri at nekk ci sawara nekk ci alkande nekk ci fitna ñuy taal dëkk yi di jàpp taal ngóob mi di teg alkande nit ñi muy góor di jigéen ñépp nekk ci fitna li ñu gën a bëgg mooy jàmm sëñ bi gis loolu moo tax dëkk bi mu njëkk a sanc mu tudde ko daaru salaam man de noonu laa ko jàngate bi mu sancee daaru salaam teg ci ay at yu néew ña luy tolloog ñaari at mu sanc tuubaa waaye nag yemul foofu dafa am yoon wu bees pull wu mu tëgg teg ko muy yoonu murit mu wékku nag ci tabax nit ku bees kon xam ne musula am senegal bu yàggul ci at yi ñu génn am na benn mouvement bu fi nekkoon tuddoon yaana maar ñu naan euh, dañuy tabax nouveau type de sénégalais man leen du fi gande da ngeen a xamul seen cosaanu réew rek waaye su ngeen ko xamoon di ngeen xam ni lii du fi gan am na jamono ñu waroon a tëgg sénégalais bu bees sëñ tubaab moo tëral ni ñuy tëggee sénégalais boobu moo ko tëral mu ko tàmbulee jànge ca daaray mbàkke kajoor ja baayam sañcoon mu jànge ko mu jànge fa nu ñuy jàngale ak nu ñuy tarbiyaa nit ba mu doon nit ku bees koo xam ne kii du wu du dara du ko jotale ak ki ànd ak dara du ko jotale ak ki ànd tubaab yi du niroog ñoom mu samp daara ju bees mais daara jooju boo ko sampee il faut nga génn nit ñi moo tax sëñ bi jóge Mbàkke nga xam ne commencé naa bari ay nit mu ñëw sañc Daaru Salaam sanc Tuubaa mais nguuru tubaab dafa fiir loolu rekk la bañ ku beru di jàngale njàngale moo xam ne mii musu fi woon a am ci loolu tubaab yi ni Merlin ci rapport bi mu bind def ni ñun kat sàgganoon nañ fi ba El Hadj Umar jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Maba Jaxu jóg fi indil ñu ay jafe sàgganoon nañ ba Malick Sy jóg fi indil ñu ay jafe-jafe te Cheikh Amadou Bamba mii de lii muy sumb nii ci fi ñii jaaroon fi lay jaar ndax moom sax daan na wirdu wirdu xaadir te xaadir yi ñu am jàmm lañ léegi bàyyi na ko mu ngi wir wirdu tiijaan te tijaan yi ñoom giyaar bu fi mu musa am ñoom ñoo ko taal loolu tuuma juñ tegoon sëriñ bi rek ngir fay daara ji ngir fay projet bi mu am tabax nit ku bees tëgg nit koo nga xam ni kii dina mucc ci yoonu ceddoo dina mucc ci yoon wi tubaab bi tëral bi mu defee loolu wéet ñëw fii tubaab bi ni kii dafa am lu muy waaj ñi nga xam ne ñoo doon nit ku ñuul doon ay chef de canton Merlin ak Leclerc wax leen nañu ko sosal ñu sosal ko ni day waaj jiyaar ndax mu ngi jënd ay ngànnaay mu ngi wallu ay ay ay dugub di ko denc kon day waajal jiyaar te mu ngi nekk ci Bawol oriental muy Daaru Salaam gi mu sanc boo jógee ndakaaru walla nga jóge ci géej gi boo ko ërtalee day génn mën naa daw dem jublu penku loolu moo tax mu nekk Touba loolu lañ jàppoon ni moo ko tax a ñëw fii Touba kon ngeen gis ni sëñ bi dafa ubbi yoon woo nga xam ne bii wu yéeme la li ko yéemeel mooy jamono ji mu tollool pexe yi nit ñi amoon yépp ñetti pexe rekk la woon nga gis nag weneen yoon woowu wu lay tàggale ak tubaab bi te doo joteeg moom jote bu metti nga mu tàggale la ak ceddo yi nga am ak nit ku bees koo tëgg loolu yombul woon te ñi ko gis kenn kooku moo ko gis teg daaray tarbiya tàggat ci ay nit ñooñu mu tàggatoon biñ ko fexeelee ba yóbbu ko Gabon wone nañ seenu mat ndax ñoo téye yoon wi ba sëriñ bi dellu siwaat yaakaar naa ni du fii laa leen di waxee li ci maam noo def yéen a ma ci ëpp xam-xam <laughs> yéen ma yéen a ma war a leeralal ci loolu ndax xam ngeen lim ci def lu am solo lim ci def wala sëñ Abdourahmane Lo nga xam moom la dénkoon njàngale mi dénk njaboot gi maam Thierno ñooñee niñ leen tàggate woon moo tax li mu doon jafe-jafe lim leen dénkoon mucc na ayib mu def juróom-ñaari at yoo xam ne lii mat na ci lu mat juróom-benni at kenn xamul fu mu nekk bañ jàpp ni sëriñ bi génn na àddina ñu am na sax ñu leen ko gëmloo woon ñu leen sëriñ bi génn na àddina waaye yëngalul seenu ngëm yëngaluk yëngalul seenu pasteef la leen sëñ bi dénkoon ñu continuer yor ko ndax tàggat gañ leen tàggatoon def leen ñuy nit ñu wuute ci doxalin ak ceddo yi wuute doxalin ak ñi àndoon ak tubaab bi ñoom ñu indi doxalin wu bees doxalin wu bees woowu ñu leen tàggat loolu moo tax ba ñu mën a dékku jaamaarloo yi ci amoon muy sëriñ Mamor Maane wala sëñ Alioune Diouf Lambaye ba leen teeñ tanoor songee ni leen dinaa tekki seen laxasaay yi tàggale leen nag ci Amadou Bamba sëriñ Mamor Mamor Maane ni ko da kàcc dañuy dem Touba kon loolu lañ tàmbalee woon ma bëggoon leen a woon li nga xam ne mooy ceddoo gi fi nekkoon won leen li nga xam ne lii mooy li tubaab bi namoon ci ñun wala ñi nga xam dañoo taal jiyaar fitna bi mu doon àndal nga xam ni réew mi attanuñu ko woon ndax réew mu dund ñetti téeméeri at ci alkande boo leen bëggee teg jiyaar buñ ko àttan te moo ne bu nekkenteen danga jàng alxuraan rek topp ci taal jiyaar ku la noot teg la loo xam ni tegu ko te nga nekku ci diine taal jiyaar jaadu na kon boo tànnoon lu yomb danga naan rekk fi mag ñi jaaroon laay jaar damay taal jiyaar waaye soo gëstoo jamono ji nga tombeel xam jamono ji li mu laaj nga xalaat ko moo tax sëñ bi du diine rekk du diine rekk dafa indi ci wàllu koom-koom indi ci wàllu politik indi ci wàllu social lu nekk mu am yoon wu mu tëral ñu war cee jaar yoon woowu pour nga jaar ci il faut ñu yar la yarub tarbiya sunu jamono ji ñu tolloo itam nag loolu dafay xaw a tumuranke lool ay gune ngi sànku ni dañuy def jiyaar li ëpp ci ñi ñuy rey ay jullit lañ kon xam nga ni jiyaar booba moom ak sànkute rek lay mën a jur ñenn ñaa ngi ànd ak nguur yi lu buur bëgg nga ne dagan kon ñetteelu yoon bi lañu xa lañu mel ni dañ koo fàtte man dama ne woon bu fekkonte ni diplomatie sénégalaise xam nañ bu baax seen histoire réew mën nañoo nekk les meilleurs conseillers des Nations Unies wax leen ni problème bi ñu jàkkaarloo nii muy jiyaar bi ñuy xeex nii musoon na fee am lu ma téeméeri at a ngi nii ci ginnaaw lañ ci génnewoon yaru tarbiya moo ñu ci génnewoon woon jiyaar génnewuñ ci woon topp tubaab bi génnewuñ ci woon topp nguur gi génnewuñ ci woon toppatoo njàng mi ak njàngale mi ñu teg ko ci yoon yar xale yi ci yaru tarbiya moo ñu ci mën a génnewaat ci jamono jiñ ñu toll nii war nañ xoolaat bu baax suñu école yi ak daara yi ni muy doxe ñu xool daaray mbàkke kajoor ja lan lañ ca mën a jàngate pour jubbanti suñu daara yi am nii muy daaray alxuraan di daaray tubaab nag surtout daaray tubaab yi yaakaar naa ne daaray tarbiya moom amul grève <laughs> waaw ñun nag suñu daara yi moom nga xam ni ñu ngi ko tëggee ci tubaab bi lim ñu fi bàyyil waaw ñoom bi ñaaree léeg-léeg ndongo yi sax ñooy ëpp ba ñay jàngale <laughs> waaw am na sax ñuy pes ñuy pes seen seen jëwriñ waaw fitnaal ko kon boog war nañu xalaataat man njàngale lañu war a jàngale ci Sénégal mu dëppoo ak suñu cosaan dëppoo ak suñu taarix dëppoo ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon doonte que dinañ ko dëppale ak jamono waaye reen bi moom waruñu ko waruñu koo buut sànni te fleur rafet na lool fleuru garab rafet tóor tóoru garab rafet na lool mu nga ca kaw yamb yi di ko biiw ndax ab rafetaayam waaye bu sàgganee reeni garab ga ba reen ya dee garab gi dee reen yi moom du ñu daanu ndax ci suuf lañ nekk fleur tóor tóor ma nekk ca kaw bu daanu dee am mooy gën a metti ab jël bu loru dee am mooy gën a metti ab jël kon loo ràññeeku ràññeeku rafet yamb yi di la biiw ngay xeeñ euh, kële misk walla jasmin bu mu la taxa beew mukk ba nga fàtte sa cosaan fàtte say reen ndax soo fàtte sa cosaan fàtte say reen bu reen yi dee garab gi dee yow ma nekk ca njombaxtalu garab ga sëb jël mooy gën a metti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di sant yéen ñëpp ci seenu teew euh, jërëjëf sëñ Ibrahima Thioub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne àndil nga ñu ko te mooy fàttali cosaanu Sénégal ci diggante buur yi fi njëkkoon a nekk naka lañ doon dundee ba sëriñ bi ñëw fekk leen fi jëlaat beneen méthode bu bees boo xam ne ci la jële askan wi bu ñuy wax ne sëriñ bi da dagg na buumu njaam yi yaakaar naa ne lii nga doon waxtaanee. aslëf la ci dara la ci mooy sëñ Tuubaa dafa ñëw àndaale pas-pas bu bees waaye boole ko xel mu yaatu mu rëy moo xam ne mooy tax ba la mu waxoon ne sama liggéey bi dinaa ko liggéey ba mu ba mu jeex te xat du damm deret du tuuru yaakaar naa ne mooy lii nga doon waxtaane te mooy fexe ba génnee nit ñi ci ñàkk xam génne leen ci leen ci alkande génne leen ci toroxtaange yóbbu leen ci ak njulit gu wér defar leen ba ñu mën a yor seeni bopp kon yaakaar naa ne li nga doon waxtaane lu am solo la lu mat a bàyyi xel la su ko defee nag loolu yaakaar naa ne war nañ cee mën a jàng ci sunu dund gu yees gi mooy fexe ba sëriñ bi fi mu bàyyee woon xeex bi te mooy fexe ba def jullit ñi ay jullit piir jullit xaqan mooy naka lañuy ñuy fexe ba foofu duñu fa jóg xam ne lépp euh, tartar du ko maye li ñuy wax on wa du ko maye euh, xeex ak doole du ko maye waaye xel moo koy maye ak gëm yàlla gu wér su ko defee itam loolu lu mot a bàyyi xel la rawatina ci jamono ji ñu toll euh, njàngale mi sëñ bi jàngale itam yaakaar naa ne feeñ na bu baax a baax ci waxtaan wi loolu itam ñu ngi la ci sant bu baax a baax xam naa du ñàkk am na ay laaj yoo xam ne euh, ñëw na ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane te mbokk yi doon teewlu laaj ko andi ko ci li nga doon waxtaane mu ne <clears throat> bokk na ci yooyu kii dafa ne euh, kuli téng la moo doon kan euh, professeur kon xam naa laaj yi aju ci lii mu doon waxtaane mën naa génn waaw dafay laaj mu ne Koli Tengela moom mooy kan waaw Koli Tengela <coughs> buur la boo nga xam ne bii yoon wi ñuy wax deñanko deñanke deñankoobe ñoom ci fuuta lañ nekkoon waaye cosaanoo fuuta ñoom ci bëj saalumu réew mi lañ jóge woon euh, quinzième siècle màng dox jëm si fuuta ndax Fuuta boo ko seetloo askanu senegaal yi ngay gis yépp li ci ëpp foofu lañ jóge ndax fii sunu réew yi féete maral da leen a yomb nga toogum at taw bi du taw lu doy ngir nga mën a bey daf leen a yomb ci loolu moo tax Fuuta nga xam ne dafa am dex dex gi day baawaan tooyal fépp nga mën faa béy man ngaa béy ñaari yoon ci at mi soo nekkee Fuuta moo tax da daan mel ni comme acier di xëcc nit ñi ñuy ñëw ci booru dex gi dëkk si fa mais su jamono naataa naatee taw bi dellu siwaat di dox na mu daan doxe ñu bari dañ fa daan mànge delluwaat ci biir réew mi ndax da doon xat fuuta noonu la nit ñi dañ doon dem ak di ñëw muy wolof yi di séeréer yi di alpulaar yi tukulóor yi ñoom ñépp foofu lañ jóge laata moo tudd fuuta sax takk ruur la tuddoon am na ñu ko tekkee dëkku kuur mooy ñoo xam ni ñi seen cosaan du woon diiney islaam waaye nag teewul almoravide yi biñ fay yegsi ñoom booba li ëpp ci ñoom ay jullit lañ te ki nga xam ne kii moo sos nguur ci réewi wolof yi muy njaajaan njaay baayam foofu la jóge woon mu sëy ak ko nga xam ni kii yaayam di tukkulóor di doomu Abraham Sall lamtooro donk noonu dex gi doon xëccee nit ñi lool dafa amoon ñu jóge ci bëj gànnaaru réew mi ci bëj saalumu réew mi dox wut si fuuta biñ ñu yegsee ñoom ñu xarañ lañu woon ci xeex ak ngànnaay ñañ fi fekk ñu deen wax nguuruk tonjon yi ñoom deñanke yooyu muy waa Koli Tenge jiite leen moom moo nangu nguur ga falu ci fuuta quinzième siècle ñoom ñoo fa nekk ba torodo yi ñoo leen fa jële torodo yi ay jullit lañu woon yoo xam ne yii Souleymane Baal ak Abdul Xaadir Kan ñoo leen jiite woon ñoom ñoo naas saayal nguuru deñànk yooyu nga xam ni Koli Tengela moo ko sampoon kooku mooy Koli Tengela. jërëjëf kii itam nee na daaw Demba ndax ab jullit la woon daaw Demba. Ah, ndax ab jullit ab jullit la woon. waaw moom ceddo la woon ak njulliteem moom euh, su ko waxee sax ci làmmiñ war nañoo mën a jàpp ni nekk ko woon ndax wax naa leen ni mu doon doxale Euh, xam nga ku dajale nit euh, réew waxambaane yëpp rey leen seen baay kooku boo ko tuddee jullit tam de dina am lu des xanaa ni dëkk bi ku mu neex fudd waaye boo fuddoo doo wàcc say loxo te man rek maa fi lekk xorom te ku yëngu nga nga fàdd euh, teg nu def nu dul noonu kooku day bu dee jullit ak njulitam moom xarees na koo seetaan loolu daal laa ci mën a tontu muy daaw dem. kii moom. quels sont ko ci barmaa ko fi jële waaw muy laajte yan njàngat lañ mën a def ci wàllu politique ak wàllu social ci li nga xam ne lii mooy xalaatu sëriñ bi. waaw loolu bari na am na lu ma ci junji mooy ni euh, réew mi nga xam ni moom nga nekk bala ngaa jëggaani feneen leneen di leen ko teg nga xool lan mooy seen cosaan boole xalaat lan mooy seen problème ci jamono yi ñuy dund lan mooy seen problème problème boobu fan la jóge lu ko jur nga xalaat lu ko mën a faj ndax boo dee xalaat ay yoon yu bëre yu ubbeeku yoon wu nekk danga ca war a def sa kem kàttan pour xam ndax jeexital ba mu am ci askan wi dina baax walla du baax soo jàngee charia rek man ngaa yeewu rek ni bu nekkee ci ay jafe-jafe nañ taal jiyaar la mu jural maa ba ku nekk gis na ko lam jural Amadou Cheikhou ku nekk gis na ko mais boo nekkee ci réew moo nga xam ne mii ñi ëpp ci réew ma ay baadoolo lañ ñu toog ñetti téeméeri at nekk ci alkande nekk ci fitna boo ñëwee bëgg leen a continuer ci fitna jooja ndax nga ni wax nañ ci alxuraan walla wax nañ ci àddis ni bu nàngam amee da ngaa war a jiyaar nga fekk réew moo xam ne mii ñu ngi ci alkande lu mat ci ñetti téeméeri at nit ñi sonn nañ feebar bu nekk dal na leen ngeen leen dañuy continuer fitna jooju dañuy continuer nekk ci mooy jàngatoo jàngatoo wàllu politique jàngatoo réew ma ci luñ toll loolu sëñ bi jàngal nañu ko ni foo nekk da ngaa war a seet loolu yegg metti na ko lool ba mu xalaat jiyaar kon moom buy jëloon lu yomb def lu yomb day taal jiyaar comme ñëpp rek wala mu dem ànd ak dammeel wala mu dem ànd ak tubaab bi loolu moo gënoon a yomb mais mu xalaat li gën a jafe mooy tàmbali loo nga xam ne lii mën naa am doo gis njariñ la ndax xale bu toll ci juróomi at juróom-benni at yow nga am lu mat ñeent fukki at nga di ko jàngal mën naa am bis bu njariñam di feeñ doo ko fekke boo yàkkamtee na nga tànn solution boo xam ne baaxul ci wàllu politik loolu war nañ koy xalaat bu baax a baax a baax a baax politique du pour sa bopp pour askan wi la sàmm alalu askan wi teg leen ci yoon ñu xam lu ñu war a def ak lu ñu wërta def nga jox gëdd ak fulla ak fayda njàngale loolu mën nañ ko cee jàng ci wàllu social li taxoon ceddo yi gën a xarab sëriñ bi ndax sëriñ bi moom li ko soxaloon mooy fi nit ki toll ci yàlla martaba ku nekk martaba bi mu lay jox ci fi ngay toll ci yàlla la la ko la ko doon teg mais réew ceddo yi réew ñun suñ cosaan fii lan moo daan def ba nit mooy nga doon garmi ci sa juddu bu nekkee géwél nga walla wuude nga walla tëgg nga dañ lay sof dañ lay sofental sëriñ bi nag ci waaso yooyu ci ngir yooyu dafa am ñum ci yëkkati ñu am solo ceddo yi mere ko ci loolu naan moom day jox ba ko nga xam ne kii démb rekk sama géwél la woon sama jaam la woon mun leen liy màggal nit kët du ca deret ja waaye ca na mu gëme yàlla ngëmam fu mu toll loolu moo am solo kon géwél bi mën naa gën a jige yàlla giir jaam bi mën naa gën a jige yàlla sànq loolu itam ci wàllu social sëriñ bi moo ñu ko jàngal ni ñuy féewaloo ni xàjjali ko xeeb nit ndax géwél la xeeb nit ndax tëgg la xeeb nit ndax wuude la loolu sëriñ bi jële woon na ko fi waaw am na ay seexam yoon xam ne yi ci ñooñu ci ñooñu lañu bokkoon te kenn du leen ko xoole te sëriñ bi xoolewu leen ko woon ci wàllu social kon am na lum ñu jàngal lu am solo foofu avant la colonisation la colonisation en tant que telle waaw euh, colonisation maanaam tubaab bi da fi ñëw ci da ngay séddale ñëw nekkam fii ci ñaari jamono asalaamaaleykum wa rahmatullah ndokkeel ci weeru tedd bii xam naa di amaan mbégte lool nag ci teew ci jataay bi di dalal menn mbokk ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom jotaayu xam-xam ci barab bu tedd bii ni ki noonu kon tey ñu ngi fas yéene ànd ak professeur Ibrahima cubu ñu gën koo xam ci ancien recteur bu université Cheikh Anta moom lañu war a amal tey waxtaan wu am solo muy waxtaan ci Cheikhul Xadim fan la fekk société bu senegal ak fan la ko yóbbu mu doon kon thème bu am solo boo xam ne bu mat a teewlu la waaye bala ñoo ñëw ci loolu bala ñu ko jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee ci képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak yëngatuwam ci xam-xam mën nañoo wax rekk ne Euh, seen Ibrahima Thioub mii mi ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Malicounda ca wetu Mbuur euh, bi mu tombee bi mu tollee ci dal am njàng itam ci la dugg daara alxuraan def na fa ñaari at gannaaw bi ci la dugg ci école française bi ca Mbuur tàmbalee fa am njàngam ci atum 1962 ci la am CFE muy lijaas bi gën ndaw ci école yu ndaw yi gannaaw bi ci la continuer am njàngam dem ca Thiès ba yegg ci lycée Malick Sy foofee la amee baccalauréat am gannaaw bi ci 1972 ci la dem ci école normale ba 1976 euh, jaar na école normal ci diggante boobu ma tudd gannaaw bi itam affecté nañu ko waat Thiès mu nekk fa comme jàngalekatu primaire gannaaw bi la dellu jàngaat ba. dem école normal supérieure gannaaw bi ci la fa nekk ba am fa master 1984 gannaaw bi nag ci la bawoo ci réew mi dem bitim réew ca France Paris foofee fa la nekk di fa jàng ba am doctorat ci atum 1989 gannaaw bi itam nag bi mu dellusee ci réew mi affecté nañu ko ci ay lycée yu bari mën nañ cee lim rek lycée Lamine Gueye ak John Kennedy bi nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru gannaaw bi ci lañ ko yóbbu université Cheikh Anta foofu mu nekk fa comme assistant gannaaw bi ci la yokk ay jéegoom ci wàllu njàng ba ñu nommé ko fa professeur mu di fa jàngale histoire gannaaw bi ci atum 2014 ci lañu ko fa nommé comme recteur mu yor rectorat bu université Cheikh Anta Diop euh, ci atum 2020 ci la jël retraitam mooy koo xam ne daanaka liggéeyatut léegi ci gouvernement bi mën nañoo wax ne nag ay gëstoom nag da koo jëmale ci wàll fànn goo xam ne gu am solo la muy histoire Afrique kon lépp loo xam ne jëm na ci taarixu Afrique ak i jaar-jaaram ak yi xew-xew yi fi ma moom ci loolu lay gëstu kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaane loo muy sëriñ tubaa fan la fekkoon société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu loolu lu mu xam la lu mu mën a waxtaane la kon yaakaar naa ne incha allahu taala mën nañoo fàttaliwaat mbokk yi ne leen euh, waxtaan yi ñuy amal fii képp koo xam ne raw na la am na fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne euh, dañuy tegaat waxtaan yi ci diggante Touba ak li ko wër waaye mën nañ cee tàmbale wax ne rajo Daarul Muxti bii direct la koy def ak rajo Bawol Média ñoom ñaar yooyu direct la ñuy def waxtaan wi buñ ca jógee itam daarul moxti dana ko tegaat suba ci 14 heures 15 heures Zik FM dana ko teg 14 heures 15 heures moom tamit Walf dana ko teg 19 heures jant bi 0 heure i rajo dana ko jàll 18 heures 30 RTS Diourbel 13 heures 30 Benno FM 17 heures Sud FM 20 heures 30 Lamp FM 23 heures UCAB FM dana ko jàll 9 heures du matin Bawol media bi ma waxoon sànq moom tamit direct la koy def Carrefour FM dana ko jàllale vingt heures rajo Bambey dana ko jàllale vingt deux heures euh, Daara ji FM dana ko jàllale euh, moom tamit Daara ji FM moo mooy bi nekk Kébémer leer gi FM mu nga nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan wi RTS Touba moom tamit dana ko jàllale neuf heures Touba Fall FM moom tamit huit heures du matin fa la ko ci la koy jàllale kon rajo yooyu yëpp mën nañu wax ne waxtaan yi dañu koy jàllale. bu dee chain télévision yi nga xam ne ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi mën nañ cee lim Touba Vision Touba TV day jàllale waxtaan wi chaque jour Lamp Fall TV itam dana koy teg une heure une heure une YouTube yi nga xamante ne moom la ñuy lim itam chaîne YouTube yëpp dañu koy def direct kon mel na ni boo xoolee mbooloo mi sax ñu ci ëpp daanaka foofu lañ koy suivre tàmbalee ko ci Alwafa bu Daarul Moxti Touba Vision Baye Daaru Média nekk ci dëkk bi xam sa réew TV Bichri alxadimiya bawal média facebook bu Alwafa bi itam da koy def gannaaw bu loolu jàllee itam euh, ren ji ubbi nañu fukki euh, groupe ak ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne groupe yëpp fees na te waxtaan yi rek lañu fay jàllale kon mel na ni waxtaan yi yaatu na lool telegram bi itam ku tàppe Alwafa Daarul Muxti depuis 2006 ba atum ren ji waxtaan wii sëñ Ibrahima di def dana ca nekk kon incha allahu taala ñu fàttali itam mbokk yi ne leen suba ci talaata ji danañu dalal sëñ Fallou Samb sëñ fàllu sàmb yitam ñuy am moom waxtaan ci dem bi ak dikk bi ay loraangeem ak i njariñam su ko defee àllarba ji euh, ambassadeur Modou Fall moom tamit dana teew ci jotaay bi waxtaan ak mu ci ahamiyatu sifara fil xaarij maanaam yan njëriñ la ambassadeur yi amal sénégalais yi ci biir réew mi ak bitim réew su ko defee alxames nga xam ne ci la ñuy tëj jataay bi nag sëñ Mamoor Amdi moo yeneen i kilifa daañu fi teew su ko defee ñu waxtaane mustaqbalul muridiyya maa ëllëgu yoonu murid loolu kon moom mooy li nga xam ne moo aju ci asum ñu ñaan ñu ñaan yàlla teewe ko at yu baree baree baree bëri te yëpp ñu ànd ko wér euh, su ko defee incha allahu taala dañuy jëbbal kàddu gi sëñ Ibrahima cubb ñaan yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci li nga xam ne moom lay waxtaan itam incha allahu taala mën na koo bind moo xam ñuy suivre ci youtube bi la moo xam ñu nekk ci jataay bi bu ko bindee bu ko jébbalee ci ñu yor wàllu googu incha allahu taala dinañ ko jàllale su ko defee moom mu tom tontu ci tontu ci après jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ahousubillah mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar eh, sëriñ Muntaxa Mbàkke Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général de Mourid di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu di ziar xalifa Daaru Mufti di nuyu di ziar kilifa diine yépp yoo xam ne yii ñooy kilifa diine nekk ci tarixa bi di muridiya ñi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci rajo yi ak télévision yi yépp ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar baax a baax euh, di sant waa daayira bi nga xam ne bii ñoom ñoo sàkku ci man ma ñëw def waxtaan wi ci weeru koor wu tedd wi maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax bi nga xamante ni jokkoon nañu ak man it man sama gëstu euh, depuis 1990 ba léegi euh, muy romb léegi fanweeri at mu ngi jëm ci taarix mooy histoire surtout histoire Afrique euh, pàcc bi ma ci gën a féete mooy diggante dix-neuvième ak vingtième siècle mooy ñaar téeméeri at yi ñu weesu lan moo xew ci Afrique ak lan lañ ci mën a jàngate ndax histoire du càggee nag xool li weesu rekk du lu weesu moo ñu amal solo déedéet li ñëw ëllëg moo ñu amal solo maanaam li koy misaal mooy dafay mel ni rétroviseur oto booy xool sa rétroviseur li ci sa ginnaaw ngay gis waaye li ngay li tax mu amal la njariñ mooy mu tere laa am accident bi ñëw ci sa kanam histoire donc loolu lay jariñ xool jaar-jaar yi fi amoon lan lañ ci mën a jàngate ngir xam li ñuy dund mooy lan naka la ñuy tabaxee ëllëg ci askan wi ci noonu bi ñu ma laajee thème boo xam bii mën naa ci waxtaan dama leen nii mën nañ xool jamono ji nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa daje loon nu mu demee woon euh, yan jafe-jafe moo fi amoon yan pexe la ci nit ñi amoon ak moom yan pexe la ci jël lu mu ci indi ndax bala ngaa dégg dëgg li sëriñ biy wax nga xam yan jafe-jafe la jàkkaar looloon ba indi ci ay tontu euh, da ngeen di jàpp ni nag jafe-jafe yooyu yu tar la woon am na lu bari li ci nit ñi gën a xam mooy liñ ko yóbbu woon Gabon wala ñu yóbbu ko Mauritanie mu jaamaarloo ko ak tubaab bi mais am na yeneen yoon xam ne yii moo jur loolu te ñaari nit ñi dinañ koy umpule loolu laa ci bëgg a génne tuuti rek euh, ci waxtu yi nga xam ne yii moom lañ ma may euh, gëstu bi nag li ci ëpp ci tubaab lañ koy def waaye comme ni ma koy waxee wax ko ci wolof man moo ma gën a yomb wax ko ci tubaab eh, damay tàmbulee loo nga xam ne lii xëy na mag ñi xam nañ ko su ma ko tàmbulee sax xam na am na ay mag ñu fi nekk dinañ ko mën a yeggale su ma nee ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seyxu bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ma moo jébbulu woon dem tuubi ndeyam di jooy mun naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane sëriñ Mor sëriñ Aliou Diouf ñi lee ko daane keroog dalee na woo fa péncam làmbaay naan leen danaa leen tàggaleeg laxasaay keroog dalee na boole ci wurmbal ñuy kenn kennoo farba ja farba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal daam dàmm di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen baleen seex bàmba mbaama rendi murit yi yépp ma nga ma nga naan ba màndi murit yi naa ko bàmba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey noo yi sëriñ Momar Maane ko tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk dag ya ni tis pénc ma daldi jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daldi laxasu murit ya ñëw Touba xibaar ko Bàmba mu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jal ba ceddo ya dem kalaame kook borom ndar mu naa dangeen mokk mbaa mel ni aw dër ñi xam sëñ Moussa Ka xam nañ ni loolu ci jasaw Zakoor la jóge boo ko gëstoo ci li ma ci jota jukki noonu jukki boobu ma ci génne am na ñetti mbër di bind wolofal ñoo leen di defaral ay téere danga nga naan gis ku soxla téere lu mel ni ak dàq boo ko soxlaa dinga ci def lu mat ay fanweeri jaam ngir ndax xeex bi bari na il faut nga wut gàllaaj gu tax nga tuul te loolu dañ ci daan ñàkk lu bare bëri ci alal ndax xeexoo bi bari kon sëriñ soosu am na sëriñ soo xam ne si dañ daan ànd ak nguuru ceddo yooyu euh, ci biir ànd boobu teewul nag am na ay doomu soxna yoo xam ne yi dañoo jóg xeex ak nguuri nguuri ceddo yooyu bari nañ lool ci suñu réew mi ki ci jëkk nga xam ni booba buur yi buur buuri ceddo yi ñu ngi jël nit ñi dëkk bu ñu dem taal ko jël nit ñi yóbbu dem jaay tubaab bi tubaab bi yóbbu ñoom ñu jënde ko sàngara naan nekk ci li neex seen bakkan di toj réew mi mu doon alkande ju rëy ju dal ci kaw réew dajeeg léeg-léeg ay njéeréer da ngay bey ba góob rekk des ci ceddo yi ñëw taal sa tool wala njéeréer yi ñëw lekk ko wala mbas ñëw comme mbas mi am nii léegi da doon am ci jamono yooyu muy jamono ju tar ju metti te li leen ko tegoon nguur googu ñu amoon te muy nguur gu baaxul moo leen ko tegoon te réew yépp nag moo fi moo fi sësoon muy Kajoor Bawol Waalo Siin Saalum Fuuta fépp ñoom ñoo fa nekkoon léegi jullit yi am ci ñu jóg ni nag war nañoo seet nu nuy def ak nguur yi lu ñuy tàggaleek ñoom ki ci jëkk Nasr al-Din la tudd Mauritanie la jóge woon ànd ak ay jullit yu nekkoon fii ci réew mi ñu samp nguur xeex ak ceddo yi gañe leen samp nguur gu ñuy wax nguuru buuri jullit loolu 1673 la amoon bi mu amee mun leen yàlla sàkk lu leen ay kilifa ngir ñu di leen jaay ak di leen toroxal ak di leen noot yàlla daf leen jox kilifa pour mu aar leen teg leen ci yoonu yàlla looloo tax yàlla am ku mu teg seen kanam mais seen kilifa yi ngeen am nga xam ne ñoom dañ leen di jàpp taal seen kër yi taal seen euh, ngóob mi fotoñ leen jaay tubaab bi dañuy jóg xeex ak ñoom ngir tàggalikoo ak ñoom biñ ko defee réew mi ànd ak ñoom ñu daaneel buur yooyu mais tubaab yi nga xam ne loolu arrangé wu leen jox leen ay ngànnaay jàppale leen ñu daaneel nguuru jullit googu nga xam ni moo njëkk am fii ci Sénégal di nguuru jullit di 1673 biñ leen daaneelee ñu bëri ci ñi bokkoon ci xeex ba doon ay jullit dañ leen a jaay ñu yóbbu leen Amérique mais ñi ci des dañoo tasaaroo ci biir réew mi. taal ay taal jàngu di fa jàngale arrêté xeex bi te xam ni ceddo yi neexaguñoo song ñu ne nañ wutiwaat doole ba ci kanam ci noonu Abdul Xaadir Kan ca Fuuta moo jógaat xeex xeex bi ci jamono ci Amari Ngoone Ndee la mais moom itam dañ ko gañe ci xeex boobu ci dëkk bu ñuy wax Bungoy bàyyi ma lamin saar ku nekk dégg na ko moom itam Amari Ngoone Ndeele moomu moo ko daaneel ci xeex boo xam ñu ngi ko xeexoon ci dëkk bu ñuy wax cax réew ñu jàpp ca ñu bari jaay leen ay def leen ay jaam jaay leen ñenn ñi daw ñooy lébu yi sañc nguur gi nekkoon ndakaaru sëriñ ndakaaru ci loolu la jóge ci xeex boobu la jóge ñoom dañoo jóge kajoor dem Cap-Vert ci lañ ko samp jullit yi continuer di xeex ngir teggi nooteel googu ñàgga isa ca waalo 1827 1830 Malick Sy ca Bundu bokkul ak Seydi Aj bu Tiwaawoon am na beneen Malick Sy ci Bundu kooku 18e siècle la El Hadj Oumar 1860 Maba Jaxu 1861 1867 Maba Jaxu boobu lu am solo la ndax maa ba Jaxu ci rip fu ñuy wax baadibu wala fi di ko wax rip soose si di ko wax baadibu fa la nekkoon am buur bu fa nekkoon ñu di ko wax jeere ba maroon mu am doom ju tudd jàkkere basin ñoom ñaar ñoo tegoon nooteel gu tar ci kaw jullit yi ci kaw mbooloo mi askan wi kooku dafa xëy benn bis dem ci kër benn nit fekk fa doomu jànqam mu jël ko yóbbu gëf ko yóbbu ko ci péy ba yemul ci loolu mu bind lettre jullit yi ni leen dajal leen alal yi ngeen am yépp jëndal ma ci ay gàtt yónnee ma ko ndax damay takk seen doom ji te se gàtt yi ngeen may yónnee ci laa war a organiser fête bi may feetoo sëy bi ñu nar a sëy xam nga loolu jéggi na dayo lool Maba Jaxu ne nag loolu moom mënuñu koo seetaan ci la taal jiyaar moom itam bi mu taalee jiyaar daan buur boobu lu mat ñaari weer rekk mu jóge Gàmbi tey ci foo xam ne ci Gàmbi la nekk tey di Saalum ñaari weer rekk mu nga Jolof buur yi fi nekkoon yépp mu faagaagal leen samp nguuru jullit ci noonu mu jël kilifa diine yu bari yu nekkoon ci réew mi tasaaroo mu jël leen yóbbu ñooro bokk na ci ñooñu Mamor Anta Sali mu ànd fa ak Soxna Jaara Buso ñu nekk Poroxaan mu ubbi fa daara di fa jàngale doomi Maba Jaxu ci daara yooyu lañ doon jàngee ku mel ni Sayer Mati am na nag wuute ci loolu ñenn ñi nee nañ dafa forcer sëriñ yi ñu ñëw ci moom ñenn ñi ni dafa waxtaan ak ñoom ba yóbbu leen fa waaye lu ci mënti xew daal Maba moom xeex na xeex bu gaaw faagaagal nguur yi fi ne ko ndax nguur yooyu amuñu woon kenn ku leen jàppale ndax nit ñi dañu leen a dumóoyu woon ndax niñ doon doxale mais Maba bi mu demee xeex ak séréer yi siin la daanu ci somb 1867 ku mel ni Lat Joor ca xeex booba la bokkoon Demba doonoon jaamub kajoor jaamu buur moo ko fa jële delloo ko kajoor Maam Mor àndaat ak moom dellu kajoor Cheikh Amadou Bamba des poroxaan ba ni waajuram wu jigéen génne àddina la fekki waajuram wu góor ci kajoor nekk fa moom ci jamono ji muy nekk kajoor am na xeex bu dox diggante Amadou Cheikhou ma jóge woon Fuuta song kajoor ak Jolof ci turu lislaam di xeex ak nguuri ceddo yooyu ci jamono jooju Lat mooy dammeelu kajoor am na jamono sax Lat ànd na moom waaye dañoo mujj féewaloo bi mu dalee ci kajoor dal ci jolof Alburi ak Lat ànd di xeex ak ñoom tubaab bi jàppale leen ñu xeex Samba saajo bi ñu xeexee Samba Sadio fa la Amadou Cheikhou daanu bi mu daanoo taalibe yi mu àndaloon ñuy xeex ñu jël leen ñoom ñëpp indi Kajoor def leen ay jaam mu jur werantewu rëy diggante ñi nga xam ni ñooy ulamaay kayoor yi àndoon ak Damel ak Cheikh Amadou Bamba te booba toll na ci ak ndaw waaye nag fekk jàng na njàng mu wóor mu dëgër ba am lu mu làq ci xam-xam mu warante ko ku mel ni xaalima jaxate kala ci loolu bind na benn lettre bu mu jox dammeel bi ko xaalima jaxate jotee dafa jàng lettre bi dammeel ni ko wax ma lu ne ci lettre bi mu ne ko lettre bi jubluwul ci yow ci man mii la jublu mu ne ko sarax ma ngir yàlla wax ma li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci leetaram bi ndax booba ñu ngi lijjanti nu ñu def ba sëriñ bi ñëw nekk ci nguuru dammeel mun leen man jombale naa samay tànk mu jóg di dem ci benn buur bu dul yàlla ñoom ñu ngi fexee nuñ ko dugalee naan ko boo ñëwee dinañ la jox alal dinañ la jox martaba dinañ la jox dinañ la màggal loo soxla di nga ko am bu dee suuf ak lépp di nga ko am waaye fekk na booba moom du móoyu na loolu ba mu werante ceeg ma jaxate kalam mu ngi ko naan sëriñ bi gën buur bi gën ci buur yi mooy buur buy seeti sëriñ dafa taatan nu mu yore nguuram waaye boroom xam-xam buy dem ci kippaaru buur mook weñ wu dem ci ay jonkon ñoo yem loolu la bindoon ci leetar bi moo tax ma jaxate kala ñemewu ko woon a wax dammeel mais bi mu ko waxee dammeel dammeel ni ko yow kay amoo ciy mer ndax yow yaay weñ wi waaye man xam nga li ma doon waaye nag day day ndaw rek bu màggee dina dina dina soppeeku nañ ko jàpp ni ab ak ëkk la gu nekk ci suñu biir tool bu ñu béyee ba yegsi ci nañ ko wër rekk mooy te ko continuer bay kon boobu nguur yooyu fi nekkoon am na ay jullit yu àndoon ak ñoom am na luñ doon def lonkan dëppoowul ak yoon ñu teg nit ñi alkande teg leen ay jafe-jafe ay yu tara tara tar mais ci jamonoy sëriñ bi fekk na booba tubaab bi dal na ci seen kaw nasaxal na leen ñoom ñuy xeexoo ci seen biir ba néew doole nga xam ne bi leen tubaab bi faagaagal daanaka dara desatu fa woon teeñ tanoor ma ma leen waxoon ca ba may tàmbali bi cee Yaasin Galo Gànna daanoo ci Bawol moom moo ko remplacé mu jóg nag ni moom day fay islaam kon boog ngeen gis ni nguuru ceddo yi am na ay doomi soxna yu ànd ak ñoom mais am na ay doomi soxna yoo xam ne ñu nga ànd ak tubaab bi ca ndar ku mel ni bu el Mogdad xam ni ñu jàng lañu woon ñu am xam-xam waaye ñu ngi dëkkoon ndar nekk ak tubaab bi di ko bindal lettre ak di tekki lettre arabe yi ñu leen doon bind ñoom ñoo ko doon teggi tekki am luñ cay amee Euh, ci noonu tubaab bi ni leen ñun dafa am lu ñu jaaxal El Hadj Umar mii di woote jiyaar wala maaba Jaxu mii woote jiyaar lan moo tax ndaw ñi yépp di fàq jëm ci ñoom xam nga laaj boobu tey boo ko boo seetloo jamono ji ñu toll nii nguur yu bari ñu ngi laaj laaj boobu di si nekk Mali Sahel ak feneen ci àddina bi ñu bari dañuy wax naan lu tax ndaw ñu topp leen ci jamono yooya ulema yooyu nekkoon ndar ak tubaab bi nga xam ne tubaab bee leen yoroon di leen fayeg di leen jox ñuy liggéeyal tubaab bi ñu ni ko ñett moo tax ndaw ñu topp leen El day tabax ay jàkka dem na Màkka te day àtte ci sharia ñett yooyu lañ jàpp ni moo tax ndaw ñu topp leen te yéen tubaab yii moom ndar mayu leen ñu loolu ñun leen loolu kay du problème mën nañ leen koo may bu nekkee loolu rek la moom amul problème ñu tabaxal leen jumaa ci ndar jumaa jooju armee française moo ko tabax moo tax boo demee ci jumaa ja dafa am cloche boo nga xam ne ba léegi cloche baa nga fa ndar boo demee ci jumaa yi ndar jiñ fa tabaxoon ba léegi cloche baa nga fa mooy architecture bi gën a siiw ci Sénégal dëkk yu bëri ndax ñoom bi ñu leen ne tabax leen jumaa ay armée française xamuñu luy jumaa ñu xool seen livre yi gis ñun leen fu ñuy jaamoo yàlla la ñu xool gis église ñu tabaxal leen église def ci cloche architecture boobu fu bëri Sénégal booy dox ci jumaa yi ñu tabax ci dëkk yi jumaa ji noonu la noonu la mel architecture boobu la jël am na dëkk bu ñuy wax bismillah mu ngi ci boori yoonu Fatick diggante Mbour ak Fatick boo demee seen jumaa ja mu ngi nekk ni ci sa ndeyjoor architecture boobu lañ jël boo demee avenue Lamine Gueye ci dakaar jàkka yi fa nekk wala jàkka ja nekk avenue Blanchot dakaar architecture boobu la jël ñu tabaxal leen jumaa ñu di ñu jóge ca teg tribunal musulman musulman ci ndar ndar amoon na tribunal musulman ñu jël ay xaabi ñu nekk fa di àtte ci charia ngir tontu El Hadji Oumar ñun da ngeen a bëgg a dem màkka léegi nañu organiser kuréel goo xam ne mooy lijjanti li leen di yóbbu màkka commissariat au pèlerinage à la Mecque bi am nii léegi foofu loolu mooy cosaanam fa la jóge kon matal na ñett yi ñu leen waxoon ni moo tax ndaw ñi di topp tabaxal nañ leen jàkk tabaxal nañ leen jumaa di leen àtte ci sariya ba pare di leen yóbbu màkk ñooña topp tubaab bi loolu it am na ci wàllu doxalin wañ doon doxal tubaab bi ni mu doon dale ci kow nit ñi ni ceddo yi doon def noonu la tubaab bi doon def dem ci dëkku jàmbur taal ko am na benn jamono 1864 mooy jamono ji gën a tar ci Sénégal nit ñi dañoo mujj ñenn ñi dañuy jaay seen bopp ngir mën a am lu ñu dunde jaay sa bopp ngir am loo dunde mu am fi feebaru choléra feebaru pest bu metti nit ñëpp fàq ñii dem Mbuur ñii dem Jiwaalo ñii dem Ndar ñii dem Gore mu jamono ju metti ci noonu ñu gis ni jamono ji nim mu mel mënuñoo continuer bàyyi noonu bu ñu ko bàyyee noonu rek réew yi muy kajoor bawol dañuy mujj faagaagal te déjà luy ëpp tubaab bi teg na ci loxoom mais tubaab bi bi mu ci tegee loxoom moom tubaab bi xamul réew mi te mënta jële ay tubaab ca France indi leen fii ndax suñ leen fi indee seen yaram dëppoowul ak tàngaayu réew mi ak feebar yi fi nekk seen yaram xamu ko dañuy dañ daan dee lu bari léegi ñu ni kon buur yi fi nekkoon te ñun faagaagal nañ leen seeni ay doom ñu ngi fi donn nañ ci seen bàyyi nu ñuy yore réew ñun suñ leen tàggatee tuuti rek dinañ leen mën a dénk senegaal ñu jël ay ku mel ni mbaaxaan doomi Lat Joor walla Salmon Fall wala yeneen buur yi fi nekkoon yépp ñu jël seen ay doom ubbi benn école bu ñuy wax école des otages ci ndar dugal leen fa jàngal leen tubaab jàngal leen nu ñuy yore réew ñenn ñi sax ñu jël leen yóbbu leen Tunisie pour jàngal leen nu ñuy yore naka la tubaab bi ni moomee réew moo nga xam ne mii am réewum jullit la naka la def ba jullit yi nangu moomeelu tubaab boobu loolu lañ leen jàngale woon bi ñu leen yóbboo Tunisie bi ñu dellusee ñoom lañ fal ñu nekk ay chef de canton fii ci Bawol mbaaxaan fii lañ ko faloon Salmon ndax dañoo pàcc Bawol ñaari pàcc Bawol oriental Bawol gi féete penku ak gi féete sowu gi féete penku ñu dénk ko mbaaxaan gi féete sowu ñu dénk ko Salmon Fall ñu nekk fi kon ci loolu ngeen gis ni tubaab bi itam mu ngi xool nu mu noote islaam nu mu jariñoo islaam ngir noot Sénégal ceddo it ñooñu ñu jël fal leen nga xam ne ñoom seeni maam ñoo fi nekkoon ay buur léegi tubaab bi jël leen tàggat leen def leen seeni ay liggéeykat teg leen ci boppu kuréel yu ndaw yi nekk ci réew mi ñu nekk ay chef de kanton ñooñu bi ñu ñëwee li leen tubaab bi santoon mooy bu kenn yëngu bu mu am benn fitna ci réew mi na ñépp di fay lempo bopp bu nee nay fay lempo bi ñëwee installé wu ñu seetlu ni nit ñi li ëpp àddiya lañ gën a sawar a jox ni lempo àddiya lañ gën a sawar a joxe ni fay lempo mu indi ak fiiraangi ñu ne tant sëriñ saa ngi fi surtout fii ci Bawol sëriñ Tuubaa ngi fi tant que sëriñ Tuubaa ngi fi sunu nguur gi du mën a taxaw fii ndax taalibe yi duñ nangoo fay lempo lu ñu am dañ koy yóbbu jox ko euh, muy euh, naka la tuddati euh, addiya te boo leen woowee nga convoqué leen ci pays bi bala ñoo ñëw dañuy dem tàggu ci sëriñ bi ba am ndigal kon ñu am ak fiiraange ci sëriñ bi ñooñee ñoo sos gëmloo tubaab bi ni sëriñ bii kat day waaj jiyaar waaw doo doomu nit ñu ñuul ñoo ñooñu nga xam ne ñoom la tubaab bi jëloon dénk leen réew mi nga xam ne ñoom ñooy donoy ceddo yi fi nekkoon continuer di noot nit ñi sonal leen di leen teg alkande ñu ñoo ni tant que sëriñ baa ngi fi li ñu namm ci réew mi duñ ko am ñuy sosal sëriñ bi di ko sosal ni mu ngi wal ay cere mu ngi jënd ay fas jënd ay ngànnaay gàmmi boo seetloo sax fi mu nekk tu Tuubaa Daaru Salaam boo seetloo boo nattee di digganteem ak Fuuta nga natt ko natt diggante Tuubaa ak Gàmbi ñoo tolloo Fuuta jiyaarkat yi fi musa nekk yépp fa lañ jóge te arm ngànnaay yépp Gàmbi lay jóge yow nga nekk ci diggante bi ni nga soree Fuuta noonu nga soree Gàmbi kon boo demee wuti ku la jàngal nu ñuy xeexe jiyaar di nga wuti ay arme Gàmbi boo ñëwee da ngay taal jiyaar bi sëñ bi sancee Daaru Salaam ñu tuumaal ko ci loolu ñi tabax tuuma ji chef de canton yi la ay nit ñu ñuul lañu dem gëmloo tubaab bi jamono yooyu sax gouverneur bi fi nekkoon moom ci bi ñuy tàmbali gëmul woon loolu mais dañoo bàyyi ba mu dem congé ñu tabax ñu taxawal tribunal bi ñu àttee sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo mois de septembre la septembre day daje jamonoy bër gouverneur nekku fi woon ndax gouverneur bi fi nekkoon ñu da ko wax lamot moom jublu gëmul woon loolu ñu ko doon wax ndax da daan yónnee ñuy yëddu sëñ bi te buñ ko yëddoo gis ni li ñuy wax ci moom dëppoowul ak li ko yëddukat yi di wax mais dañoo bàyyi ba mu dem ki organiser loolu nag ñaar lañu ku ñuy wax Leclerc ak ku ñuy wax Merlin lu tax ñaar ñooñu organiser ko ñaar ñooñu kenn ki moo nekkoon administrateur u Ndar kenn ki jiite bureau politique bi yoroon gouvernement bi ñoom ñoo fi gënoon a yàgg ñoo gënoon a xam réew mi gouverneur yi dañ daan ñëw def fi ñaari at dellu ngir bañ fee dee ñoom nag dañ fee yàgg ñoo tàggat doomi ceddo yi ñoom ñoo leen tàggat ba dénk leen réew mi seen ñooñu ñu tàggat dénk leen réew mi bëgguñu woon sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba su fi saxalee daara taalibe yi dañuy jublu ci moom nit ñu jublu ci moom kon du ñu déggal kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom ñoom lañ yebaloon fii ci biir réew mi Merlin moomee rapport bi nga xam ne bii moom lañ moom lañ jàng ci bureau ndar ba nga xam ni ci lañ jaare ni sëñ bi dañ koy yóbbu Gabon moom moo bind rapport boobu ndey rapport ba Leclerc moom moo ko bind Merlin sukkandiku ci li mu wax bind beneen rapport tuumaal sëriñ bi Leclerc moom moom la dajaloon ci jeewal kon bu ngeen seetloo problème yi am ci jamono boobu léegi leer na ñetti mbër ñu ngi daje ci géew bi di bëre nguuru ceddo yi néew seen doole wàññeeku na tubaab bi dooleem yokku na sëriñ bi yoon wi muy commencé samp mu ngi jóg ndànk-ndànk ci jamono jooju doomi soxna yi fi nekkoon yépp ñetti yoon lañ gisoon yoo nga xam ne yii yaakaar nañ ni ci lañ mën a jaar ngir réew mi bañ a naax saay ngir diine bañ a tas ci réew mi ngir daara yi bañ a alkande ñetti yoon lañ ci gisoon bi ci jëkk mooy dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ comme ni ma jaxataka la def mu yiir la dina la bàyyi ngay jàngale dina la bàyyi ngay bind sa ay xas xas lu mel ni xasaayit dina la may daal féex boo soxlaa tool dina la ko jox nga ànd ak dammeel dégg li ci sëñ bi wax mook doon weñ ñoo yem ñaareelu yoon bi mooy nga dem àndi ak tubaab bi comme ñoom bu el mogdaat nekk ci waawam xëy na dinga doxal sa diine waaye nag yaa ngi koy doxale ci daar al arb waaw foo nga xam ni fii doxal fa diine lu jafe lay doon ñetteelu yoon bi mooy nga taal jiyaar kon ñetti yoon yooyu rek lañ xamoon taal jiyaar wala nga ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi jël nag sa xel ak sa xam-xam ak sàkku am imaan sàkku dem ba ixsaan doon suufiyanke bu wóor taxul nga gis yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar nit ñi daal jàppoon nañ ne dangay ngay ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi wala nga taal jiyaar mais sëñ bi moom gis na ci li mu dund ci li mu dund ni ànd ak dameel sottaluwul mbir mi fekki tubaab bi moom xel xalaatu ko taal jiyaare ci des waaye moom dafa dund jiyaaru Maba Jaxu gis la mu jur gis la mu jur Maba daanu na ci somb bi mu daanoo waa këram dañ tasaaroo maamu ndare ak sayer mati juboowuñu ñuy xe ñu jote ba mujj tubaab bi ërtal leen ñu dem Gàmbi sëriñ bi ci loolu ci la ci la nekke tout tànk tànk ci la yaroo daf ko fekkee gis ni fitna ji jëmalewul réew mi kër léegi boo dumoo yow fitna xanaa nga dem àndeek tubaab bi comme ni mu leen ko waxee loolu du yoon nga dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ du yoon lu ci des nga gëstu bu baax xam jamono ji nga tombeel xam ne lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii nguuru ceddo yaa ngi fi teg alkande nit ñi di leen jàpp di jaay kon nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm kon waru leen a bett sëriñ bi sanc ab dëkk tudde ko Daaru Salaam kon moom liir na bu baax li societé bi soxla ndax société bu dund ñetti téeméeri at nekk ci sawara nekk ci alkande nekk ci fitna ñuy taal dëkk yi di jàpp taal ngóob mi di teg alkande nit ñi muy góor di jigéen ñépp nekk ci fitna li ñu gën a bëgg mooy jàmm sëñ bi gis loolu moo tax dëkk bi mu njëkk a sanc mu tudde ko daaru salaam mën de noon laa ko jàngate bi mu sancee daaru salaam teg ci ay at yu néew ña luy tolloog ñaari at mu sanc tuubaa waaye nag yemul foofu dafa am yoon wu bees pull wu mu tëgg teg ko muy yoonu murit mu wékku nag ci tabax nit ku bees ko nga xam ne musula am senegal bu yàggul ci at yi ñu génn am na benn mouvement bu fi nekkoon tuddoon yaana maar ñu naan euh, dañuy tabax nouveau type de sénégalais man leen du fi gande da ngeen a xamul seen cosaanu réew rek waaye su ngeen ko xamoon di ngeen xam ni lii du fi gan am na jamono ñu waroon a tëgg sénégalais bu bees sëñ Touba moo tëral ni ñuy tëggee sénégalais boobu moo ko tëral mu ko tàmbulee jànge ca daaray mbàkke kajoor ja baayam sañcoon mu jànge ko mu jànge fa nu ñuy jàngale ak nu ñuy tarbiyaa nit ba mu doon nit ku bees koo xam ne kii du wu du dara du ko jotale ak ki ànd ak yi dara du ko jotale ak ki ànd ak tubaab yi du niroog ñoom mu samp daara ju bees mais daara jooju boo ko sampee il faut nga génn nit ñi moo tax sëñ bi jóge Mbàkke nga xam ne commencé naa bari ay nit mu ñëw sañc Daaru Salaam sanc Tuubaa mais nguuru tubaab dafa fiir loolu rekk la bañ ku beru di jàngale njàngale moo xam ne mii musu fi woon a am ci loolu tubaab yi ni Merlin ci rapport bi mu bind def ni ñun kat sàgganoon nañ fi ba El Hadj jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Maba Jaxu jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Malick Sy jóg fi indil ñu ay jafe te Cheikh Amadou Bamba mii de lii muy sumb nii ci fi ñii jaaroon fi lay jaar ndax moom sax daan na wirdu wirdu xaadir te xaadir yi ñu am jàmm lañ léegi bàyyi na ko mu ngi wir wir wirdu tiijaan te tijaan yi ñoom giyaar bu fi mu musa am ñoom ñoo ko taal loolu tuuma la juñ tegoon sëriñ bi rekk ngir fay daara ji ngir fay projet bi mu am tabax nit ku bees tëgg nit koo nga xam ne kii dina mucc ci yoonu ceddoo dina mucc ci yoon wi tubaab bi tëral bi mu defee loolu wéet ñëw fii tubaab bi ni kii dafa am lu muy waaj ñi nga xam ni ñoo doon nit ku ñuul doon ay chef de kanton Merlin ak Leclerc wax leen nañu ko sosal ñu sosal ko ni day waaj jiyaar ndax mu ngi jënd ay ngànnaay mu ngi wallu ay ay ay dugub di ko denc kon day waajal jiyaar te mu ngi nekk ci Bawol oriental muy Daaru Salaam gi mu sanc boo jógee ndakaaru walla nga jóge ci géej gi boo ko ërtalee day génn mën naa daw dem jublu penku loolu moo tax mu nekk Touba loolu lañ jàppoon ni moo ko tax a ñëw fii Touba kon ngeen gis ni sëñ bi dafa ubbi yoon woo nga xam ne bii wu yéeme la li ko yéemeel mooy jamono ji mu tollool pexe yi nit ñi amoon yépp ñetti pexe rekk la woon nga gis nag weneen yoon woowu wu lay tàggale ak tubaab bi te doo joteeg moom jote bu metti nga mu tàggale la ak ceddo yi nga am ak nit ku bees koo tëgg loolu yombul woon te ñi ko gis kenn kooku moo ko gis teg daaray tarbiya tàggat ci ay nit ñooñu mu tàggatoon biñ ko fexeelee ba yóbbu ko Gabon wone nañ seenu mat ndax ñoo tëye yoon wi ba sëriñ bi dellu siwaat yaakaar naa ni du fii laa leen di waxee li ci maam Thierno def yéena ma ci ëpp xam-xam <laughs> yéena ma yéena ma war a leeralal ci loolu ndax xam ngeen lim ci def lu am solo lim ci def wala sëñ Abdourahmane Lo nga xam moom la dénkoon njàngale mi dénk njaboot gi maam Thierno ñooñee niñ leen tàggate woon moo tax li mu doon jafe-jafe lim leen dénkoon mucc na ay mu def juróom-ñaari at yoo xam ne lii mat na ci lu mat juróom-benni at kenn xamul fu mu nekk bañ jàpp ni sëriñ bi génn na àddina ñu am na sax ñu leen ko gëmloo woon ñu leen sëriñ bi génn na àddina waaye yëngalul seenu ngëm yëngalul yëngalul seenu pasteef la leen sëñ bi dénkoon ñu continuer yor ko ndax tàggat gañ leen tàggatoon def leen ñuy nit ñu wuute ci doxalin ak ceddo yi wuute doxalin ak ñi àndoon ak tubaab bi ñoom ñu indi doxalin wu bees doxalin wu bees woowu ñu leen tàggat loolu moo tax ba ñu mën a dékku jaamaarloo yi ci amoon muy sëriñ Mamor Maane wala sëñ Alioune Diouf Lambaye ba leen teeñ tanoor songee ni leen dinaa tekki seen laxasaay yi tàggale leen nag ci Amadou Bamba sëriñ Mamor Mamor Maane ni ko da kàcc dañuy dem Touba kon loolu lañ tàmbalee woon ma bëggoon leen a woon li nga xam ne mooy ceddoo gi fi nekkoon won leen li nga xam ne lii mooy li tubaab bi namoon ci ñun wala ñi nga xam ne dañoo taal jiyaar fitna bi mu doon àndal nga xam ni réew mi attanuñu ko woon ndax réew mu dund ñetti téeméeri at ci alkande boo leen bëggee teg jiyaar duñ ko àttan te moo ne bu nekkenteen danga jàng alxuraan rek topp ci taal jiyaar ku la noot teg la loo xam ne tegula ko te nga nekku ci diine taal jiyaar jaadu na kon boo tànnoon lu yomb danga naan rekk fi mag ñi jaaroon laay jaar damay taal jiyaar waaye soo gëstoo jamono ji nga tombeel xam jamono ji li mu laaj nga xalaat ko moo tax sëñ bi du diine rekk du diine rekk dafa indi ci wàllu koom-koom indi ci wàllu politik indi ci wàllu social lu nekk mu am yoon wu mu tëral ñu war cee jaar yoon woowu pour nga jaar ci il faut ñu yar la yarub tarbiyaw sunu jamono ji ñu tollool itam nag loolu dafay xaw a tumuranke lool ay gune ngi sànku ni dañuy def jiyaar li ëpp ci ñi ñuy rey ay jullit lañ kon xam nga ni jiyaar booba moom ak sànkute rek lay mën a jur ñenn ñaa ngi ànd ak nguur yi lu buur bëgg nga ne dagan na kon ñetteelu yoon bi lañu xa lañu mel ni dañ koo fàtte man dama ne woon bu fekkonte ni diplomatie sénégalaise xam nañ bu baax seen histoire réew mën nañoo nekk les meilleurs conseillers des Nations Unies wax leen ni problème bi ñu jàkkaarloo nii muy jiyaar bi ñuy xeex nii musoon na fee am lu ma téeméeri at a ngi nii ci ginnaaw lañ ci génnewoon yaru tarbiye moo ñu ci génnewoon woon jiyaar génnewuñ ci woon topp tubaab bi génnewuñ ci woon topp nguur gi génnewuñ ci woon toppatoo njàng mi ak njàngale mi ñu teg ko ci yoon yar xale yi ci yaru tarbiya moo ñu ci mën a génnewaat ci jamono jiñ ñu toll nii war nañ xoolaat bu baax suñu école yi ak daara yi ni muy doxe ñu xool daaray mbàkke kajoor ja lan lañ ca mën a jàngate pour jubbanti suñu daara yi am nii muy daaray alxuraan di daaray tubaab nag surtout daaray tubaab yi yaakaar naa ne daaray tarbiya moom amul grève <laughs> waaw ñun nag suñu daara yi moom nga xam ni ñu ngi ko tëggee ci tubaab bi lim ñu fi bàyyil waaw ñoom de ñaare léeg-léeg ndongo yi sax ñooy ëpp martaba ñay jàngale <laughs> waaw am na sax ñuy pes ñuy pes seen seen jëwriñ waaw fitnaal ko kon bokk war na nañu xalaataat man njàngale lañu war a jàngale ci senegaal mu dëppoo ak suñu cosaan dëppoo ak suñu taarix dëppoo ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon doonte que dinañ ko dëppale ak jamono waaye reen bi moom waruñu ko waruñu ko buut sànni te fleur rafet na lool fleuru garab rafet tóor tóoru garab rafet na lool mu nga ca kaw yamb yi di ko biiw ndax ab rafetaayam waaye bu sàgganee reeni garab ga ba reen ya dee garab gi dee reen yi moom du ñu daanu ndax ci suuf lañ nekk fleur tóor tóor ma nekk ca kaw bu daanu dee am mooy gën a metti ab jël bu loru dee am mooy gën a metti ab jël kon loo ràññeeku ràññeeku rafet yamb yi di la biiw ngay xeeñ euh, kële misk walla jasmin bu mu la taxa beew mukk ba nga fàtte sa cosaan fàtte say reen ndax soo fàtte sa cosaan fàtte say reen bu reen yi dee garab gi de yow ma nekk ca njobbaxtalu garab ga sëb jël mooy gën a metti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu loo maa ngi leen di sant yéen ñëpp ci seenu teew euh, jërëjëf sëñ Ibrahima Thioub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne àndil nga ñu ko te mooy fàttali cosaanu Sénégal ci diggante buur yi fi njëkkoon a nekk naka lañ doon dundee ba sëriñ bi ñëw fekk leen fi jëlaat beneen méthode bu bees boo xam ne ci la jële askan wi bu ñuy wax ne sëriñ bi dagg na buumu njaam yi yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane aslëf la ci dara la ci mooy sëñ Tuubaa dafa ñëw àndaale pas-pas bu bees waaye boole ko xel mu yaatu mu rëy moo xam ne mooy tax ba la mu waxoon ne sama liggéey bi dinaa ko liggéey ba mu ba mu jeex te xat du damm deret du tuuru yaakaar naa ne mooy lii nga doon waxtaane te mooy fexe ba génnee nit ñi ci ñàkk xam génne leen ci leen ci alkande génne leen ci toroxtaange yóbbu leen ci ak njullit gu wér defar leen ba ñu mën a yor seeni bopp kon yaakaar naa ne li nga doon waxtaane lu am solo la lu mat a bàyyi xel la su ko defee nag loolu yaakaar naa ne war nañ cee mën a jàng ci sunu dund gu yees gi mooy fexe ba sëriñ bi fi mu bàyyee woon xeex bi te mooy fexe ba def jullit ñi ay jullit piir jullit xaqan mooy naka la ñuy fexe ba foofu duñu fa jóg xam ne lépp euh, tartar du ko maye li ñuy wax wa du ko maye euh, xeex ak doole du ko maye waaye xel moo koy maye ak gëm yàlla gu wér su ko defee itam loolu lu mot a bàyyi xel la rawatina ci jamono ji ñu toll euh, njàngale mi sëñ bi jàngale itam yaakaar naa ne feeñ na bu baax a baax ci waxtaan wi loolu itam ñu ngi la ciy sant bu baax a baax xam naa du ñàkk am na ay laaj yoo xam ne euh, ñëw na ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane te mbokk yi doon teewlu laaj ko andi ko ci li nga doon waxtaane mu ne <clears throat> bokk na ci yooyu kii dafa ne euh, kuli téng la moo doon kan euh, professeur kon xam naa laaj yi aju ci lii mu doon waxtaane mën naa génne waaw dafay laaj mu ne Koli Tengela moom mooy kan waaw Koli Tengela <coughs> buur la boo nga xam ne bii yoon wi ñuy wax deñanko deñanke deñankoobe ñoom ci fuuta lañ nekkoon waaye cosaanoo fuuta ñoom ci bëj saalumu réew mi lañ jóge woon euh, quinzième siècle màng dox jëm si fuuta ndax Fuuta boo ko seetloo askanu senegaal yi ngay gis yépp li ci ëpp foofu lañ jóge ndax fii sunu réew yi féete maral da leen a yomb nga toogum at taw bi du taw lu doy ngir nga mën a bey daf leen a yomb ci loolu moo tax Fuuta nga xam ne dafa am dex dex gi day baawaan tooyal fépp nga mën faa bey man ngaa bey ñaari yoon ci at mi soo nekkee Fuuta moo tax da daan mel ni comme acier di xëcc nit ñi ñuy ñëw ci booru dex gi dëkk si fa mais su jamono naataa naatee taw bi dellu siwaat di dox nam daan doxe ñu bari dañ fa daan mànge delluwaat ci biir réew mi ndax da doon xat fuuta noonu la nit ñi dañ doon dem ak di ñëw muy wolof yi di séeréer yi di alpulaar yi tukulóor yi ñoom ñépp foofu lañ jóge laata moo tudd fuuta sax takk ruur la tuddoon am na ñu ko tekkee dëkku kuur mooy ñoo xam ni ñi seen cosaan du woon diiney islaam waaye nag teewul almoravide yi biñ fay yegsi ñoom booba li ëpp ci ñoom ay jullit lañ te ki nga xam ni kii moo sos nguur ci réewi wolof yi muy njaajaan njaay baayam foofu la jóge woon mu sëy ak ko nga xam ni kii yaayam di tukkulóor di doomu Abraham Sall lamtoor donk noonu dex gi doon xëccee nit ñi lool dafa amoon ñu jóge ci bëj gànnaaru réew mi ci bëj saalumu réew mi dox wut si fuuta bi ñu yegsee ñoom ñu xarañ lañu woon ci xeex ak ngànnaay ñañ fi fekk ñu deen wax nguuru tonjon yi ñoom deñanke yooyu muy waa Koli Tengelaa jiite leen moom moo nangu nguur ga falu ci fuuta quinzième siècle ñoom ñoo fa nekk ba torodo yi ñoo leen fa jële torodo yi ay jullit lañu woon yoo xam ne yii Souleymane Baal ak Abdul Xaadir Kan ñoo leen jiite woon ñoom ñoo naas saayal nguuru deñànk yooyu nga xam ni Koli Tengela moo ko sampoon kooku mooy Koli Tengela. jërëjëf kii itam nee na daaw Demba ndax ab jullit la woon daaw Demba. ndax ab jullit ndax ab jullit la woon. moom ceddo la woon ak njuliteem moom euh, su ko waxee sax ci làmmiñ war nañoo mën a jàpp ni nekku ko woon ndax wax naa leen ni mu doon doxale Euh, xam nga ku dajale nit euh, réew waxambaane yëpp rey leen seen baay kooku boo ko tuddee jullit tam de dina am lu des xanaa ni dëkk bi ku mu neex fudd waaye boo fuddoo doo wàcc say loxo te man rek maa fi lekk xorom te ku yëngu nga nga fàdd euh, teg nu def nu dul noonu kooku de bu dee jullit ak njullitam moom xarees na koo seetaan loolu daal laa ci mën a tontu muy daaw dem. kii moom. moom sax ko ci barmaa ko fi jële waaw muy laajte yan njàngat lañ mën a def ci wàllu politique ak wàllu social ci li nga xam ne lii mooy xalaatu sëriñ bi. waaw loolu bari na am na lu ma ci junji mooy ni euh, réew mi nga xam ni moom nga nekk bala ngaa jëggaani feneen leneen di leen ko teg nga xool lan mooy seen cosaan boole xalaat lan mooy seen problème ci jamono yi ñuy dund lan mooy seen problème problème boobu fan la jóge lu ko jur nga xalaat lu ko mën a faj ndax boo dee xalaat ay yoon yu bëre yu ubbeeku yoon wu nekk danga ca war a def sa kem kàttan pour xam ndax jeexital ba mu am ci askan wi dina baax walla du baax soo jàngee charia rekk man ngaa yeewu rekk ni bu nekkee ci ay jafe-jafe nañ taal jiyaar la mu jural maaba ku nekk gis na ko lam jural Amadou Cheikhou ku nekk gis na ko mais boo nekkee ci réew moo nga xam ne mii ñi ëpp ci réew ma ay baadoolo lañ ñu toog ñetti téeméeri at nekk ci alkande nekk ci fitna boo ñëwee bëgg leen a continuer ci fitna jooja ndax nga ni wax nañ ci alxuraan walla wax nañ ci àddis ni bu nàngam amee da ngaa war a jiyaar nga fekk réew moo xam ne mii ñu ngi ci alkande lu man ci ñetti téeméeri at nit ñi sonn nañ feebar bu nekk dal na leen ngeen leen dañuy continuer fitna jooju dañuy continuer nekk ci mooy jàngatoo jàngatoo wàllu politique jàngatoo réew ma ci luñ toll loolu sëñ bi jàngal nañu ko ni foo nekk da ngaa war a seet loolu yegg metti na ko lool ba mu xalaat a jiyaar kon moom buy jëloon lu yomb def lu yomb day taal jiyaar comme ñëpp rek wala mu dem ànd ak dammeel wala mu dem ànd ak tubaab bi loolu moo gënoon a yomb mais mu xalaat li gën a jafe mooy tàmbali loo nga xam ne lii mën naa am doo gis njariñ la ndax xale bu toll ci juróomi at juróom-benni at yow nga am lu mat ñeent fukki at nga di ko jàngal mën naa am bis bu njariñam di feeñ doo ko fekke boo yàkkamtee na nga tànn solution boo xam ne bi baaxul ci wàllu politik loolu war nañ koy xalaat bu baax a baax a baax a baax politique du pour sa bopp pour askan wi la sàmm alalu askan wi teg leen ci yoon ñu xam lu ñu war a def ak lu ñu wërta def nga jox gëdd ak fulla ak fayda njàngale loolu mën nañ ko cee jàng ci wàllu social li taxoon ceddo yi gën a xarab sëriñ bi ndax sëriñ bi moom li ko soxaloon mooy fi nit ki toll ci yàlla martaba ku nekk martaba bi mu lay jox ci fi nga toll ci yàlla la la ko la ko doon teg mais réewu ceddo yi réew ñun suñ cosaan fii lan moo daan def ba nit mooy nga doon garmi ci sa juddu bu nekkee géwél nga walla wuude nga walla tëgg nga dañ lay sof dañ lay sofental sëriñ bi nag ci waaso yooyu ci ngir yooyu dafa am ñum ci yëkkati ñu am solo ceddo yi mere ko ci loolu naan moom day jox ba ko nga xam ne kii démb rek sama géwél la woon sama jaam la woon mun leen liy màggal nit kët du ca deret ja waaye ca na mu gëme yàlla ngëmam fu mu toll loolu moo am solo kon géwél bi mën naa gën a jige yàlla giir jaam bi mën naa gën a jige yàlla sànq loolu itam ci wàllu social sëriñ bi moo ñu ko jàngal ni ñuy féewaloo ni xàjjali ko xeeb nit ndax géwél la xeeb nit ndax tëgg la xeeb nit ndax wuude la loolu sëriñ bi jële woon na ko fi waaw am na ay seexam yoo xam ne yi ci ñooñu ci ñooñu lañu bokkoon te kenn du leen ko xoole te sëriñ bi xoolewu leen ko woon ci wàllu social kon am na lum ñu jàngal lu am solo foofu avant la colonisation la colonisation en tant que telle waaw euh, colonisation maanaam tubaab bi da fi ñëw ci da ngay séddale ñëw nekkam fii ci ñaari jamono asalaamaaleykum wa rahmatullah ndokkeel ci tedd bii waaw xam naa di amaan mbégte lool nag ci teew ci jataay bi di dalal menn mbokk ci mbokk yi nga xam ne tànn nañ leen ngir am ak ñoom jotaayu xam-xam ci barab bu tedd bii niki noonu kon tey ñu ngi fas yéene ànd ak professeur Ibrahima Thioub ñu gën koo xam ci ancien recteur bu université Cheikh Anta Diop moom lañu war a amal tey waxtaan wu am solo muy waxtaan ci Cheikhul Khadim fan la fekk société bu senegal ak fan la ko yóbbu mu doon kon thème bu am solo boo xam ne bu mat a teewlu la waaye bala ñoo ñëw ci loolu bala ñu ko jox kàddu gi ni ñu ko baaxoo defee ci képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak yëngatuwam ci xam-xam mën nañoo wax rekk ne Euh, sëñ Ibrahima Cubb mii mu ngi gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Malikunda ca wetu Mbuur euh, bi mu tombee bi mu tollee ci dal am njàng itam ci la dugg daara alxuraan def na fa ñaari at gannaaw bi ci la dugg ci école française bi ca Mbuur tàmbalee fa am njàngam ci atum 1962 ci la am CFE muy lijaas bi gën a ndaw ci école yu ndaw yi gannaaw bi ci la continuer am njàngam dem ca Thiès ba yegg ci lycée Malick Sy foofee la amee baccalauréat am gannaaw bi ci 1972 ci la dem ci école normale ba 1976 euh, jaar na école normal ci diggante boobu ma tudd gannaaw bi itam affecté nañu ko waat Thiès mu nekk fa comme jàngalekatu primaire gannaaw bi la dellu jàngaat ba dem école normale supérieure gannaaw bi ci la fa nekk ba am fa master 1984 gannaaw bi nag ci la bawoo ci réew mi dem bitim réew ca France Paris foofee fa la nekk di fa jàng ba am doctorat ci atum 1989 gannaaw bi itam nag bi mu dellusee ci réew mi affecté nañu ko ci ay lycée yu bari mën nañ cee lim rek lycée Lamine Gueye ak John Kennedy bi nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru gannaaw bi ci lañ ko yóbbu université Cheikh jóob foofu mu nekk fa comme assistant gannaaw bi ci la yokk ay jéegoom ci wàllu njàng ba ñu nommé ko fa professeur mu di fa jàngale histoire gannaaw bi ci atum 2014 ci lañ ko fa nommé comme recteur mu yor rectorat bu université Cheikh Anta Diop euh, ci atum 2020 ci la jël retraitam mooy koo xam ne daanaka liggéeyatut léegi ci gouvernement bi mën nañoo wax ne nag ay gëstoom nag da koo jëmale ci wàll fànn goo xam ne gu am solo la muy histoire Afrique kon lépp loo xam ne jëm na ci taarixu Afrique ak i jaar-jaaram ak yi xew-xew yi fi ma am moom ci loolu lay gëstu kon yaakaar naa ne lii ñu koy waxtaanee loo muy sëriñ tubaa fan la fekkoon société bu Sénégal ak fan la ko yóbbu. loolu lu mu xam la lu mu mën a waxtaane la kon yaakaar naa ne incha allahu taala mën nañoo fàttaliwaat mbokk yi ne leen euh, waxtaan yi ñuy amal fii képp koo xam ne raw na la am na fukki rajo ak juróom-ñaar yoo xam ne euh, dañuy tegaat waxtaan yi ci diggante Touba ak li ko wër waaye mën nañ cee tàmbale rek wax ne rajo Daarul Muxti bii direct la koy def ak rajo Bawol Média ñoom ñaar yooyu direct la ñuy def waxtaan wi buñ ca jógee itam Daarul Moxti dana ko tegaat suba ci 14h quinze h Zik FM dana ko teg 14h 15h moom tamit Walf dana ko teg 19h jant bi 0h iRadio dana ko jàllale 18h30 RTS Diourbel 13h30 Benno FM 17h Sud FM 20h30 Lamp FM 23h UCAB FM dana ko jàllale 9h du matin Bawol Média bi ma waxoon sànq tamit direct la koy def. Carrefour FM dana ko jàllale vingt heures rajo Bambey dana ko jàllale vingt deux heures euh, Daara ji FM dana ko jàllale euh, moom tamit Daara ji FM moo mooy bi nekk Kébémer leer gi FM mu nga nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan bi RTS Touba moom tamit dana ko jàllale neuf heures Touba Fall FM moom tamit huit heures du matin fa la ko ci la koy jàllale kon rajo yooyu yëpp mën nañu wax ne waxtaan yi dañu koy jàllale. bu dee chaîne télévision yi nga xam ne ñoom tamit dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi mën nañ cee lim Touba Vision Touba TV day jàllale waxtaan yi chaque jour Lamp Fall TV itam dana koy teg une heure une heure une YouTube yi nga xamante ne moom la ñuy lim itam chaîne YouTube yëpp dañu koy def direct kon mel na ni boo xoolee mbooloo mi sax ñu ci ëpp daanaka foofu lañ koy suivre tàmbalee ko ci Alwafa bu Daarul Moxti Touba Vision Baye Daaru Média nekk ci dëkk bi xam sa réew alxadimiya bawal média facebook bu àllu faab itam da koy def gannaaw bu loolu jàllee itam ah, ren ji ubbi nañu fukki eh, groupe ak ñaar yoo xam ne mën nañu wax ne groupe yëpp fees na te waxtaan yi rek lañu ñu fay jàllale kon mel na ni waxtaan yi yaatu na lool telegram bi tam ku tàppe alofa daarul moxti depuis 2006 ba atum ren ji waxtaan wi sëñ Ibrahima di def dana ca nekk kon incha allahu taala ñu fàttali itam mbokk yi ne leen suba ci talaata ji danañu dalal sëñ fàllu Samb sëñ fàllu sàmb itam ñuy am moom waxtaan ci dem bi ak dikk bi ay loraangeem ak njariñam su ko defee àllarba ji euh, ambassadeur Modou Fall moom tamit dana teew ci jataay bi waxtaan ak mu ci ahamiyatu sifara fil xaarij maanaam yenn njëriñ la ambassadeur yi amal sénégalais yi ci biir réew mi ak bitim réew su ko defee alxames nga xam ne ci la ñuy tëj jataay bi nag sëñ Mamoor Amdi moo yeneen i kilifa daañu fi teew su ko defee ñu waxtaane mustaqbalul muridiyya maa ëllëgu yoonu murid loolu kon moom mooy li nga xam ne moo aju ci asum ñu ñaan ñu ñaan yàlla teewe ko at yu baree baree baree bëri te yëpp ñu ànd ko wér euh, su ko defee incha allahu taala dañuy jëbbal kàddu gi sëñ Ibrahima cubb ñaan yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci li nga xam ne moom lay waxtaan itam incha allahu taala mën na koo bind moo xam ñuy suivre ci youtube bi la moo xam ñu nekk ci jotaay bi bu ko bindee bu ko jébbalee ci ñu yor wàllu googu incha allahu taala dinañ ko jàllale su ko defee moom mu tom tontu ci tontu ci après jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu di ziar eh, sëriñ Muntaxa Mbàkke Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général de Mouride di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu di ziar xalifa Daaru Muxti di nuyu di ziar kilifa diine yépp yoo xam ne yii ñooy kilifa diine nekk ci tarixa bi di muridiya ñi teew ci jataay bi ak ñi koy topp ci rajo yi ak télévision yi yépp ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaar baax a baax di sant waa daayira bi nga xam ne bii ñoom ñoo sàkku ci man ma ñëw def waxtaan wi ci weeru koor wu tedd wi maa ngi leen ci sant bu baax a baax a baax bi nga xamante ni jokkoon nañu ak man it man sama gëstu euh, depuis 1990 ba léegi euh, muy romb léegi fanweeri at mu ngi jëm ci taarix mooy histoire surtout histoire Afrique euh, pàcc bi ma ci gën a féete mooy diggante dix-neuvième ak vingtième siècle mooy ñaar téeméeri at yi ñu weesu lan moo xew ci Afrique ak lan lañ ci mën a jàngate ndax histoire du caagee nag xool li weesu rekk du lu weesu moo ñu amal solo déedéet lii ñëw ëllëg moo ñu amal solo maanaam li koy misaal mooy dafay mel ni rétroviseuru oto booy xool sa rétroviseur li ci sa ginnaaw ngay gis waaye li ngay li tax mu amal la njariñ mooy mu tere laa am accident bi ñëw ci sa kanam histoire donc loolu lay jariñ xool jaar-jaar yi fi amoon lan lañ ci mën a jàngate ngir xam li ñuy dund mooy lan ak naka lañuy tabaxee ëllëg ci askan wi ci noonu bi ñu ma laajee thème boo xam bii mën naa ci waxtaan dama leen nii mën nañ xool jamono ji nga xam ni moom la Sëriñ Tuubaa dajee loon nu mu demee woon euh, yan jafe-jafe moo fi amoon yan pexe la ci nit ñi amoon ak moom yan pexe la ci jël lu mu ci indi ndax bala ngaa dégg dëgg li sëriñ biy wax nga xam yan jafe-jafe la jàkkaar looloon ba indi ci ay tontu euh, da ngeen di jàpp ni nag jafe-jafe yooyu yu tar la woon am na lu bari li ci nit ñi gën a xam mooy liñ ko yóbbu woon Gabon wala ñu yóbbu ko Mauritanie mu jaamaarloo ko ak tubaab bi mais am na yeneen yoon xam ne yi moo jur loolu te ñaari nit ñi dinañ koy umpule loolu laa ci bëgg a génne tuuti rek euh, ci waxtu yi nga xam ne yii moom lañ ma may euh, gëstu bi nag li ci ëpp ci tubaab lañ koy def waaye comme ni ma koy waxee wax ko ci wolof man moo ma gën a yomb wax ko ci tubaab eh, damay tàmbulee loo nga xam ne lii xëy na mag ñi xam nañ ko su ma ko tàmbulee sax xam na am na ay mag ñu fi nekk dinañ ko mën a yeggale su ma ne ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seyxu bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ma moo jébbulu woon dem tuubi ndeyam di jooy mun naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiargane sëriñ Mor Mané Serigne Aliou Diouf ñi lee ko daane keroog da leen a woo fa péncam làmbaay naan leen danaa leen tàggaleeg laxasaay keroog da na boole ci wurmbal ñuy kenn kennoo farba ja farba jaa ngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal daam dàmm di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen baleen seex bàmba mbaama ren di murit yi yépp ma nga ma nga naan ba màndi murit yi naa ko bàmba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey noo yi sëriñ Momar Maane ko tontu booba ni ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomba tànk moo gën a yomb li nga wax noo lànk dag ya ni tis pénc ma daldi jaxasoo murit ya xaacu mbër ma daldi laxasu murit ya ñëw Touba xibaar ko Bàmba mu xëy ni ñaanal leen ko tas naa jal ba ceddo ya dem kalaame kook borom ndar mu naa dangeen mokk mbaa mel ni aw dër ñi xam sëñ Moussa Ka xam nañ ni loolu ci jasaw Zakoor la jóge boo ko gëstoo ci li ma ci jot a jukki noonu jukki boobu ma ci génne am na ñetti mbër di bind wolofal ñoo leen di defaral ay téere danga nga gis ku soxla téere lu mel ni ak dàq boo ko soxlaa dinga ci def lu mat ay fanweeri jaam ngir ndax xeex bi bari na il faut nga wut gàllaaj gu tax nga tuul te loolu dañ ci daan ñàkk lu bare bëri ci alal ndax xeexoo bi bari kon sëriñ soosu am na sëriñ soo xam ne si dañ daan ànd ak nguuru ceddo yooyu euh, ci biir ànd boobu teewul nag am na ay doomu soxna yoo xam ne yi dañoo jóg xeex ak nguuri nguuri ceddo yooyu bari nañ lool ci suñu réew mi ki ci jëkk nga xam ni booba buur yi buuri ceddo yi ñu ngi jël nit ñi dëkk bu ñu dem taal ko jël nit ñi yóbbu dem jaay tubaab bi tubaab bi yóbbu ñoom ñu jënde ko sàngara naan nekk ci li neex seen bakkan di toj réew mi mu doon alkande ju rëy ju dal ci kaw réew dajeeg léeg-léeg ay njéeréer da ngay bey ba góob rekk des ci ceddo yi ñëw taal sa tool walla njéeréer yi ñëw lekk ko walla mbas ñëw comme mbas mi am nii léegi da doon am ci jamono yooyu muy jamono ju tar ju metti te li leen ko tegoon nguur googu ñu amoon te muy nguur gu baaxul moo leen ko tegoon te réew yépp nag moo fi sësoon muy Kajoor Bawol Waalo Siin Saalum Fuuta fépp ñoom ñoo fa nekkoon léegi jullit yi am ci ñu jóg ni nag war nañoo seet nu nuy def ak nguur yi lu ñuy tàggaleek ñoom ki ci jëkk Nasr al-Din la tudd Mauritanie la jóge woon ànd ak ay jullit yu nekkoon fii ci réew mi ñu samp nguur xeex ak ceddo yi gañe leen samp nguur gu ñuy wax nguuru buuri jullit loolu 1673 la amoon bi mu amee mun leen yàlla sàkk lu leen ay kilifa ngir ñu di leen jaay ak di leen toroxal ak di leen noot yàlla daf leen jox kilifa pour mu aar leen teg leen ci yoonu yàlla looloo tax yàlla am ku mu teg seen kanam mais seen kilifa yi ngeen am nga xam ne ñoom dañ leen di jàpp taal seen kër yi taal seen euh, ngóob mi fotoñ leen jaay tubaab bi dañuy jóg xeex ak ñoom ngir tàggalikoo ak ñoom biñ ko defee réew mi ànd ak ñoom ñu daaneel buur yooyu mais tubaab yi nga xam ne loolu arrangé wu leen jox leen ay ngànnaay jàppale leen ñu daaneel nguuru jullit googu nga xam ni moo njëkk am fii ci Sénégal di nguuru jullit di 1673 biñ leen daaneelee ñu bëri ci ñi bokkoon ci xeex ba doon ay jullit dañ leen a jaay ñu yóbbu leen Amérique mais ñi ci des dañoo tasaaroo ci biir réew mi. taal ay taal jàngu di fa jàngale arrêté xeex bi te xam ni ceddo yi neexaguñoo song ñu ne nañu wutiwaat doole ba ci kanam ci noonu Abdul Xaadir Kan ca Fuuta mu jógaat xeex xeex bi ci jamono ci jamonoy Amari Ngoone Ndee la mais moom itam dañ ko gañe ci xeex boobu ci dëkk bu ñuy wax Bungoy bàyyi ma Lamine saar ku nekk dégg na ko moom itam Amari Ngoone Ndeele moomu moo ko daaneel ci xeex boo xam ñu ngi ko xeexoon ci dëkk bu ñuy wax cax réew ñu jàpp ca ñu bari jaay leen ay def leen ay jaam jaay leen ñenn ñi daw ñooy lébu yi sañc nguur gi nekkoon ndakaaru sëriñ ndakaaru ci loolu la jóge ci xeex boobu la jóge ñoom dañoo jóge kajoor dem Cap-Vert ci lañ ko samp jullit yi continuer di xeex ngir teggi nooteel googu ñàgga isa ca waalo 1827 1830 Malick Sy ca Bundu bokkul ak Seydi Aj bu Tiwaawoon am na beneen Malick Sy ci Bundu kooku 18e siècle la El Hadj Oumar 1860 Maba Jaxu 1861 1867 Maba Jaxu boobu lu am solo la ndax Maba Jaxu ci rip fu ñuy wax baadibu wala fi di ko wax rip soose si di ko wax baadibu fa la nekkoon am buur bu fa nekkoon ñu di ko wax jeere ba maroon mu am doom ju tudd jàkkere basin ñoom ñaar ñoo tegoon nooteel gu tar ci kaw jullit yi ci kaw mbooloo mi askan wi kooku dafa xëy benn bis dem ci kër benn nit fekk fa doomu jànqam mu jël ko yóbbu gëf ko yóbbu ko ci péy ba yemul ci loolu mu bind lettre jullit yi ni leen dajal leen alal yi ngeen am yépp jëndal ma ci ay gàtt yónnee ma ko ndax damay takk seen doom ji te se gàtt yi ngeen may yónnee ci laa war a organiser fête bi may feetoo sëy bi ñu nar a sëy xam nga loolu jéggi na dayo lool Maba Jaxu ne nag loolu moom mënuñu koo seetaan ci la taal jiyaar moom itam bi mu taalee jiyaar daan buur boobu lu mat ñaari weer rek mu jóge Gàmbi tey ci foo xam ci Gàmbi la nekk tey di Saalum ñaari weer rekk mu nga Jolof buur yi fi nekkoon yépp mu faagaagal leen samp nguuru jullit ci noonu mu jël kilifa diine yu bari yu nekkoon ci réew mi tasaaroo mu jël leen yóbbu ñooro bokk na ci ñooñu Mamor Anta Sali mu ànd fa ak Soxna Jaara Buso ñu nekk Poroxaan mu ubbi fa daara di fa jàngale doomi ba Jaxu ci daara yooyu lañ doon jàngee ku mel ni Sayer Mati am na nag wuute ci loolu ñenn ñi nee nañ dafa forcer sëriñ yi ñu ñëw ci moom ñenn ñi ni dafa waxtaan ak ñoom ba yóbbu leen fa waaye lu ci mënti xew daal Maba moom xeex na xeex bu gaaw faagaagal nguur yi fi ne ko ndax nguur yooyu amuñu woon kenn ku leen jàppale ndax nit ñi dañu leen a dumóoyu woon ndax niñ doon doxale mais Maba bi mu demee xeex ak séréer yi siin la daanu ci somb 1867 ku mel ni Lat Joor ca xeex booba la bokkoon Demba doonoon jaamub kajoor jaamu buur moo ko fa jële delloo ko kajoor Maam Mor àndaat ak moom dellu kajoor Cheikh Amadou Bamba des poroxaan ba ni waajuram wu jigéen génne àddina la fekki waajuram wu góor ci kajoor nekk fa moom ci jamono ji muy nekk kajoor am na xeex bu dox diggante Amadou Cheikhou ma jóge woon Fuuta song kajoor ak Jolof ci turu lislaam di xeex ak nguuri ceddo yooyu ci jamono jooju Lat mooy dammeelu kajoor am na jamono sax Lat ànd na moom waaye dañoo mujj féewaloo bi mu dalee ci kajoor dal ci jolof Alburi ak Lat ànd di xeex ak ñoom tubaab bi jàppale leen ñu xeex Samba saajo bi ñu xeexee Samba Sadio fala la Amadou Cheikhou daanu bi mu daanoo taalibe yi mu àndaloon ñuy xeex ñu jël leen ñoom ñëpp indi Kajoor def leen ay jaan mu jur werantewu rëy diggante ñi nga xam ni ñooy ulamaay kayoor yi àndoon ak Damel ak Cheikh Amadou Bamba te booba toll na ci ak ndaw waaye nag fekk jàng na njàng mu wóor mu dëgër ba am lu mu làq ci xam-xam mu warante ko ku mel ni xaalima jaxate kala ci loolu bind na benn lettre bu mu jox dammeel bi ko xaalima jaxate jotee dafa jàng lettre bi dammeel ni ko wax ma lu ne ci lettre bi mu ne ko lettre bi jubluwul ci yow ci man mii la jublu mu ne ko sarax ma ngir yàlla wax ma li Cheikh Ahmadou Bamba wax ci leetaram bi ndax booba ñu ngi lijjanti nu ñu def ba sëriñ bi ñëw nekk ci nguuru dammeel mun leen man jombale naa samay tànk mu jóg di dem ci benn buur bu dul yàlla ñoom ñu ngi fexee nuñ ko dugalee naan ko boo ñëwee dinañ la jox alal dinañ la jox martaba dinañ la jox dinañ la màggal loo soxla di nga ko am bu dee suuf ak lépp di ko am waaye fekk na booba moom du mooyu na loolu ba mu werante ceeg ma jaxate kalam mu ngi ko naan sëriñ bi gën buur bi gën ci buur yi mooy buur buy seeti sëriñ dafa taatan nu mu yore nguuram waaye boroom xam-xam buy dem ci kippaaru buur mook weñ wu dem ci ay jonkon ñooyam loolu la bindoon ci leetar bi moo tax ma jaxate kala ñimewu ko woon a wax dammeel mais bi mu ko waxee dammeel dammeel ni ko yow kay amuloo loo ciy mer ndax yow yaay weñ wi waaye man xam nga li ma doon waaye nag day day ndaw rek bu màggee dina dina dina soppeeku nañ ko jàpp ni ab ak ëkk la gu nekk ci suñu biir tool bu ñu béyee ba egsi ci nañ ko wër rek mooy te ko continuer béy kon boog nguur yooyu fi nekkoon am na ay jullit yu àndoon ak ñoom am na lu luñ doon def loo dëppoowul ak yoon ñu teg nit ñi alkande teg leen ay jafe-jafe ay yu tara tara tar mais ci jamonoy sëriñ bi fekk na booba tubaab bi dal na ci seen kaw nasaxal na leen ñoom ñuy xeexoo ci seen biir ba néew doole nga xam ne bi leen tubaab bi faagaagal daanaka dara desatu fa woon teeñ tanoor ma ma leen waxoon ca ba may tàmbali bi cee Yacine Gallo Gànna daanoo ci Bawol moom moo ko remplacé mu jóg nag ni moom day fay islaam kon boog ngeen gis ni nguuru ceddo yi am na ay doomi soxna yu ànd ak ñoom mais am na ay doomi soxna yoo xam ne ñu nga ànd ak tubaab bi ca Ndar ku mel ni bu el Mogdad nga xam ni ñu jàng lañu woon ñu am xam-xam waaye ñu ngi dëkkoon ndar nekk ak tubaab bi di ko bindal lettre ak di tekki lettre araab yi ñu leen doon bind ñoom ñoo ko doon teggi tekki am luñ cay amee euh, ci noonu tubaab bi ni leen ñun dafa am lu ñu jaaxal El Hadji Omar mii di woote jiyaar wala Maba Jaxu mii woote jiyaar lan moo tax ndaw ñi yépp di fàq jëm ci ñoom xam nga laaj boobu tey boo ko boo seetloo jamono ji ñu toll nii nguur yu bari ñu ngi laaj laaj boobu di si nekk Mali Sahel ak feneen ci àddina bi ñu bari dañuy wax naan lu tax ndaw ñi topp leen ci jamono yooya ulema yooyu nekkoon ndar ak tubaab bi nga xam ne tubaab bee leen yoroon di leen fayeg di leen jox ñuy liggéeyal tubaab bi ñu ne ko ñett moo tax ndaw ñi topp leen El Hadj day tabax ay jàkka dem na màkka te day àtte ci charia ñett yooyu lañ jàpp ni moo tax ndaw ñu topp leen te yéen tubaab yii moom ndar mayu leen ñu loolu ñun leen loolu kay du problème man nañ leen koo may bu nekkee loolu rek la moom amul problème ñu tabaxal leen jumaa ci ndar jumaa jooju armee française moo ko tabax moo tax boo demee ci jumaa ja dafa am cloche boo nga xam ne ba léegi cloche baa nga fa ndar boo demee ci jumaa yi ndar jiñ fa tabaxoon ba léegi cloche baa nga fa mooy architecture bi gën a siiw ci Sénégal dëkk yu bari ndax ñoom bi ñu leen ne tabax leen juma ay armée française xamuñu luy juma ñu xool seen livre yi gis ñun leen fu ñuy jaamoo yàlla la ñu xool gis église ñu tabaxal leen église def ci cloche architecture boobu fu bëri Sénégal booy dox ci jumaa yi ñu tabax ci dëkk yi jumaa ji noonu la noonu la mel architecture boobu la jël am na dëkk bu ñuy wax bismillah mu ngi ci booru yoonu Fatick diggante Mbour ak Fatick boo demee seen jumaa ja mu ngi nekk ni ci sa ndeyjoor architecture boobu lañ jël boo demee avenue lamin Gueye ci dakaar jàkka yi fa nekk wala jàkka ja nekk avenue Blanchot dakaar architecture boobu la jël ñu tabaxal leen jumaa ñu di fa julli ñu jóge ca teg tribunal musulman musulman ci Ndar ndar amoon na tribunal musulman ñu jël ay xaadi ñu nekk fa di àtte ci charia ngir tontu El Hadji Oumar ñun dangeen a bëgg a dem màkk léegi nañu organiser kuréel goo xam ne mooy lijjanti li leen di yóbbu màkk commissariat au pèlerinage à la Mecque bi am nii léegi foofu loolu mooy cosaanam fa la jóge kon matal na ñett yi leen waxoon ni moo tax ndaw ñi di topp tabaxal nañ leen jàkk tabaxal nañ leen jumaa di leen àtte ci sariya ba pare di leen yóbbu màkk ñooña topp tubaab bi loolu it am na ci wàllu doxalin wañ doon doxal tubaab bi ni mu doon dale ci kaw nit ñi ni ceddo yi doon def noonu la tubaab bi doon def dem ci dëkku jàmbur taal ko am na benn jamono 1864 mooy jamono ji gën a tar ci senegaal nit ñi dañoo mujj ñenn ñi dañuy jaay seen bopp ngir mën a am lu ñu dunde jaay sa bopp ngir am loo dunde mu am fi feebaru choléra feebaru pest bu metti nit ñëpp fàq ñii dem mbuur ñii dem jiwaalo ñii dem ndar ñii dem gore mu jamono ju metti ci noonu euh, ñu gis ni jamono ji nim mu mel mënuñoo continuer bàyyi noonu bu ñu ko bàyyee noonu rek réew yi muy kajoor bawol dañuy mujj faagaagal te déjà luy ëpp tubaab bi teg na ci loxoom mais tubaab bi bi mu ci tegee loxoom moom tubaab bi xamul réew mi te mënta jële ay tubaab ca France indi leen fii ndax suñ leen fi indee seen yaram dëppoowul ak tàngaayu réew mi ak feebar yi fi nekk seen yaram xamu ko dañuy dañ daan dee lu bari léegi ñu ni kon buur yi fi nekkoon te ñun faagaagal nañ leen seeni ay doom ñu ngi fi donn nañ ci seen bàyyi nu ñuy yore réew ñun suñ leen tàggatee tuuti rek dinañ leen mën a dénk senegaal ñu jël ay ku mel ni mbaaxaan doomi Lat Joor wala Salmon Fall wala yeneen buur yi fi nekkoon yépp ñu jël seen ay doom ubbi benn école bu ñuy wax école des otages ci ndar dugal leen fa jàngal leen tubaab jàngal leen nu ñuy yore réew ñenn ñi sax ñu jël leen yóbbu leen Tunisie pour jàngal leen nu ñuy yore naka la tubaab bi ni moomee réew moo nga xam ne mii am réewum jullit la naka lañuy def ba jullit yi nangu moomeelu tubaab boobu loolu lañ leen jàngale woon bi ñu leen yóbboo Tunisie bi ñu dellusee ñoom lañ fal ñu nekk ay chef de canton fii ci bawol mbaaxaan fii lañ ko faloon salmon ndax dañoo pàcc bawol ñaari pàcc bawol oriental bawol gi féete penku ak gi féete sowu gi féete penku ñu dénk ko mbaaxaan gi féete sowu ñu dénk ko salmon fall ñu nekk fi kon ci loolu ngeen gis ni tubaab bi itam mu ngi xool nu mu noote islaam nu mu jariñoo islaam ngir noot senegaal ceddo it ñooñu ñu jël fal leen nga xam ne ñoom seeni maam ñoo fi nekkoon ay buur léegi tubaab bi jël leen tàggat leen def leen seeni ay liggéeykat teg leen ci boppu kuréel yu ndaw yi nekk ci réew mi ñu nekk ay chef de canton ñooñu biñ ñëwee li leen tubaab bi santoon mooy bu kenn yëngu bu mu am benn fitna ci réew mi na ñépp di fay lempo bopp bu nee nay fay lempo bi ñëwee installé wu ñu seetlu ni nit ñi li ëpp àddiya lañ gën a sawar a jox ni lempo àddiya lañ gën a sawar a joxe ni fay lempo mu indi ak fiiraangi ñu ne tant que sëriñ saa ngi fi surtout fii ci bawul sëriñ Tuubaa ngi fi tant que sëriñ Tuubaa ngi fi sunu nguur gi du mën a taxaw fii ndax taalibe yi duñ nangoo fey lempo lu ñu am dañ koy yóbbu jox ko euh, muy euh, naka la tuddati euh, addiya te boo leen woowee nga convoqué leen ci pays bi bala ñoo ñëw dañuy dem tàggu ci sëriñ bi ba am ndigal kon ñu am ak fiiraange ci sëriñ bi ñooñee ñoo sos gëmloo tubaab bi ni sëriñ bii kat day waa jiyaar waaw doo doomu nit ñu ñuul ñoo ñi nga xam ne ñoom la tubaab bi jëloon dénk leen réew mi nga xam ne ñoom ñooy donoy ceddo yi fi nekkoon continuer di noot nit ñi sonal leen di leen teg alkande ñu ñoo ni tant que sëriñ baa ngi fi li ñu namm ci réew mi duñ ko am ñuy sosal sëriñ bi di ko sosal ni mu ngi wal ay cere mu ngi jënd ay fas jënd ay ngànnaay gàmbi boo seetloo sax fi mu nekk tu Tuubaa Daaru Salaam boo seetloo boo nattee di digganteem ak fuuta nga natt ko natt diggante tuubaa ak Gàmbi ñoo tolloo fuuta jiyaarkat yi fi musa nekk yépp fa lañ jóge te arm ngànnaay yépp Gàmbi lay jóge yow nga nekk ci diggante bi ni nga soree fuuta noonu nga soree Gàmbi kon boo demee wuti ku la jàngal nu ñuy xeexe jiyaar di nga wuti ay arm Gàmbi boo ñëwee da ngay taal jiyaar bi sëñ bi sancee Daaru Salaam ñu tuumaal ko ci loolu ñi tabax tuuma ji chef de canton yi la ay nit ñu ñuul lañu dem gëmloo tubaab bi jamono yooyu sax gouverneur bi fi nekkoon moom ci bi ñuy tàmbali gëmul woon loolu mais dañoo bàyyi ba mu dem congé ñu tabax ñu taxawal tribunal bi ñu àttee sëriñ bi bu ngeen fàttalikoo mois de septembre la septembre day daje jamonoy bër gouverneur nekku fi woon ndax gouverneur bi fi nekkoon ñu da ko wax lamot moom jublu gëmul woon loolu ñu ko doon wax ndax da daan yónnee ñuy yëddu sëñ bi te buñ ko yëddoo gis ni li ñuy wax ci moom dëppoowul ak li ko yëddukat yi di wax mais dañoo bàyyi ba mu dem ki organiser loolu nag ñaar lañu ku ñuy wax Leclerc ak ku ñuy wax Merlin lu tax ñaar ñooñu organiser ko ñaar ñooñu kenn ki moo nekkoon administrateur u Ndar kenn ki jiite bureau politique bi yoroon gouvernement bi ñoom ñoo fi gënoon a yàgg ñoo gënoon a xam réew mi gouverneur yi dañ daan ñëw def fi ñaari at dellu ngir bañ fee dee ñoom nag dañ fee yàgg ñoo tàggat doomi ceddo yi ñoom ñoo leen tàggat ba dénk leen réew mi seen ñoo ñu tàgg dénk leen réew mi bëgguñu woon sëriñ si ku mel ni sëriñ Touba su fi saxalee daara taalibe yi dañuy jublu ci moom nit ñu jublu ci moom kon du ñu déggal kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoom lañ ñoom ñoom lañ yebaloon fii ci biir réew mi Merlin moomee rapport bi nga xam ne bii moom lañ jàng ca bureau Ndar ba nga xam ni ci lañ jaare ni sëñ bi dañ koy yóbbu Gabon moom moo bind rapport boobu ndey rapport ba Leclerc moom moo ko bind Merlin sukkandiku ci li mu wax bind beneen rapport tuumaal sëriñ bi Leclerc moom moom la dajaloon ci jeewal kon bu ngeen seetloo problème yi am ci jamono boobu léegi leer na ñetti mbër ñu ngi daje ci géew bi di bëre nguuru ceddo yi néew seen doole wàññeeku na tubaab bi dooleem yokku na sëriñ bi yoon wi muy commencé samp mu ngi jóg ndànk-ndànk ci jamono jooju doomi soxna yi fi nekkoon yépp ñetti yoon lañ gisoon yoo nga xam ne yii yaakaar nañ ni ci lañ mën a jaar ngir réew mi bañ a naax saay ngir diine bañ a tas ci réew mi ngir daara yi bañ a alkande ñetti yoon lañ ci gisoon bi ci jëkk mooy dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ comme ni ma jaxataka la def mu yiir la dina la bàyyi ngay jàngale dina la bàyyi ngay bind sa ay eh, xas lu mel ni xasaayit dina la may daal féex boo soxlaa tool dina la ko jox nga ànd ak dammeel dégg ngeen li ci sëñ bi wax mook doon weñ ñoo ñaareelu yoon bi mooy nga dem àndi ak tubaab bi comme ñoom bu el Mogdad nekk ci waawam xëy na dinga doxal sa diine waaye nag yaa ngi koy doxale ci daar al arab waaw foo nga xam ne fii doxal fa diine lu jafe lay doon ñetteelu yoon bi mooy nga taal jiyaar kon ñetti yoon yooyu rek lañ xamoon taal jiyaar wala nga ànd ak dammeel wala nga ànd ak tubaab bi jël nag sa xel ak sa xam-xam ak sàkku am imaan sàkku dem ba ixsaan doon suufiyanke bu wóor taxul nga gis yoon wi nga xam ne fi lañ war a jaar nit ñi daal jàppoon nañ ne dangay ngay ànd ak dameel wala nga ànd ak tubaab bi wala nga taal jiyaar mais sëñ bi moom gis na ci li mu dund ci li mu dund ni ànd ak dameel sottalul mbir mi fekki tubaab bi moom xel xalaatu ko taal jiyaare ci des waaye moom dafa dund jiyaaru Maba Jaxu gis la mu jur gis la mu jur Maba daanu na ci somb bi mu daanoo waa këram dañ tasaaroo maamu ndare ak sayer mati juboowuñu ñuy xe ñu jote ba mujj tubaab bi ërtal leen ñu dem Gàmbi sëriñ bi ci loolu ci la ci la nekke tout tànk ci la yaroo daf ko fekkee gis ni fitna ji jëmalewul réew mi kër léegi boo dumoo yow fitna xanaa nga dem àndeek tubaab bi comme ni mu leen ko waxee loolu du yoon nga dem ànd ak dammeel wala nga ànd ak teeñ du yoon lu ci des nga gëstu bu baax xam jamono ji nga tombeel xam ne lu ëpp ñetti téeméeri at a ngi nii nguuru ceddo yaa ngi fi teg alkande nit ñi di leen jàpp di jaay kon nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm nit ñi li ñu gën a soxla mooy jàmm kon waru leen a bett sëriñ bi sañc ab dëkk tudde ko Daaru Salaam kon moom liir na bu baax li société bi soxla ndax société bu dund ñetti téeméeri at nekk ci sawara nekk ci alkande nekk ci fitna ñuy taal dëkk yi di jàpp taal ngóob mi di teg alkande nit ñi muy góor di jigéen ñépp nekk ci fitna li ñu gën a bëgg mooy jàmm sëñ bi gis loolu moo tax dëkk bi mu njëkk a sanc mu tudde ko Daaru Salaam mën de noonu laa ko jàngate bi mu sancee daaru salaam teg ci ay at yu néew ña luy tolloog ñaari at mu sanc Touba waaye nag yemul foofu dafa am yoon wu bees pull wu mu tëgg teg ko muy yoonu murit mu wékku nag ci tabax nit ku bees kon xam musula am senegaal bu yàggul ci at yi ñu génn am na benn mouvement bu fi nekkoon tuddoon Y'en a ñu naan euh, dañuy tabax nouveau type de sénégalais man leen du fi gande da ngeen a xamul seen cosaanu réew rek waaye su ngeen ko xamoon di ngeen xam ni lii du fi gan am na jamono ñu waroon a tëgg sénégalais bu bees sëñ Touba moo tëral ni ñuy tëggee sénégalais boobu moo ko tëral mu ko tàmbulee jàng ca daaray Mbàkke Kajoor ja baayam sañcoon mu jànge ko mu jànge fa nu ñuy jàngalee ak nu ñuy tarbiyaa nit ba mu doon nit ku bees koo xam ne kii du wu du dara du ko jotale ak ki ànd ak ceddo yi dara du ko jotale ak ki ànd ak tubaab yi du niroog ñoom mu samp daara ju bees mais daara jooju boo ko sampee il faut nga génn nit ñi moo tax sëñ bi jóge Mbàkke nga xam ne commencé naa bari ay nit mu ñëw sañc daaru salaam sanc Touba mais nguuru tubaab dafa fiir lool rekk la bañ ku beru di jàngale njàngale moo xam ne mii musu fi woon a am ci loolu tubaab yi ni Merlin ci rapport bi mu bind def ni ñun kat sàgganoon nañ fi ba El Hadj Umar jóg fi indil ñu ay jafe-jafe sàgganoon nañ ba Maba Jaxu jóg fi indil ñu ay jafe sàgganoon nañ ba Malick Sy jóg fi indil ñu ay jafe-jafe te Cheikh Amadou bàmb mii de lii muy sumb nii ci fi ñii jaaroon fi lay jaar ndax moom sax daan na wirdu wirdu xaadir te xaadir yi ñu am jàmm lañ léegi bàyyi na ko mu ngi wir wirdu tiijaan te tijaan yi ñoom jiyaar bu fi musa am ñoom ñoo ko taal loolu tuuma la juñ tegoon sëriñ bi rek ngir fay daara ji ngir fay projet bi mu am tabax nit ku bees tëgg nit koo nga xam ne kii dina mucc ci yoonu ceddoo dina mucc ci yoon wi tubaab bi tëral bi mu defee loolu wéet ñëw fii tubaab bi ni kii dafa am lu muy waaj ñi nga xam ne ñoo doon nit ku ñuul doon ay chef de kanton Merlin ak Leclerc wax leen nañu ko sosal ñu sosal ko ni day waaj jiyaar ndax mu ngi jënd ay ngànnaay mu ngi wallu ay ay ay dugub di ko denc kon day waajal jiyaar te mu ngi nekk ci Bawol oriental muy Daaru Salaam gi mu sanc boo jógee Ndakaaru walla nga jóge ci géej gi boo ko ërtalee day génn mën naa daw dem jublu penku loolu moo tax mu nekk tuubaa loolu lañ jàppoon ni moo ko tax a ñëw fii Touba kon ngeen gis ni sëñ bi dafa ubbi yoon woo nga xam ne bii wu yéeme la li ko yéemeel mooy jamono ji mu tollool pexe yi nit ñi amoon yépp ñetti pexe rek la woon nga gis nag weneen yoon woowu wu lay tàggale ak tubaab bi te doo joteeg moom jote bu metti nga mu tàggale la ak ceddo yi nga am ak nit ku bees koo tëgg loolu yombul woon te ñi ko gis kenn kooku moo ko gis teg daaray tarbiya tàggat ci ay nit ñooñu mu tàggatoon biñ ko fexeelee ba yóbbu ko Gabon wone nañ seenu mat ndax ñoo tëye yoon wi ba sëriñ bi dellu siwaat yaakaar naa ni du fii laa leen di waxee li ci maam Thierno def yéen ma ci ëpp xam-xam <laughs> yéen ma yéen a ma war a leeralal ci loolu ndax xam ngeen lim ci def lu am solo lim ci def wala sëñ Abdourahman Lo nga xam moom la dénkoon njàngale mi dénk njaboot gi maam na ñooñee niñ leen tàggate woon moo tax li mu doon jafe-jafe lim leen dénkoon mucc na ayib mu def juróom-ñaari at yoo xam ne lii mat na ci lu mat juróom-benni at kenn xamul fu mu nekk bañ jàpp ni sëriñ bi génn na àddina ñu am na sax ñu leen ko gëmloo woon ñu leen sëriñ bi génn na àddina waaye yëngalul seenu ngëm yëngalul yëngalul seenu pasteef la leen sëñ bi dénkoon ñu continuer yor ko ndax tàggat gañ leen tàggatoon def leen ñuy nit ñu wuute ci doxalin ak ceddo yi wuute doxalin ak ñi àndoon ak tubaab bi ñoom ñu indi doxalin wu bees doxalin wu bees woowu ñu leen tàggat loolu moo tax ba ñu mën a dékku jaamaarloo yi ci amoon muy sëriñ Maam Mor Maane wala sëñ Alioune Diouf Lambaye ba leen teeñ tanoor songee ni leen dinaa tekki seen laxasaay yi tàggale leen nag ci Amadou bàmba sëriñ maam moor maane ni ko da kàcc dañuy dem Touba kon loolu lañ tàmbalee woon ma bëggoon leen a woon li nga xam ne mooy ceddoo gi fi nekkoon won leen li nga xam ni lii mooy li tubaab bi namoon ci ñun wala ñi nga xam ne dañoo taal jiyaar fitna bi mu doon àndal nga xam ni réew mi attanuñu ko woon ndax réew mu dund ñetti téeméeri at ci alkande boo leen bëggee teg jaar duñ ko àttan te moo ne bu nekkenteen da ngaa jàng alxuraan rek topp ci taal jiyaar ku la noot teg la loo xam ni tegu la ko te nga nekku ci diine taal jiyaar jaadu na kon boo tànnoon lu yomb danga nga naan rek fi mag ñi jaaroon laay jaar damay taal jiyaar waaye soo gëstoo jamono ji nga tombeel xam jamono ji li mu laaj nga xalaat ko moo tax sëñ bi du diine rek du diine rek dafa indi ci wàllu koom-koom indi ci wàllu politik indi ci wàllu social lu nekk mu am yoon wu mu tëral ñu war cee jaar yoon woowu pour nga jaar ci il faut ñu yar la yarub tarbiya sunu jamono ji ñu tollool itam nag loolu dafay xaw a tumuranke lool ay gune ngi sànku ni dañuy def jiyaar li ëpp ci ñi ñuy rey ay jullit lañ kon xam nga ni jiyaar booba moom ak sànkute rek lay mën a jur ñenn ñaa ngi ànd ak nguur yi lu buur bëgg nga ni dagan na kon ñetteelu yoon bi lañu xa lañu mel ni dañ koo fàtte man dama ne woon bu fekkontee ni diplomatie sénégalaise xam nañ bu baax seen histoire réew mën nañoo nekk les meilleurs conseillers des Nations Unies wax leen ni problème bi ñu jàkkaarloo nii muy jiyaar bi ñuy xeex nii musoon na fee am lu ma téeméeri at a ngi nii ci ginnaaw lañ ci génnewoon yaru tarbiya moo ñu ci génnewoon woon jiyaar génnewuñ ci woon topp tubaab bi génnewuñ ci woon topp nguur gi génnewuñ ci woon toppatoo njàng mi ak njàngale mi ñu teg ko ci yoon yar xale yi ci yaru tarbiya moo ñu ci mën a génnewaat ci jamono jiñ toll nii war nañ xoolaat bu baax suñu ekool yi ak daara yi ni muy doxe ñu xool daaray mbàkke kajoor ja lan lañ ca mën a jàngate pour jubbanti suñu daara yi ñu am nii muy daaray alxuraan di daaray tubaab nag surtout daaray tubaab yi yaakaar naa ne daaray tarbiya moom amul grève <laughs> waaw ñun nag suñu daara yi moom nga xam ni ñu ngi ko tëggee ci tubaab bi lim ñu fi bàyyil waaw ñoom bi ñaaree léeg-léeg ndongo yi sax ñooy ëpp martaba ñay jàngale <laughs> waaw am na sax ñuy pes ñuy pes seen seen seen jëwriñ waaw fitnaal ko kon boog war nañu xalaataat man njàngale lañu war a jàngale ci Sénégal mu dëppoo ak suñu cosaan dëppoo ak suñu taarix dëppoo ak li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon doonte que dinañ ko dëppale ak jamono waaye reen bi moom waruñu ko waruñu ko buut sànni te fleur rafet na lool fleuru garab rafet tóor tóoru garab rafet na lool mu nga ca kaw yamb yi di ko biiw ndax ab rafetaayam waaye bu sàgganee reeni garab ga ba reen ya dee garab gi dee reen yi moom du ñu daanu ndax ci suuf lañ nekk fleur tóor tóor ma nekk ca kaw bu daanu dee am mooy gën a metti ab jël bu loru dee am mooy gën a metti ab jël kon loo ràññeeku ràññeeku rafet yamb yi di la biiw ngay xeeñ euh, kële misk walla jasmin bu mu la taxa beew mukk ba nga fàtte sa cosaan fàtte say reen ndax soo fàtte sa cosaan fàtte say reen bu reen yi dee garab gi dee yow ma nekk ca njombaxtalu garab ga sëb jël mooy gën a metti asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen sant yéen ñëpp ci seenu teew euh, jërëjëf professeur sëñ Ibrahima Thioub ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne àndil nga ñu ko te mooy fàttali cosaanu senegal ci diggante buur yi fi njëkkoon a nekk naka lañ doon dundee ba sëriñ bi ñëw fekk leen fi jëlaat beneen méthode bu bees boo xam ne ci la jëlee askan wi bu ñuy wax ne sëriñ bi da dagg na buumu njaam yi yaakaar naa ne lii nga doon waxtaane as lëf la ci dara la ci mooy sëriñ tubaa dafa ñëw àndaale pas-pas bu bees waaye boole ko xel mu yaatu mu rëy moo xam ne mooy tax ba la mu waxoon ne sama liggéey bi dinaa ko liggéey ba mu ba mu jeex